déglu lii wax borom tuuba ngeen dal xam ne borom tuuba mooy borom tuuba dugleen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen daal xam ne borom tuuba mooy borom tuuba da di tàng lu ngeen xam tey borom tuuba te lii ma leen di yëgal lu bët ci soon la bawoo ngeen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba jug leen taxaw déglu lii may wax. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain يا رب اسرح في دوام صدري سرحا به أكون مثل بدري ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ginnaaw nuyoo ak ziyaare ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér ñoo ngi nuyu mboolem njabootu Serigne Touba gépp di ziyaare bu baax a baax Serigne Abul Baraka mi nga xam ne moo fi toog toogaa yëpp Cheikh Mouhamadul Fadal ak mboolem njabootu Serigne Fallou gépp Euh, di nuy jëwriñ alaaji Mbàkki yu fay euh, président directeur général Touba TV Serigne Cheikh Balla Samb mi nga xam ne ni moom la teg ci télévision bi ak sëñ Jibril Ndaw ak ñuy doxal liggéey bi dellusiwaat ak yéen ci seen plateau yi nga xam Touba TV dana leen koy amalal saa su nekk euh, suñu dëgmalee bis bu mag boo xam ne nii dafay bokk ci bis yi nga xam ne nii bis yu marquable la ci yoonu murit ñu def ci jataay yu am solo rawatina njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey jii nag xam ngeen ne noo ngi fas yéene fàttaliku ak waxtaanee koo xam ne ni suñ ko waxtaanee waxtaanee lislaam suñ ko waxtaanee waxtaan yoonu murit suñ ko waxtaanee itam xam ne lu bari ci ak dundam wala lépp ci ak dundam royukaay rek lay doon loolu moo waral ñuy dëgmal bis bu màgg bu am solo muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab muy kadu rajab incha allah ci di fàttaliku dunduk Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi nga xam ne Eh, dund gu barkeel gu sakkan goo xam ne mënees na ko jariñoo àddina ak alaaxira moom la def ci jaar-jaaram ci kaw suuf loolu moo waral tey jii Touba TV ni ko alaaji mbàkk yu di baaxoo di amale at mu nekk rek eh, ñu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gi ngir gungi bis bi ànd ak ñoom itam ci li nga xam ne mooy jataay bi tey ji nag eh, sunu jataay xam ngeen ne at mu nekk dañuy tànn ay boromi xam-xam tànn itam li nga xam ne mooy ay tem lu am solo ndax bind naa léegi ci Eh, bi may ñëw ci yoon rek maa ngi xalaat ne sëñ fàllu moom soo koy waxtaanee sax da nga dul xam eh, ban point boo jël rek dañ naan moo ëpp solo ndax point boo mën a jël ci sëñ Fallou rek day point boo xam ne nii eh, ñu bari dabuñu ko ca muy sëñ Fallou boo nee sëñ Fallou ak sunna mën nga wax sax sëñ Fallou écrivain bindkat nga xam ne tey li mu bind xam naa loolu sama gaa yi plateau bi danañ ci gën a ñëw sax ci mbindam. nga xam ne eh, way ay wayam mbindam soo ko xoolee rek xam ne boroom xam-xamay wax eh, mën nga wax sëñ Fallu ak social dimbalante mën nga wax sëñ Fallu ak yërmande te yooyu yëpp boo ciy jël rek da dul xam foo ci tàmbalee da boo jël da nga naan bii rek mooy thème d'actualité bi te yaakaar naa jamono laaj na ñu dellusiwaat sëñ Fallu ak liggéey gis nga discours bu am solo boobu nga xam ne defoon na ko ci ñu bàyyi penku bi dellu ci sow bi te dem ci teew yi waaye nag tinul nu itam borom ci. ñaanal nu ko ndox mu baawaan moo xam ne dana mën a euh, naatal gàncax gi naatal itam réew mi mën nga sax neex sëñ fàllu ak ba tey mën nga wax sax sëñ fàllu ak euh, patriotisme maanaam bëgg sam réew xubbul watan nga xam ne tey réew mi euh, participer na ci ci fànn yu baree baree bari loolu moo waral tey comité d'organisation bi nga xam ne ñooy saytu liggéeyu màggal gi rawatina ci wàllum communication bi ñu di ci nuyu bu baax sëriñ Ahmad Badawi Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Fadal tënk ay boromi xam-xam indi leen ñu indi ay thèmes ngir fas ci yéene waxtaan waaye xam ngeen ne at mu nekk ci jataay boobu dafa am koo xam ni mooy kilifa jataay bi at mu nekk moo koy jiite yal na yàlla dogal mu yàgg koo jiite at yu baree baree baree bari euh, léegi rek mi ngi ma koy wax waaye euh, fi ngay jàngate rek ci ba tey sëñ Fallou point yi nga mën a waxtaane mooy euh, tey bu ñu waxee ne moom moo féete at ay at Serigne Cheikh Serigne Ahmad Badawi waaye daf ma wax léegi ne ma fu ma yebal dinaa fa dem ndax ca liggéey bi la bokk ndax euh, du at yi waaye ndigal li ak li nga xam ne ni mooy bis bi jag rek moo ko waral euh, tey jii la jóge Touba ñëw ngir fas yéene ànd ni mu daan baaxoo di jiite plateau bi muy Serigne Cheikh Oumy Mbacké mu Cheikh faadal Fadal euh, waat na ko noonu ñëwaat ngir ànd ak ñun ci jataay bi def ko itam ci télévision yëpp nag nga xam ne fu nuy waxtaanee Cheikh Mahamadul Fadal lu jëm ci màggal gi moom la Serigne bi di jox li nga xam ne ni mooy kàddoom mu dem teewal fa njabootu sëñ Fallou gépp waaye ci ak yaatal itam yaatalam itam ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Fallou gu féete soow itam dana jël téléphone am woo leen waxtaan ak ñoom ci loolu àndandoog ñoom ñëw ci bis bi ñu di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool xam naa ne li may wax rek nañ ko ñaanal at mu nekk ñu ànd koog moom ndax at mu nekk eh, ñun ñi def si liggéey bi sax moo nu fiy jiitu loolu nangu rek moo ko waral ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax loolu moo waral at mu nekk dana baaxoo ànd ak jotaay bi soxna maam Faati Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne ni moom it ku ne xam na liggéeyam ci sowu bi eh, ci diggam ak sëñ Fallou ci taxawaay yi ak daayira yi at mu nekk mu baaxoo ànd ak magam ju baax jii di soxna maam Fatou Mbacké Juma eh, tey jii mu ñëw teew fi teewaaleel ko ndax at mu mu fi ñëw bu mu ñëwee fekk ko fi rek. su ñëwee day wax ne su ma xasee ñëw maa ngi dugg naa ci biir euh, soxna su baax si di soxna maam Faati bii nag mooy soxna maam Faati Mbàkke xaar yàlla ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal di am mbégte ci teewaayam moom tamit ci plateau bi at mu nekk mu ñëw ànd koog ñun wéttali Serigne Cheikh Oumy ci jataay bi moom it yàlla na ko yàlla gën a dolli kattan te guddal aw fanam indi na fi itam ay teranga yu yaatoo yaato yaatu ngir ni mu mel ci sëñ Fallou ndax li mu wax rek képp ku defal sëñ Fallou dara ñun ñii nga koy defal ñu di ko nuyu baax di ko ziyaare waaye xam nga ne plateau bi nag euh, émission la boo xam ne ni àllarba ju nekk dañ koy amal tey nag ñu yaatal ko def ko plateau spécial ngir waajale ko bis bu màgg boobu ñu baax a ko ànd ak euh, sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñu di ko ziyaare bu baax a baax muy borom xam-xam bu mag boo xam ne ñëpp rafetlu nañ xam-xamam ci yoon wi rawatina ci télévision bi ak liggéey bu am solo bi muy def ñu di ko nuyu baax di ko ziyaare di ko jox wàcc waayam ci eh, jataay bi eh, tabaarakallah waaye nag mu feggoog eh, sunu xarit di koo xam ne itam sunu borom boole nañu ci yu baree baree bari kër gi itam di këram liggéey bi itam di liggéeyam keroog bi ko sëriñ Ahmadou sëriñ Ahmad Badawi jokkoog moom jox ko ci ay yitte ci saa saase la daal di euh, fano tey jii mu ñëw nag ànd ak ñun li nga xam ne mooy liggéey bi jóge ba Touba muy alaaji Serigne Gana Messere euh, Maxtaar moom it ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla yokk ko xam may ko kattan wéral ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci yoon wi bëgg ko koo liggéeyal ci xam-xam yàlla na ko suñu borom may ba mu yeggale ko ak euh, sagoom ñu feggoo itam ak sunu waajur yi nga xam ne ni waxtu wu nekk bu ñuy def émission day ñëw bu wootewul itam bu bu wootewul itam mi ngi soññee di wax ne maa ngi topp jotaay dara duma ci rëcci muy Baye Omar kan balay sax Baye Omar Kane nga xam ne moom werekaan la woo xam ne eh, jàpp naa ne woy wi mu woyoon Cheikh Amadou Fadal ci Omar woyal ma ki gën ci réew mi woy woowu day woy woo xam ne saa yoo xëyee rek danga naan tey jii lañ koy door woy mu bees eh, moom mii moo bind xasida googu ñu di ko ñaanal bu baax moom yàlla gën koo wéral yàggal ko fi may ko moom itam mu yeggale ab liggéeyam ñu nuyu itam nag ñiñ bokkal jataay bi yëpp Serigne Talla Niang mi nga xam ne moom lañu ñu war a àndal ci xasida yi mu fas nu yéenee eh, gunge ci jataay bi moom it di ko baax di ko mën a jàng xasida di ko yaru ti koo xam ne ni kenn la itam ci kër Cheikh Mouhamadou Fadal eh, di ko ñaanal yàlla moom itam may ko mu yeggale li mbëgg a liggéeyal Sëñ Touba ci xasida yi eh, mi ngi feggoon nag ak sunu kilifa gi nga xam ne tey teewal na fi alaaji mbàkk yu fay jombul incha allah balaa jataay bay jeex dana yegg si waaye moom fu mu nekk rek xar kanamam la fa nekkee niki ki jataay yi ñu fiy def ci télévision yëpp muy Baye Cheikh Balla Samb ñu di ko euh, nuyu baax a baax euh, di ko euh, ziyaare léegi nag ñuy def mooy mën nañu ubbee ak xasida maa ngi nuyu waa groupe kenn du sëriñ bi ñoom itamit ñëw nañu indi seen i teraanga sëñ Mama Cuuna ngi nii sëñ du wàdd ak sëñ Soxna Bintu Jaxate ñoom ñëpp ñëw nañu indi ay teraanga yu yaatoo yaatu sëñ Ibrahima Faye Cheikh Bakary mi nga xam ne ni foo gis Serigne Cheikh Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal ma nga ca way itam ñëw ne itam ànd ak délégation bu am solo ñu di leen nuyu bu baax a baax eh, di leen ziare waaye sëñ Pape Maguette mi nga xam ne nii foo gis soxna maam Faati Mbacke bintu Cheikh Amadou Fadal moom it ma nga ci way itam di jëwriñam jiite itam liggéey bi nga xam ne nii mooy bëgg fàllu yi nga xam ne ñooy liggéeyal Serigne Fàllu eh, ci ndakaaru ak bitim réew léegi rek la sunu yaay eh, sunu yaay di soxna si Alaaji Mbàkke yu fay di soxna maam Ami Njaay indi fi teraanga yoo xam ne sëñ daam Euh, foo ko takk rek ci ci ci ci takku am na euh, romb na ko ak it wax dëgg yàlla mu jëfe ko yéene léegi rek lay jokkoo man ne ma sama waa jooju aw ko ñaar moom rek laa am benn muy sëñ Fallou euh, yàlla ko yàlla dolli kattan soxna maam Ami Ndiaye madame Faye mu alaaji Mbàkke yu xam naa Ndiaye jee tax nag tey nee na ma ay njóobeen laay yóbbul teraanga moo tax faaw mu yaatu am na suñu benn wëlëre bu baax bu nekk fële ca Suisse moom it indi na fi teraanga am solo muy soxna faa ku bëgg sëñ Fallou moom it yàlla ko yàlla dolli ay xéewal soxna Samb ñu koy nuyu baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko taw tawféex Euh, sëñ Cheikh ñas Fadel Couture moom it moom la ñu àndal ci bis bi ci euh, yéen ndimo lii nga xam ne xottil nañu ko te sëñ rek tax moom it na ko yàlla dolli keew xéewal ma nga fële ca parcelle sëñ Cheikh Niass Fadel Couture yàlla na ko yàlla euh, gën a taxawu bu baax a baax te may ko mu yeggale téléphone am di 77 096 17 16 waaye saaxibu ki nga xam ne mooy xotti mbubb moom bëggul ko wax turam waaye yàlla na ko yàlla gën a dolli kattan sëñ Cheikh Niass jërëjëf waaye sëñ Mout Thiane mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Fadal ci Ndakaaru nga xam ne Euh, tey jii euh, dama jëlale turandoo yi ak bëgg fàllu yi barki biig la fi jóge ci jataay boo xam ne dañ ko doon defal sëñ fàllu mu ñëw ànd kook ñun ba mu jeex ndax nu mu mel ci kër sëñ fàllu léegi la ma euh, sëñ Ahmad di wax taxawaayam fii ci Ndakaaru ni ki Baye Cheikh Oumy mii di ma ko wax léegi ci taxawaayam kon sëñ Mut Caan moom it at mu ne lu ñuy defal sëñ Fallu ak lu ñu mën a doon ci ci Ndakaaru rek loole boo xoolee di nga ko damay wax ne moom benn marque la takk muy sëñ Fallu foo ko gis xamal ni ci yitte sëñ fàllu ne wala ndigalu doomi sëñ fàllu wala la muy dox ci kër sëñ fàllu la jëm yàlla na ko yàlla gën a dolli kattan wéral ko may ko mu yeggale ab liggéeyam moom it mi nga ànd ak sunu baay bale baay Moustapha euh, moom it bëgg lool sëñ fàllu tubaarkàlla yàlla ko yàlla gën a euh, may kattan moom itam euh, kon su ko defee sëñ taala bala ñoo tàmbali jataay bi dañ lay bàyyi nga ubbil ñu ay abyaat su ko defee ñu daal di ñëw nag ci sunu ñaari borom xam-xam yi nga xam ne ni buñ feggoog Baye Omar jàpp naa ne waxtaan wi tey dana jur njariñ lu am solo dama bëgg na tey nu waxtaan waxtaanee sëñ Fallou ci beneen facette ci beneen niveau wax naa ko ci démb rek ci beneen jataay ma ne ni nuy waxtaanee mbaaxuk sëriñ Fallou gi ak di waxtaanee jëfam murit gi murite gi sëñ Fallou murit ak ni mel ci Cheikhul Khadim moo waral lu bare bare bare bare bare nit ñi duñ ko ràññee waaye sëñ Fallou ku feesoon dell ak xam-xam la ku daan dund sunna la sunni yu li may wax naan sunna ñun du lu bees ñun tey ndax nun ñi nga xam ne ni noon ñoom la ñu yàlla booleel ñuy njabootu sëñ Tuubaa dañoo judd gis leen ñu mel ci noo xam ne kenn dabagu leen ci moo tax nun sunna jaaxalunu tey bu ñu jëlee sëñ Fallu ak sunna rek dana nekk loo xam ne nii ñëpp danañ xam ni mu mel ak réalisation tamit li nga xam ne ni def na ko fi diiru mu nekk fi Serigne Touba Xaadimu Rasuul yooyu yëpp danañ ci dugg muy ay point sëñ Jibi Diop xasida moom it ñëw na incha allah danañu woyal sëñ Fallu kon sëñ euh, Mortala ñu bàyyi la nga ubbil ñu ak xasida bala ñoo sori ci jataay bi بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لاذمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المسالح ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحزعت اللعين أخص من دنياه زادي للجنان وانخاد للهوى ولي صفى الجنان والاني الأبرار في الأخرايا وانخاد لي بالانتان خرايا رافقني إلى الجنان جيم ويسوايا ذو ذا رجيم تسعني اللعين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسنني عن جالب العتاب لم ينهني إلى دخول الجنة غير بشارات العليد المنة لم ينهني ذجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى ليشر المسون الله هبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وانخاد له بأنواع البديع براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت تسي عن الأقدار والمفاسد شرامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بذكره وما لاختاره وليخاد له وما بهابي الله الكرام الخرام وببخاء النبي صرا هبات ذي الجلال والإكرام لخلدات مرقب الكرام إلا خاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لذو أذك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله يعصت غاب عن الكون وفي بسط دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا خاب الخلات يا ما أسادي مضمني عصب بلا كسادي وخاني الباخي بسبورا تجارته لديه لن تبورا لم ينهني ما باعني الله فضلا ولا إله إلا الله يخوض لي بلا دعاء سمني من كان لي ولي سوى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وتاب الخربي ندع للإسلام عند خربتي لدى الجوائر منير تربتي نضيع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تذيل ما صبت للمصفع أغنى يميني عن هذا ومدفعي هدني الله وذعد علي إلى سوى أولياء عبس المعين سبحان ربك رب العصر عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك انتوا جرجف jërëjëf sëñ Mor Talla Niang xasida yi paseefu na njàng mi Euh, kon su ko defee euh, dañuy daal di tàmbali euh, jataay bi ci waxtaane Cheikh Mouhamadul Fadal ni ma ko waxee léegi ci ay fànn yu wuute muy ay tomb yoo xam ne ni suñ ko waxtaanee tey dana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy teewlu jataay bi. mën na maa tàmbalee jataay bi ak sëñ Gànna naa dalal sëñ Gànna tey mu dalal sëñ Ablaye sëñ Ablaye dalal bokk sëñ Gànna ndax émission bi émission am la moom. Euh, baarakallaa waaye ni ma koy waxee rek euh, dañuy toog fii def émission pare di waxtaan ci moom mii di waxtaan ci sëñ Saliou Samb ndax xam-xam bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ak ni ñu nekkee ci euh, sëriñ bi moom nag am naa vidéo boo xam ne bëgg naa koo teg ñu commentaire roondoo ko maa ngi moom ndax gis naa ko barki dem Daaru Marnaan baarakallaa alaaji sëñ Gana ñoo ngi lay nuyu bëggoon nga ñëwal ñu tey ginnaaw boo nuyoo dama wax ne juróom yi ku ci nekk mën nañ ci cee waxtaan mën nañu waxtaanee sëñ Fallou xam mën nañu waxtaanee sëñ Fallou sunna mën nañoo waxtaani sëñ Falloog liggéey mën nañoo wax sëñ Falloog réalisation ndax euh, bi nga xamee ne Cheikh Moustapha al Karim bàyyee na ko liggéey bi mu doon Serigne tubaa li mu njëkk def ci ay œuvre am nga xam ne numéro 2 bi amul mooy le 7 juin 1963 Cheikh Amadou Fadal yeggale jumaa ji ba inauguré ko 1963. nga xam ne loolu bokk na ci bëgg-bëggi sëriñ bu mag bi mu bàyyi woon ko fi teg ko ci loxoom Sëñ Fallu liggéey ba loolu sotti waaye fànn yi ñu mën a waxtaanee Sëñ Fallu it Alaaji Gana dafa bari muy ci ci ci actualité buñ ko dëppalee jamono ji ñu toll ana lan nga ñu ciy indil ñu waajale ko bis bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal ci kii nuy bëgg waxtaane ci weeru màgg wii mu gënee àddina muy euh, euh, weeru rajab mm-hmm. bismillah alhamdulilahi rabbil والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي شيطان فني مانا نيك تي ادنا بي نوغي لين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي نيانال الشيخ محمد المنتقى الخليفه سونو بروم ياغال في تويرال كو بنالي منال الاسلام يب ما غالي كو ديكو نيانال جابوتو سيرن diko ñaanal Cheikh Abul Baraka khalifa Cheikh Mamadou Fadil mi nga xamne mo nek ci bop njabot Serigne fallu ñaan yàlla suñu borom yagal ko doyeral ko jël nu yoyu yep nak ak ziare kilifa yep ak yoon wi diko tek teg ci loxo Serigne Cheikh ummi mom Cheikh Mamadou Fadal khadim rasul mi nga xamne euh waxuma serigne fallu mi way juram waaye jikkoy bopam ak baxam ak bëggam Serigne Touba rek man lako may lu ne biig ci guddi booba une ngi bëgg a jot may jokkoo Serigne Ahmadou Badawi ñoom la ñuy wax mu ne ma négal ma woo Serigne Cheikh ndax moom Baye Fall la loolu nag mooy tegtal ak murid saadi xam te kon ñi nga bokkal Serigne Fall lu bokk ak ñoom Serigne Touba ñëpp nangul nañ ko ko loolu ko noo ngi ci sant yàlla bu baax noonu alhamdulilahi la alamin ba ñu toogee jataay koo xam ne mën nañ koo seeral woowu melokaan noo ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom di nuyu soxna maam Fatim Mbacké bintu Cheikh Abdoul Fadal ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te ko bu baax ñaanal borom daara ji sëñ mbakk yu fay waaye jaare ko ci Baye Cheikh Balla Samb mii nu feggool sëriñ Amidou yow noo ngi lay beral am nuyoo bu baax di la jaajëfal ci taxawaay bi xam naa jafe ngaa gis waaye ginnaaw yàlla dogal na léegi la nga may jeex ci dëkk bi am benn problème ni ma ñoo xam ne buñ ma wooyee ay général la ñuy doon lu ma ci dara amul benn problème xam naa li nga def lépp maa ngi lay sant nag bu baax ci taxawaay bi di ñaan yàlla mu jàppale la gën laa dëgëral bu baax te fay la sa yéene sëñ Ablaye Diop mom sama grand frère la dama koy wax waxna ko sama nijaay léegi sëñ Ibrahima ma ko man nit bu xol bu rafeté rek dama lay bëgg man kima ragal rek moy borom xol bu rafet yomb naa ci jëfama ki taxaw nit ku bax la te wax di yalla daf nu ko won nak te da koy wax ci béréb yu nekkul lolo tax ñu diko ko ci mom yalla na yalla fay momit ci taxaway bi nit ku bax la ku labir la nuyu mboolem public bi fi nek man nako jaaré sama nijaay sëñ Ibrahima fay ndax sama mama ko jur kon nak man na jaaré ci mom nuyo bi ak soxna yeeg bokk yi fi nekk yëpp Baye Modou ñoo ngi leen di nuyu baax Baye Moutiam Baye Moustapha ñoo ngi leen di ziare bu baax a am ma ñoo ngi jaare ci yow kon soppee ñëpp ñoom it ñoo ngi leen di gërëm waaw di sant yàlla ci jataay bii nag muy jataay boo xam ne jataay bu solo la ndax ki ñuy bëgg a waxtaane ni ko waxee léegi di Cheikh Mamadou Fadl mu ne su ko waxtaane ci benn jataay mu ne su ko waxtaane sax ci ak dund ndax matug jëfam ak feesu jëfam waaye da ci amat goo xam da nga naan laaxar wa mooy mënul ñàkk ndax boo xamee lenn ci Cheikh Amadou Fadal ci wàccaayam ci fi ko suñu borom jaarale liñ ko faggul ak ciru boppam dangay xam ne kudul moom mënuloo man lim man wala nga mel ni mel doy na ci baax rek ñu ne diw kuy way juróom ñu ne Cheikhul Xadim ci la baax yam ndax sëñ Tuubaa moom man xadaa mufradan bi xayri mujaarin fii kajoorin bal fii jamii al bilaadi moom mooy cappa coli ji nga xam ne moom doo wëree kajoor doo fa gis ku fa ku ñu mel ñu ne déet du kajoor dong bal fii jamii al bilaadi sax ngay wax réew mépp ku mel ni sëñ Tuubaa amu fi doy na ci gën a baax waaye soxna aw bu sa almardiya mu baax mu sell moomee nga xam ne waxoon na sëñ Tuubaa na ko liggéey naa ci kër gi ba am ci rub jigéen yu jigéen yëpp am bëgg a liggéey ba am nag cërub góor te dem na ba am cërub jigéen ba amit cërub góor ba waaye sëñ Fallou it doy na ci rek dafa am lu ñu koy tagge boo ko waxtaanee woon ci jikko wala nga waxtaanee ko ci aw askan ak juddu bu sell rek doy na lim man mu man ko ndax koo xam ne ñaari càllale yi ko wër yëpp boo leen toppee day dellu ci yonente bi alayhi salaatu salaam ndax ma ngay dellu ci xasan ko soynu dellu ca fatimatu bintu rasul kon loolu sharifun bun sharifun tuuma jubluwu la loolu mooy mooy mooy mooy dëgg ci Cheikh Abdoul Fadal ndax loolu la koy feeñal rek mën ngaa tàmbalee ci boo waxoon ne euh, lenn ci aw boo waxee soxna Awa Bousso bintu Ahmadou Bousso ibnu Ahmadou Matabara ibnu Ahmadou Aliyu ibnu Ousmane bun Ibrahima bun Ismaila bun Zakaria ibnu Ismaila Souleymane bun Xasan bun Ibrahima bun Abdullahi bun Haruna bun Muhammad bun Abdul Fatah bun Muhammad bun Ali bunu abi bakrin bunu bin muhammad bunu abi bakrin aliin bunu muhammad bunu aliin bunu xasan bunu muhammad càllala googu day wéy bunu abdul xaadir bunu muusa bunu yaxya bunu zahidin bunu daawuda bunu muusa juwaani bunu abdullahi almahdi bunu sayidina xasan bunu sayidatna fatima bintu rasulullahi salallahu alayhi wa loolu boo toppee càllala googu mooy càllala cheikh amadul fadal ci abban wa ummaan ak ci ndey ak baay wet goko ci jaare ci rasulullahi la jëm kon loolu doyon na ngeen ak tedd nga ci koy waxtaane nu mel ak ko mu doon mu di koo xam ne it tey la Cheikh Ibrahima Diop almashari waxoon da caa feeñ yabunul xadimi la si yudaa bi fadilina maanaa la fadluka la unsa wala dakar sabaqta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusfar biha fikaru لقد تنشأت من شمس ومن قمر فصرت بحرا من الأنوار تزدغر لأن لو مسنج باجي وقت يعمل دول فاضل ده يخم نسنج فاضل لين كي واي يا ابن الخديم اللي سيجر ده هابي فاضلنا ما أنا على فضلك كن أمر سنجني لا أنزا ولا ذكر غور أمك وجيجن أمك سبق تجيلك جيت عند سي كم في علم مي خم خم كون سيرنا كي وخلول المشعري ما وخلوله دفنا نيراو موتي راو, te nee na sëñ Fallu moo jiitu ay kema fi ilmin wa fi adabin nag ak i teggi nag lépp wa fi fadaili lam tosfara biha fikaru ak ngëneelu sëñ Fallu lamboo yoo xam ne xel mënu koo daj laxatta nachata yaa ngi sosoo min chamsin wa min xamar ci diggante jant ak weer jant bay xaadimu rasul weer way sa soxna aw buso waaye bi nga sosoo ci jant ak weer nag ba noppi fa sirta baxran min al anwaari tasdaxiru mooy nga daal di nekk nag géej mbambulaan goo xam ne océan gu yaatu gu daj kon ku ab jant sos ak weer nga feeñ ci keppaaru jant ak weer ba noppi wëlbatiku yow nag di géej bambulaan loola day tegtale na say mbir faaw mu baawan loola la sëñ Moussa Ka tekki li bayit yi sëñ euh, Ibrahima ju almashari wax mooy li sëñ Moussa Ka tekki allahu sul fadlul ku mu jox ngëneel dee fi la yéem faadilu mooy fadlul xamim turam wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsun wa qamar mbakkeek mu soobee duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi kon tey loolu ñu doon wax ne euh, baaxi bokk dana war a loolu sa jëf mënta may seen jëf yóbbu fa loolu day tegtale wal baladu tey bi yaxruju nabaatu kon sëñ Fallu dafa jàpp ci bànqaas yoo xam ne bu ci nekk war naa tax mu tiim ñëpp war naa tax mu raw ñëpp waaye mu def ko gajaan yu boppam nag goo xam ne dafa am yeneen i jëfi boppam yoo xam ne ndax la koy tegtale mooy judd bu rëy baag selluk askan waag melokaan yooyu yëpp da koo def na gànnaay def ko jumtukaay boo xam ne ca la fàggoo li mu doon faggu ba tax mu mel ni mu mel ci àdduna ba doon ki mu doon lu tax ni mu mel mu mel ni boo xoolee fi mu jaar te wax ko rek moo lay tegtal ne sëriñ Fadilou mënu loon a ñàkk mel melokaan wu rëy wi mu mel ndax ay ngëneel dafa daje ci moom sun borom da ko may tawféex bi mu ko tànnalee way jur ba noppi tànnal ko béréb bi muy feeñe xam nga li ñuy tudde bii euh, environnement day feeñ ci jëmmi nit ki ci feeñ day feeñ ci moom fi nga feeñ jamono bi nga feeñi da ciy da ciy feeñ fu mu feeñe Daaru Salaam ci jamono bu mu feeñe jamono bi sëñ bi di sëñ ci Tuubaa loolu ab sew-sew la boo xam ne li muy tegtale mooy loolu kat la waykat wax caama wasasin la feeñ fa Tuubaa am na ñu naan Daaru Salaam la booba ca moo ma at la ma génn daaru di sañ ci Touba ñëppi waaru kon man nga ne ndax ci muharram bi la sëñ bi doon wër tuubaa waaye nag bi mu tàmbalee sañ ci dëkk bi kon dangay wax ne moo tolloog feeñu jamono Cheikh Amadou Fadal kon li sëñ bi doon wut di ko bëgg tamit tuubaa gi nga xam ne ñëpp ki doon sàkku tombe naag feeñu Cheikh Amadou Fadal waaye dëkkam boobu di Daaru Salaam nga xam ne ca la ñaane woon boroomam rabbi biha minal wara maa laa toxat yaa xayra man rabba wa xayra man waat lola it na ci e, ngëneel yoyu mu am ci feñ ci dekk bobu di daru salam waye it yemut ci loola nak mu jaar fi ñepp di jaar li tax li nga tuddu legi ci xam-xam bu bari ba ak melokan wa la ko tele moy fa mu jaar waye xoolal liñ ko fagul bam ne ci xama wasi sin la feñ fa tuba am na ñu nan daru salam la boba ci momat la mbër ma di sañ ci Touba aljuma tey kasu rajab la ko jundul ilaahi dar ko mbërëm a bakku ba tey it bis bi mu feeñ it dafa am lu mu joué waat jamono bi mu feeñ am lu mu joué waat ndax aljuma tey kasu rajab la tag ko jundul ilaahi dar ko mbërëm a bakku mu feeñaat bis bi gën ci bis yi it mu feeñaat ko muy bisub aljuma loolu it feeñaat ci feeñ nag ci weer wi nga xam ne muy weeru rajab waaye weeru rajab bi mu feeñ mu dakk ca bis ba nga xam ne ci la histoire bi gën a rëy te am teyaaba ak yiwu gën màgg muy kazu rajab te mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab di bis bi nga xam ne kon moo tolloog bi sunu borom jëlee yonent bi alayhi salaatu salaam ci baytullahi alxaraam indi ko ci baytul maqdis ci Jérusalem yéege ko nag ba mu em suma dana fa tadalla fa kaana gaaba gawsayni aw àddina fa awxa ila abdihi ma awxa كل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله كون لولو دويون نا تك تالوب باتاي كي فيغ ليم اندال سي غني ليغا خامني يي وو كون موم موك جولي ньо بوكو انيفرسير تا لولو ييت منين مير لا مو خامني تخنا لي تخ لوتي نيك لا مالاي بغا جوخ اي سيبور يو تخ لو سيغ فالو ديف لو نيك دغر غي مي دغر با ام تي سلايول مانا ديف لولا لولا ييت كون واتاي لا وو دغر وو وقت وي موي فيغ موم لا سيغن توبا دي واخ تي يوننتي بي لا انت امام رسل قد جاء انهم تلاقوك في الاسرار والكل قد صلى لبست في ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما اعجز كلها كون نك من الجنوا تي كزور جبل تاكو جل الله دركو برم باكو نانا كروك دام دان بونكو بيسوب كرو بونكو نامبال فيك جانتي سو بونكو جوخ توكانتال لوليت منين ميرات لا مو خامني خامني moom sëñ Fallou dafa feeñ sëñ Tuubaa bu ko kenn jox aw ween mu nàmp bu ko kenn jox toqantal nee na bisub keroog wax ne rasulullahi ñëw na fa ngir juddoom nga duuna laahi loolu it xanaa defe naa ku rasulullahi ñëw fekkee sa bisub feeñ jamono it defe naa meneen mbir la kon sëñ Fallou loolu lu lu yaatu la lu daje loo xam ne eh, yàlla jagleel na ko eh, sëriñ eh, Cheikh Mahmadul Fadal waaye yëmul ca loola nag mu boolewaat ca nag ba mu amee yoon wu leer wi mu jaar ak melokaan wi ak tedd ngay dox doxiin wu sell wit mu jaar nag fi ñëpp di jaar mooy jëmmi sëriñ bi ci boppam dalalal ko boppam alquran mook Cheikh Mamadul Moustapha nga xam ne fii ñuy wax Daaru Rahman muy daaru naar ci kër sëriñ Chouaïbou sëñ bi fi la leen dalale mook Cheikh Mamadul Moustapha kon ba mu leen dalalee alquran it fan la jaaraat boo demee ci euh, nusxatu nadim comme ni nga waxee waxtaan wi moo tax ñu bëgg koo jéem a teg ci ay texte ba demee ci nusxatu nadim abdourahman al alawi moom am na ci bunt boo xam ne bi muy indi ci sëñ Fallu loolu andi xat axadal quran la fi thamanin an imaami abdurahmani kon kooku wan na la ne ci sëñ daam abdourahman gis naa Baye Omar mi wax ne sëñ a jàngal Cheikh Modou Fadal nu wax mu mokkal kon ki bind loolu it mi ngi mi ngi teg moo réew ci réew mi kon loolu it tegte la عبد الرحمن مولاه من وبحن لو اشتغل بالعلوم فاحتاط بالمنطق والمفهوم عمل علم عمي حصل علم عمي فهيما بحر الحروم الشيخ ابراهيم loolu la al ala wax ba tey fan la jaaraat maam Thierno Birahim jàngal ko xam-xam waaye ilmu tafsir sëñ maam Mor Jaara borom sam jàngal ko waa axasal ilm baxida ammihi an xaali aqil butuli ummi al musubil murtada muhammadi hamil rayil huda muhammad nga xam ne fi mu jaar yëpp alxala yu mu da ko tegle kon wax naa la ko feeñ ci askan wu sell feeñ ci béréb bu sell ci jamono bu sel ci ay circonstances yoo xam ne yu yu yéeme la mu ne kon ba muy jàngit nag bu dee ci xam-xam li tax bu dee bunt boobu xel ma mel ni seyaan di xel li lu mu mas a gis mokkal ko mën la gàlli kon kat koo xam ne loo gis mokkal ko mënoo gàlli waaye nag delluwaatal ci alaala yu ba tey la mbax bi fahmihi yaqulu man yadri law iktafa kafaahu an naqrihi yaxaalu man yaqri an xad xad dara xablal xiraati li si kaana xara nga xam ne kon waxuma la mokkal leçon bi ñu koy jàngal sax moom sañ Fallu waaye bindub tayam bii mën a jàng day tax bindub tay bi day tax mu mokkal bind mu man bind ba ca topp te jàngale jàngalagun ko ko nga xam ne loolu boroom xam-xam a seere loolu te ab téere ci ci téere la nekk mu tudd Nuzhatun Nadim am na wax na ca borom daaru wax ca Cheikh Massamba Mbacké wax ca Cheikh Mamadou Moustapha wax ca Sëñ Fallu kon koo xam ne euh, booy jàng sa dégg man maana ak xam liñ lay jàngal mën a comprendre bu baax tax na ba bindu tey bee koy sax tekkil bind ba ca topp ëllëg loolu loolu la loolu la loolu laa lay wax tax mu dégg ko kon ba ba mu jàngee foofu ba noppi nag kon doyoon na ci te jamono bii jamono bu bu tar la ndax fekk na booba jëmmi sëñ bi ci boppam mi ngi ci liggéey ba ndax bi mu leen dalalee ab diir mu dem Mbakke Bari ci la dem ci tukki bi waaye kon nag yitte xam-xam jooju ak bana a jàng ga texul nag lan la ko yàlla wërsëg razaqul ilaahi fahman wa daka ahadda min sayfin wa do min daka kon ñaw ga ak yeewu xel mu ñaw ma macha allah taxoon na ba loo koy jàngal mën ko dégg bu baax a baax waaye ba mu jeexalee ci njàng moom it ba noppi nga xam ne jëkk sëñ bi di ñëw jóge ci géej gi seen kaamili alxuraan yooyu noppi na waaye la ca yéeme bi sëñ bi ñëwee ci waajtaay wu dëgër bi mu ko waajal mooy dafa dem gànnaar gànnaar it ba mu fa yeggee kon dangay mel ni man ngaa wax ne ak tàmbali tërbiyawaat day ñëw ci sëriñ bi nga xam ne léegi nag mi ngi tàmbali di am leneen lu muy def ci moom dam dajalee la jublu réewi gànnaar fekk sëriñ Tuubaa fa Ali Muxtaar doon ab tuumam leelam ja fees bay tuuru fu mu toll naaree naa ki yi muxtaaru nga xam ne moom booba sax sëñ baa ngi fi waaye naar yi dañ daan teel a waaru ci sëriñ fallu ba bu ñu ko gisee naan kile mooy muxtaaru kon am na wàccaay wu dëgër woo xam ne euh, yàlla waajal na ko euh, Cheikh Mamadou Fadal gànnaar déggante bu metti la woon sëñ fallu doyoon na ci gànnaar ku fa jóge rek doyoon la ci ngëneel ndax gànnaar neexutoon da étape la woon bu tar nga xam ne te bul jàpp ne xiif ba sëñ Abdou Karim Touré doon xiif wala sëñ ma Madiba Sylla xiif ba mu doon xiif bu jàpp ne sëñ Fallou daawu ko xiif wala Cheikh Moudou Moussa daawu ko xiif kon day mel ni loolu it mën nga cee jànge màndu sëñ Touba ak mën a defaru sëñ Touba sëñ Touba ku màndu la ku màndu la te te te du tooñ waaye li muy li ngay xamee li fi moom ni ci jote mooy noonu ñu ko doon fàggoo nga xam ne ca gànnaar daanan xëy suba ba ngoon nga bu pepp wala kolkolub cere la ñuy am kibéerug setal ak ndox lañ koy jàllale bu dellu si waxtuwaay ñëwaat ca ci ëllëg kon xam nañ ne li ñu doon wut ci sëñ Tuubaa ni ñu ciy jotee doo lu nit di caaxaane wala lu ñuy foyee ñu sax foofee di boole jàng ak liggéey ndax gànnaar dangay boole am kattan man alxuraan am cawarteeg man a liggéey loola doyoon na ci takku ndomba gañ fa takk ca gànnaar inna alladina ila sarsara xad xasadu ziyaarati faaraxu daaray di aw loolu doyoon na ci médaille ki am loolu ca gànnaar mu doy sëkk waaye nag sëñ Fallu taxul mu mu mel ni kuy waajal rek ba sëñ bi ñëw ci yéen mu nekkat beneen étape ci moom it du béréb bu neex xiif mar coona tumuranke moo fa moo fa nekkoon na fa te ci ndax am na bis boo xam ne seex Moustapha ak Cheikh Abdoul Fadal Cheikh Massamba bindal nañ sëñ Tuubaa ba noppi sëñ bi génneel leen digg kaasi baraay ne leen lii la ma yàlla jox ci dund te moo ne loolu day ñëw ndax sëñ Tuubaa bi ñu ko xasee dégg rek fu ne day daal di toj ci àdduna bi dem wuti ko sëriñ bi it leen a leeralal boppam ba tax li muy man mu man ko mooy wax gam waxal boppam ne duma bàyyi kenn du ma yi kenn du ma nijaayi kenn te booba Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Abdoul Fadal la fa nekk ak sëñ ma Samba ak sëñ ma roq Roqaya Bousso loola kon am na lu mu jubloo wone waaye fekk na nag jëmm jii di sëriñ lu moom nekkoon na ci wàccaay ak laltaay gu dëgër ba waxee loola it sëñ amidu doy na ci rek sëñ fa lu jaayu njureelam jënd ak taalibeem loolu doyoon na ci waaye xoola ba mu koy wax ni ngay xamee ni mu fonke li mu am ci biir ni mu koy taggee nga koy xam defe naa ñi ñi jàng noonu doon ko ne suñu ëlli na it waaye mën ngaa dégg nag waxin wu neex yaa ayu cheikhu nafisal murtaja yaa fatihan ma kaana qablu murtaja nga xam ne def na ko sang bu gànjare boo xam ne la gën a kawe ci yi gën a riis gën a foor moom la sëñ Fallu wax sëñ ci ak yaakaaru goo xam ne lépp lu tëju woon rek euh, tijji na ko mu ne ko lan bextu bu nu watee bil iraada lakkum le koy orza bi aada jaay naa lii di sama ak njuréel ci yow tey nag lan laa ko jënde nag mooy dama ko jënde ak taalibe al iradatu sadiqa laa ko jënde ngir lan li koy oxsa bi xarqa aada kon loolu it beneen taxawaay la waaye sëñ fallu ku jaay yaa moom sa yëf te kat yàlla ba mu jëndee bakkani jullit yi muy way gëm yi inna laa ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon man nga ne ñoom bénéfice bu àjjana lañ amoon ca lañ doon wut ak ngërëmul yàlla lañ doon wut ndax yàlla gërëm leen ci jaayante gan jaayante waaye sëñ Fallou nag bi mu jaayantee ba xam nga xam ne àjjana ji ca war a juddoog ngërëm yi ca war a juddook pay ga ca war a juddoog yëpp mu xam waat na min baax dama serenituha min ni inni ahdaytuha lakum bi xeyri nekkaat beneen beneen étape moom moomu njureelam jaay na ko jënd ak taalibe moom njëgam waaye jëlaat njëgg nag joxaat ko Serigne addiye kon loolu meneen mbir la moo tax ku ñuy wax Serigne Saïd mbakke Serigne Saïd ci mag ñi la sëñ Touba mas na ko wax na ko Mouhamadul Fadal jaaxalu la Serigne Saïd sëñ Saïd na ko ah kay jaaxal la mu ne ko bala nga cee yéemu da xam li mu def sëñ Saïd na ko bu ñu ko xamee jël mu ne ko ku amul lu may lenn man koo jaay muñ ko looloo tax Mouhamadul Fadal jaaxalu la ndax amul lu may lenn man koo jaay kon mooy mooy sëñ bi moom moo moo moo yéemu sax ci defi noonu te defe naa am na lu mujj boole Serigne Saïd ak Cheikh Amadou Fadal ca seen warga waa yeneen ca xew kon am na lu ca wone diggante sëñ Touba ci loolu mu saxal ca la waaye ba mu ko defee ba noppi jox ko njëggaak yépp fal taqbaluha ya maladu karama laal si moo bay bayna baraya alama nga xam ne kon kii di wax da ngay xam ne ni mu feese géeju ci xam-xam kon léegi fees na ba noppi lu mu def nag aw yoonu làmp doon muridun saadiqun cafeel gu mat sëkk la am bay waasix seey ci Serigne Touba ba mel ni suukar su topp am ndox naat ba mel ni ab dër juddu baag xam-xam baag fam jaar yëpp léegi nag aw yoonu làmp li muri luñ saadixun cofeel gu mat sëkk la am bay waas yax seey ci Serigne Touba ba mel ni suukar su tab bi am ndox naat ba mel ni ab dër nga xam ne cofeel gi mu am ci Serigne Touba ba jeex ci moom takk dafay mel ni boo jëloon ndox jël suukar def ko nanga ko cay xooyee la ba mu jeex ca takk nee na noon la sëñ Fallu mel ci sëñ Tuubaa jeex ca takk ca moom te loola bu bu la ko waxee loola it da dellu ci biir ay mbind na moom ak i waxam ca ngay xam kii ban dayoo la teg kii mu àndal muy sëriñ Tuubaa mu xam le ne sëriñ bi kat am kem amul ku mel ni moom amul ku beru la koo xam ne ku wéet la boo ko nattee ci jëf boo ko nattee ci jikko boo ko nattee ci doxin loo ko natt rek mënoo gis ku lu mel kon yaaraa ay man mis la fa lasta taraax yow mi nga xam ne dangay sàkku bëgg a wut ku mel ni sama sëriñ bi defal ndànk doo ko doo ko gis mukk waaye gis nga ba muy ba muy tagg sëñ bi it xoola ci lem tagge sëriñ Tuubaa taggewu ko ci yaay sama way jur taggewu ko ci yaa rafetu askan taggewu ko ci yaa màgg nangam waaye lu mu ko taggee da koo tagge xat faaqa fil ilmi wal juudi sëñ Tuubaa dafa kawe nit ñi ci xam-xam nga xam ne tey beneen jàmboor bu doxoon ba yem ci bayit wi sax gis ko du ne doom la juy wax ci baay waaye boroom xam-xam bu sell bu màndu bu ragal yàlla buy seere ci nitu yàlla ko sell la kon da nga cay déggee loola mu ne sëñ Tuubaa kawe na fi la almi nga xam ne bu dee xam-xam sëñ Tuubaa ca kawe ñëpp bu dee ak tab sëñ Tuubaa ca kawe ñëpp mu ne mazaala lillah yahdi muridahu muridahu bi ridwa sëñ Tuubaa mooy koo xam ne musul dañ mukk di gindi di jubbanti muritam ba di ko jëme leen ci ngërëmul yàlla mu ne nag wa qallama in taraahu ila al waqaru xashaahu ak a néew nga ne ko jàkk te du fekk ak tëy ak worma ak waggar gu mat sëkk guy guy nekk ci moom nga xam ne day boole xëy ba ba nga xam ne sëñ bi noonu la meloon sëñ Tuubaa loo mën a baax baax boo ne ko jàkk am loo yëg ci moom nga xam ne jalaal ak jamaalam loolu sëñ Musaa Ka naan alam tara aynaaya misla cheikh yi jamaalan wa kamaaran wa saara waski sama ñaari gët yi daal mosul gis ku mel ni ku mel ni sëñ Tuubaa nga xam ne mag ñi am na ci ñoo xam ne egg nañ ci di wax ne ni sëñ bi meloon tax na ba buñ ko gisoon baa ñu dégg kàddu gi rek moo leen dàqal bànneexi àdduna yépp nga xam ne duutuñu xiif duutuñu far mar duutuñu yittewoo ay soxla loolu ku ñuy wax sëñ Mayasin Ummi jang waxoon na ko la ru'yatu la ru'yatu cheikh fii dunia wa kilmati ashha min al ghidi bal andi wa amwali neena na bu ma ko déggee kàddu gay riir baa ma seen yére yi rek moo ma dàqal bànneex yëpp jigéeni adduna yeeg alal yëpp kàddu sëñ bee ba ko dàqal moo tax sëñ Fallu wax nag kon taaram ba ak melokaan woowu mel mu ne mooy koo xam ne it boo ko bëggee xam ba noppi ku jege ak ku sori moo yam ci moom kenn musta ñëw fu moom sa yaakaar tas moom Serigne Touba waaye nag sëñ Fallu dem ba yàgg mu ne kii nag dafa ñëw yeesal diine ba mel ni mooy ki ko tabax nga xam ne ci moom dafa mel ni ci moom la diine jooju wàccoon mu door indi nag gis nga tagg na sëñ bi ber na sëñ bi ba noppi door a indi boppam na kookee nag xubbi la ko dëhër yuxu nii an xubbi siwa bëgg gii ma ko bëgg man sëñ Fallu fees na sama xol ba bëggatuma dara kon li sëñ Tuubaa leble woon ci rasulullahi ñu ngi ko koy fay ndax mahat mahabatiyal muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada dooma nga ca biir bëgg rasulullahi tax sama xol bii bëggatuma doom bëggatuma alal bëggatuma dara sëñ Fallu moom it ne sama xol bii de bëgg gi ma ci bëgg sëñ Tuubaa mu nekk ci tax na bëggatuma leen waaw ndax bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa nan lay mel yasdaadu fi kulli xiinin fil xalbi bi ne hawa waxtu wu ne daf may gën a dolli bànneex lu may dolli bànneex gën maa dolli bëgg bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa ba yegg ci ne saf ko dumaa al hubbil xadiimi fardan ara yegg na sax sotti rongoñ ngir sëñ Tuubaa loolu moom farata la ci man kon Cheikh Amadou Fadal moom li tax loolu mu mel ni ba melokaan woowu mat ci moom sëñ am ba dox doxinu biir woow ak nu bitti woow daje ci moom loolu dafa tax mu man koo doxee xam-xam ba mat na jëf ja mat na jëf ja loolu lépp mat na waaye kon lii lépp man ngay nettali ay wax la mooy gànnaar jaag ceyeen jaag lépp teewul muy taxoo Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa jógee ceyeen ñëw albuqaatul mubaaraka muy njaareem waaye waxtu wu nekk nag lu sëñ Fallu def ci Sëriñ tubaal lu nekk ma ngi koy xeebal boppam ngir bëgg di jëfaat ci moom ngay déggee koo xam ne waxtu wu ne ay bataaxalam daana dem ci Serigne Touba ngir di sàkku sëñ bi di ko liggéeyloo loolu du dakk waxtu wane sëñ Fallu di bind Serigne Touba ay leetar di sàkku Serigne bi di ko liggéeyloo waaye ba leen bi joxee ndigal ngir ñu jógeem njaareem sañ jox sonal ma ab Cheikh Mamadou Moustapha muy tindoo di sëñ Fallu sañ ci ndindi te loolu booba ku tedd ki Cheikhul Khadim mu ngi fi waaye ñu boole di liggéey muy boole di liggéeyal Serigne Touba ci tool bi ko gënal. muy bind alquran di jox Serigne Touba lolé yi taxna ba melokan wowe mu am jurlo ko mu donu serigne bi ci yeb defena amna ko don wax ne yabunul khadim alladhi ma halla saatuhu atin yurajihi illa salla faaqatuhu mi serigne Touba ji ñuy wax serigne Fallu de kon social bi day dugg kenn du wàcc ci ëttam te amo lu kawe sa njort moy li way wolof gi wax naan du xoti satir du tas yaakaar daw ko ko laaj ko laaj mu may la nga gijeel Fallu xal niyu la xajoo gi ñëpp nag loolu dinaa la ci nettali ab xisa boo xam dafa am kilifa bu baax boo xam ne dafa bari yëngu doxinu jamono bari tam bari mi riir benn bi sëñ Fallu na ko ma sëñ Fallu na ko gane si ma ne ko man damay ganuk sën damaa bari taq-taq xam nga kon mënoon nga ko wax nii rek mu ne la accam wala mu ne la nangam waaye ba mu ne damay ganuk sën dama bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu woyof na tong ci kaw bu duus ñëwee na ko tonet xam nga loolu loolu mooy makaarimul axlaax loolu mooy tedd ngay jikko mooy xajoo ñëpp mën a defar ah xam nga loolu mooy li sëñ Tuubaa meloon di jox aji laaj di dimbalee dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam di may ko ko bañ di woo ko ko foñ di neexal safoo ko ko soof ku dul kuy mooy boroomam kon jikko jooju la doon moo tax mu ne doomi sëñ Tuubaa jii di sëñ Fallu kenn du wàcc ci ëttam te amul kawe sa njort kon warisa sa cheikh fi alimin wa maarifatin man salli si laa yuri fii ka warisuhu kon donn na sëñ Tuubaa ci xam-xam ndax donn gi mu ko doon ci xam-xam mooy la Mouhamadou Daymani waxoon bi muy tagg sëñ Tuubaa ida rumta min al ilma nilta ulumahu wa in rumta maalan lam yulaaqi bil azar bu fekkee ne da ngaa bëgg xam-xam boo ñëwee ci sëñ Tuubaa fees dell bu dee alal la tax a jóg sëñ Tuubaa du la jox ngant ndax loo ko jox mun a tegal foofu loo ko laaj mun a jëlal foofu kon mun dafa donn loolu euh, Cheikh Mamadou Fadal ci melokaan woowu donn googu mu ko ba tax loolu sëñ Fallu man ko moo tax ku ñëw fi moom defe naa ñi doon calcul gis nañ ne koo xam ne lu tolloog 896 ci aw nit yóbbu nga leen mag 607 millions fay nga ko ci ay bor fayal ko jullit ñi ci waxtu wi nga tooge xalifa sëñ Tuubaa nga xam ne fayal nga nit ñi lu toll ci 607 millions 400 nangam ci ay voiture nga maye ko yóbbu Makka huit cent et quelque huit cent quatre-vingt-seize nangam sëñ Fallou yóbbu na ko aw nit ci Makka ba noppi quatre cent mille la fi bàyyi defal sëñ Tuubaa jumaa ju toll nii te kër gi mu dëkkee Birahim Almet mën na ko jeexal kon kay lii waykat bii wax da nga ko mën a gëm zahidta fi daarati shawqan li xaaliqiha abdan lahu muxlisan dëban ibadatuhu kon kat dëddu nga àdduna ngir lan dëgmal ëllëg yàlla rek ay si mbir yow sëriñ sëñ Fallou waaye nag wa man yakun xubbu mawlaahu tijaratuhu yara baax lahu la zu alaay tijaratu waykat bii nee na ko képp koo xam ne yaa ngi yaxantu xam nga kii yaxantu dem ca marché yi di jaay waaye yow da ngaa def bëgg yàlla muy sa yaxantu yow suñ fallu bëgg yàlla muy sa marchandise moo tax nag faaw ngay tone kon jëf jooju wane na ko loolu it am na ku ko taggee woon sëñ Tuba muy Abdoulaye Salim kadalika man lillahi kaana yakun jaharan wa siran bi ayati wa nasri kon li ngay tënk daal li ngay dégg daal mooy sëñ fallu booy waxtaane sëñ fallu yaa ngi waxtaane jullit xaqan maanaam mu'min muslim muhsin ñett ñooñu ñooy ñan mu'min yonent bi sallallahu alayhi mas na laaj saxaaba yi ne leen ma manil mu'min ndax xam ngeen kan mooy aji gëm yàlla ñu ne ko yàlla ko yonente ma ko xam mu ne aji gëm yàlla mooy koo xam ne jullit ñi dañ ko wóolu seen alal wóolu ko seen bakkan te defe naa loolu moom ah jërut ab atte nit ñi moom wóolu nañ sëñ fallu ci seen i bakkan waaye wóolu nañ sëñ fallu ci seen alal ab jullit mooy kan mooy ki jullit ñi mucc ci sa lori loxo mucc sa lori làmmiñ mës sa gëdde mës sa xaste mës sa toroxale mës sa bëccëngale mës sa wax lu ñaaw lorul kenn doorul kenn almoxsin mooy kan koo xam ne looy jëf yàllaay tax mooy ixlaas sellal loolu mooy melokaanu sëñ Fallu arkaani imaan yi nga xam ne amul lu mu dese ci àdduna buniyal islaamu ala xamsin shahadatu an laa ilaha illallah wa iqaamu salaati wa itaau zakat wa sawmu ramadan wa xaji baytillahi alxaraami sëñ Fallu seere na ne yàlla ay buur feeñ na ci mbindam ki waxam ndax li xëy rek la nasku ku dul jàmbar lu dul yàlla li yëf yi bari bari lu jóg yàlla la koy jëmale moom sëñ Fallu kon yàlla kese lay ñëpp tawxiit xam nga coow lee bari rek baatin baag sañ-sañ yaa ngi may may ak melokaan wa ak tedd nga ña damay wax loolu toujours na mi ngi mel ni adduna booy door a tàmbali am loo amut dem ba am dara sol mbub mu rafet du bëgg adduna addunaa ko indi fi yow li nit ñi coowee sëñ Fallu yëpp yàlla kese ñu bari jotuñu ko ci yegguñu waaye wéetal yàlla kenn jotu sëñ Fallu tawxiitam kon ponki diine mata taxawal julli waxuma la mën a julli waaye daa mën a julli ba taxawal jumaa ju ñuy jullee te waxtu wam koy taxawal jafe woon na ci man koo taxawal aj màkka moom taxul ñuy wax waxtu wam ko def waxuma la aj màkka waaye ku aj màkka ba noppi yóbbu 896 personnes ñu ajawaat màkka kon defe naa matal nga say ponk ba matal ponki ñeneen bu dee weeru koor moo daq woor bu dee aj màkka kon sëñ Fallou ngoog mooy al insanul kaamil ki nga xam léppam dund Sëriñ Tuubaa la noo ngi nuyu sëñ Cheikh Awa Balla mii di door a agsi léegi xam naa damaa xamagul fooy jublu waaye bu ma defee noonu rek mën a bàyyee jataay beeg gaa ñuy doxal seen jërëjëf euh, sëñ Gana euh, Messere Maxtaar euh, waxtaan wi ni nga ko ubbee am na solo ndax ñëwal nga ñu ci ganek àddina Cheikh Mahamadou Fadal ñëwal nga ñu ci keno yi nga xam ne nii ndax dañuy wax ne booy waxtaanee kilifa faaw nga wax fi mu gane adina fi mu jaar ak yooyu su ko defee yooyu yëpp andil nga ci ay point yu leer euh, ñëwal nga nu itam ci xam-xam diggam ak xam-xam wax naa ko léegi ci li mu bind ak si asl maanaam maanaam maanaam maanaam euh, euh, fondement yi mu bindee mu nekk lu am solo su ko defee ñu ngi nuyu bu baax di dalal Serigne Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne nii yegsi na léegi ci jataay bi ñu ngi ko doon tudd léegi di ko séentu ci njalbeenu jataay bi euh, Serigne Cheikh Oumy moom Cheikh Amadou Fadal doon ko yëgluwaat léegi nii mu yegsi moom nag day sunu waajur di sunu sëriñ di sunu xarit damay faral di wax lu bari ne bariwaan na ñuy dem ci jataayu Baye Cheikh Awa Balla thème bu ñu waxtaanee lu fa jële ndax moom xam-xam rek lay waxtaanee su ngeen toog itam li ngeen di waxtaane mooy du génn yoon wi du génn luy jariñ taalibe yi kon nag Mbàkke euh, nun am nañ tawféex ñun tawféex yu ñu am mooy ñu ne la kat sëñ Falloo ko meññ diggam ak sëñ kenn dox si ñu bokk ak ñun benn jataay rek nun am nañ tawféexi sëñ Tuubaa waaw ah, alhamdulilahi rabil alamin ndax noonu lu waaye mën a wax moom doom sëñ Fallu moom ñëpp a koy wër ndax da xam ne foo dajeek moom baarakal baarakallaa Baay Omar bu compalee dong sëñ mbir baax kon bi bin amee tawféexi bokk ak benn doomub sëñ Fallu rek ëpp nañ jataay rawatina ngeen ñëw ci ñëwin wu rafet wii nga xam ne moom ngeen ñëwee eh, te it xam naa ne su ngeen jógoon fi léegi sëñ bi ne leen am nañ beneen jataay Kolda it noonu ngeen koy toppee dem ci ak bëgg googu ak noonu ngeen ànde di dund ki nga xam ne ni tey suñ ko waxtaanee ki démb rek laa koy wax ma ne leen ku bokk ci sëñ Fallou ñu ne daa baax mbaa daa woyof wala daa yaatu wala daa bëri yërmande loolu moom du doon kéemtaan mooy li sëñ Fallou daa wax naan li jógee ci frigo bi eh, sedd du kéemtaan waaye la fay jógee tàng loolaay kéemtaan waaye nag sëñ doomi sëñ Fallu daa baax mbaa daa woyof mbaa daa bëgg nit mbaa daa mën a jaxasoo loolu moom du kéemtaan <laughs> ndax moom ñoom ñëpp loolu moom ñoo ko bokkale Pape magget eh, kon ñu ngi lay dalal bu baax Mbàkke ak ñi nga rawatina sama baay ji nga àndal baay nga xam ne eh, néewaana lu muy jokkoo ak sax ci téléphone teelu moom murit la <laughs> barki sëñ Tuubaa eh, yàlla ko yàlla gën a sàmm may ko mu gudd fan loolu yeggale kon ñu ngi koy dalal bu baax a baax di continuer nag ci jataay bi di nuyu baax sëñ Mamour Mbaye Euh, tey moo yore kafe gi ñuy séddale incha allah tey moom nee na woon na bu yàgg nañ ma defal table su ko defee damay bëgg nii nga toogee nii ngay jóg su ko defee yow moom place am nga ne moom ku ne fa nga toog sëñ Maamoor lay fekk fa nga nekk tey xelli la café gi ndax loolu mooy loolu mooy loolu mooy waay loolu mooy wàllam tey émission bi mook sëñ Moustapha Kan tey ñoo géré caméra bi barki démb rek def nañ jataay bu solo ci sëñ Cheikh Mahamadou Lamine Bara boo xam ne jataay bu mag la tey jii ñu ñëw ne liggéey bi noo koy àndaat ñooy séddale xéewal yi nga xam ne moo fi ñëw ànd kook daayir bëgg fàllu yépp seigne Moustapha kan diwan ma nga neli and ak seigne mamour mbay ñi ngi leen di nuyu seigne mu seigne sëñ Abdoulaye Diop Bichri damay dal di ñew ci yow ndax lima wax léegi rek bi may tambali euh wa da da nga koy jox plate bi su ko defé fi du bax na table ji andu sen ni taabalam ji na andu sen ni ni mu feroon ko layu ni bëgg lu yomb la def nañ indi table ji ni mom mu tok ci table ji jog di servi ku ne fam nek ya ko fay fekk jox ko kasam Euh, tey loolu mooy kii fàllu Mbaye daa waroon a ñëw doomam ndax moom doomam sañ Fallou la ko tuddee euh, te it muy ku am lool ndeysaan euh, bokk na ci turandooy sëñ Fallou yi sëñ Ablaye fi sëñ gànna daaneel rek fa lay ñëw bëggoon na ñëw rek ci ñëw na ci fi nga xam ne nii fa jaar waaye buñ ñu tuuti ci wàllu mën nañu wax sëñ fàllu écrivain façon bi muy bindee sëñ fàllu ni muy bindee gis nga wax na ko léegi ci biir rek yaara yaaraa iman say misla say xi mahalan fala sa tudd na léegi màkk ji bi muy dem gis nga ay bayit la ko tëggal door a dem jébbalu gi kenn du ne fii la jébbaloo baat yi la wax ci baati wolof dangay wax ne lii la jébbaloo bañ ko ci fayee lii la ko wax wax na ko léegi min baax di mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri man ni lenn lu mu doon ci façon méthode bi mu bind gis nga am na bayit yu neex yu mu bindoon eh, maam Cerno Ibrahim daamal daaru mi nga xam ne daana wax ne eh, maam Cerno sama baay Cerno nu jàngal ba ñu ar mu mu mu yar nu bañ ne nër mu yeenu ban na jaar kon da fay melni keno yoy yep dajana ci Cheikh Mamadou Fadal lan nga nu ci digal seigne Ablaye balu ñoo dalal Baye Omar kan balay sa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا شيخ الخديم وعن قدوتنا العظيم مام شيخ ابراهيم فالبا بن مريدين وبعض مبوك جوليتي مبوك طالبي مبوك يو تيد يي توپ جاتاي بو تيد بي كي تلفزيون توبا تي في كي ريومي اك بيتي ريو نوغي بوله نييب نويو بي نو الاسلام بوله دي واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نوغي سانت يالا سونو بروم بو باخ di julli ci yanantu bi alayhi salatu wasalaam santati serigne Touba di fedd sunu sunug ak mom di ñaanal cheikh mouhamadul muntaka al Khalifatul am sunu borom yagal ko lol ci kanamu njabot gité doli dolli ko wér banal yi mu nal yépp mu matal ko ak sagom di ñaanal rakam di sunu serigne di sunu soppe di serigne abul baraka mi tooge jataayu cheikh mouhamadul fadilu nung koy ziar bu baax di ndokkel ci wèr wi ak ci jataay bi di ñaan ci barké wee juroom bu tedd ba suñu borom yagal lool ab liggéeyam damay wax ni man mu xébu mi daf ma sopp lool ma am lu jafeñ ci mom ñaare lu muy def lu dina ma woo ni ma dama bëgg ku waxtaanal ci nangam ak nangam ak ni yoon yi tollu di ma dima di ma ñaanal motax ragaluma dara señ abul baraka tax kon yalla fi yag te nu ngi ñaanal rakam yépp di ci jiital señ bashiru di nuyu señ Abdul Fatah waaye sant bu baax señ ahmadu Badawi mi nga xam ni sang bu baax la weer wi saa bu teroo képp ku mu gis ngay yëngu ci xam-xam dana la woo ndokkeel la wan la ni ñoo bokk weer wi te mooy sëriñu ñëpp kon yàlla na yàlla yàggal taxawaayam nu ngi nuyu kilifa gu tedd gi fi toog te toogal fi sëriñ touba tooge fi sëñ Fallu di sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fadilou matuñu ci moom seere ndax danoo yàgg ak moom ca Pikine mu bëggal nu boppam bañ koy fréquenté booba kenn xamunu muñ daan wax ci saalam ñëpp dinañ leen xam tey ñëpp xam nañu ànd nañu fu nekk yóbbu nañu ci télévision bu nekk waxtaan loonu terale nañu nekk kon taw féex la nu am tey toogaat ak moom nii ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér te yàgg koo def di ñaanal rakkam bu baax Mbaye Cheikh Awa la di sunu sëriñ moomit di sunu soppe muy fii ci réew mi bi fi nekkee dañ koy fréquenté bu nekkee bitim réew dañ koy seeti muy kenn ci nun di nit ku baax a baax ku yiiw ku bëgg xam-xam ku nuru waajuram yàlla na fi yàgg te wér nu ngi ziyaare seen jigéen bu baax bii toog ak nun di soxna maam Faati Mbàkke xaar yàlla bintu Cheikh Mamadul faadilu di nit ku baax koo xam ni sunu soppe la yàgg na lool moom muy nit ku tasaare liggéeyu waajuram fi ci Dakar nu koy ziar di yobante ay cadeau ziar mu jaar ci mom dem ci magam ju bax gi soxna Mamati Mbàkke Fadilu wax na ma legi ni mu ngi top jotaay bi nu ngi ziar seigne Modou tian bu bax ci taxawayam ci liggéeyu seigne Fàllu ci Dakar gep di nuyu borom kër gi alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay waye sante sunu nijaay ju bax gi nga xam mu ngi koy di seigne cheikh Balla cioro samp di nuyu borom xam-xam bu bax bi nu feggol muy Serigne Omar kan Balla Aïssa wayam wi bari na ci ño xamni ci lañu gindi ko xam dara ci seigne fallu muy way wu amana yalla na yag lol te wér di nuyu sunu rak ji bayyi di sunu xarit di sunu doom nday di sunu kolere di nit ku bax dama ko wax legi ni ko boo gisee ma sop la da ngay ku yalla defal cër ci seigne touba te lolou yombul yenn cër yi yombul Lol nak suñ ko amé dañ ko wara wagar fonk ko kon yalla nako ko sammu te guddal fanam wéral cëram liggéey bii muy liggéeyal sëñ Tuubaa na ko yóbbu fépp fu mu bëgg te am téeméeri at yoo xam dara du ko gaar nu koy siyaar di ko béggee bu baax di kontaan ci kàddu yi mu fi rotal di nuyu sëñ Xaamidun moom it sunu rakk la sunu soppe la ñu bokk jataay bi di ko def euh, tey jii yàlla dogal ñu jokkook sunu sëriñ di jataay bi dañ ko def rek waxtaani sëñ Fallu muy loo xam ni moom lu nu war la nun ñëpp man sax yebal na ma suba ci beneen télé waaye comme noo bokk jataay bi rek nu yaatal ko sunu jataayu bopp la nu ngi lay ziar di la ñaanal bu baax di nuyu kuréel bi ñu nga àndal ñëpp nuyu tamit sunu mbokk yi fi teew yëpp yëpp bàyyiwunu kenn nag ñu ngi ziar ñëpp di leen nuyu di leen dalal mu mel ni foofu sëñ Gana bàyyee rek foofu laay jële muy ci xam-xamu sëñ Fallou xanaa ci nga laajte li ko jiitu mooy xam-xam bu ñu koy waxal nit day fekk nga nekk ci bi am maanaam environnement boo xam ni def nañu ci yow xam ci fànn yëpp moom yàlla da koo dimbalee mu bokk ci keraw ñëpp muy sëñ Touba sëñ Ibrahima Diop al-Mash'ari mi mu junj léegi dafa wax ni fa lillaahi ilmun min ka lam yaxwi man madaw wa man xaana aw yaati min alil maarifi ba wooy sëñ Touba dañu ko fa lillaahi ilmun min ka lam yaxwi man madaw wa man xaana aw yaati min ahlil maarifi maa ngi tudd yàlla sama borom man sañ Ibrahima Diop al-Mash'ari yi ci yàlla mi def tawfiq ba ma ak serigne bi di Cheikh Mat Bamba yow mi nga xamni xam-xam bi ci yow ñi jitu won ci jamono ñeuk la fee ñëw ci Zahir ken amul xam-xam bi nga amé yow serigne Touba ñi nga fekk ci jamono ñu lay tuddu di len tuddu xam-xam bi nga am ken amuko ci ñom ken séenu sa ginnawit ken kenn dootul am sa xam-xam ku bari xam-xam mo wax loolu serigne Touba serigne Ibrahima al-masri kon serigne Touba moy wéjuru Cheikh Amadou Fadilou faawu kon ñu xaar ko ci xam-xam boobu bi ko sëriñ bi meññee soxna Awa Bousso meññi ko muy ñaari kër yoo xam ne xam-xam képp ak jaamu yàlla ak njub ak dund ci sunna ak roy seen maam yenantu bi alayhi salaatu wasalaam ci lañu ñu nekkoon mbàkkeeg mbusóobe ca woy wa sëñ Moussa Ka nee na ko ndax mbàkkeeg mbusoo fi daan maas laaj ñoom doog ñoo daan maas di laaj ndax xam-xam bu bari ñaar ñoo ñu ko séq moom sëñ Fallou sëñ Gànna wax na ko léegi sëñ Ibrahima Diop almasori loolu la woyaat bi muy woy askanu sëñ Fàllu dane ko yabnal xadimi lazi yudaa bi fadilina maa naa la fadlaka laa unsa wala zakaru sabaxta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadaili lam tazhër biha alfikaru laqad tanassata min shamsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwaari tazdaxiru kon faw mu mel noonu yow mi nga xamni ni jant ak weer ñola meñ yow Cheikh amadou Fadil jant ak weer moy kan Serigne Touba ak mam awu Bousso nga gané aduna di géej mbambulaan gu amul foyem ci wal yeb waye nak jitu nga ko bokal jamono ci xam-xam la ko wax ak ci teggin ñaar yi le serigne fallu jitu kum bokal jamono xam-xam ak teggin teggin yu rafet di motax kérok bi len Serigne Touba wolo mok serigne Modou ak Serigne Massamba Mbakke ak sëñ Mor Roqaya Buso ca Jolof sëñ Fàllu waxal na ko boppam ci kaset boo xam ne mu ngi fi ba tey mu wax ni dama leen a wool woon ngir dimbali leen ndax yéen ñëpp ngi wut ci man ma bëgg leen a wan yoon wi ngeen di jaar ngir am ma bëgg leen a xamal ni man sëñ Tuubaa nekk fi doom du fi may kenn dara nekk fi ab jarbaat du tax ngeen am li ngeen bëgg nekk fi rakkit du tax ngeen am li ngeen bëgg ku bëgg ci li ma am taalibe nga koy amee muy iraada sëñ Fallou nee na loolu rek ka ma yitteel ba ma fa jógee damaa defar ay ay bayit daal di yeesalaat sama njébbal loolu mu yeesalee njébbalam xasida googu ci ngay xame ni sëñ Fallou daq jàng ku mu bokkal jamono ci bayit bu njëkk bi rek bala ñoo jàll dana yaa ayu acheikhu nafisul murtaja yaa fatihan maa qablu kaana murtaja bi'tu bunawatiya bil irada lakum li kay urza bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahbaytuha lakum bi ghayri manni faltaqbaluha ya malaatu karama la ziltumo baynal baraya alama bayit bu njëkk bi dani yaayu acheikhu yow sëriñ Tuubaa mi nga xam yow rek ay sëriñ bi ko la daj daj na yaay sëriñ bi ko la dajul dajul ndax yow mii yaay sëriñ bi yaayu acheikhu an nafis yow mi gën a riche ñëpp boo yemee ci sëñ Tuubaa am ko am nga richesse bi gën a riche ci àdduna ndax mooy sëriñ bi gën a riche la ko wax yaayu acheikhu nafis waaye xoolal ñaari baat yi mu jël am al murtaja day firi ci arab lu ñu tëj al murtaja day firi ci arab ko ñuy yaakaar mu jël benn bayit indi ci ñaari baat yu bokk nuñ koy binde te bokkuñu maanaa nuñ koy firee wala ci ngay xamee man a jàngu sëñ Fall ci maanaa bi dani ko yow sëriñ bi nga xam ni yaa gën a riis ci àdduna yow sëriñ bi nga xam ni yow lañuy yaakaar kon sëñ Tuubaa dañ koy yaakaar al murtajaal ni ko yaa xan yow yaay aji ubbi ji maa lépp loo xam ni kaana nekkoon na xablu lu jiitu murtajaa doon tëje kon ñaari murtaj yooyu ci ngay xamee man a jàngam sëñ Tuubaa ni tekk ci woobu rafet beeg teggin bi mu ko woowee mel ni da ko jox nopp di ko diglu sëñ Fàllu ni ko bientu bu na wëtti yóbbil iraada buñ ko doon analyse analyse grammaticale waxu ko jaay naa samak ndoom waaye samas ndoom la wax bu noo wëtti ya la wax loolu mooy tasxiir ci arab loolu tubaab di wax diminutif waxu ko jaay naa doom ji ma doon ci yow waaye jaay naa ndoom si ma doon ci yow xoola boobu teggin ndax bu gisee boppam ni doom sax mën naa mu gis boppam ci loolu mu am muy doom waaye dañu ko jaay naa ndoom siñ may tudd ci yow bi ma ko jaayee nag maa ngi koy wecc koo ak taali bi mooy iraada nameel ku jaay ko ne nag sañ ngaa séentu sa njëg soo ma joxee njëg li nag joxaat naa la ko hëddiya waxal na ko boppam fu gën a leer ni duma doom ju bëgg a donn baayam du ma sëriñ bu bëgg a seex nañ may dégg ci moom rek moom rek dañ may dégg ci biir këram xam ne ci laa bokk rek doy na ma sëkk walif may wuti leneen kon ci xasida googu ci ngay xamee mën a jàng sëñ Fàllu lool waaye léeg-léeg mu woye noo xam ni day jël bayit te du ci digal fi'lu waaw loolu mën a jàng koy def xam nga woykat dëgg dañ naan diw dafa mën a jàng parce que saa bi mu tegee bayit da ciy dugal fi'lu dugal ci bi bihi dugal ci fa'il sëñ Fallou mën a woy dina jël bayit wax maanaa bi du ko génn te du indi fi'lu du indi maf'ulun bihi du indi fa'il maanaam du indi fi'lu pare indi yëpp ba mu de ismul fa'il rek la wooyee ci biir wooy ismul fa'il rek nga xam ni mooy verbe buy jëf waaye baatu jëf ji indiw ko te li mu bëgg a wax maanaa bi génnut maanaa bi woy na ko loolu mana jang ko def liko may loolu nak seigne touba bim ko meññee da ko dalalal bopam ci jangum alquran darur rahman fofu daaru naar fala len dalale mok makam seigne modou mustafa jangal len alquran bañu tollu ci sóotu yasin sëriñ bi doora dem ci tukki bi bi mi jugge Mbàkke bari Jolof dem denk len borom darul Muxti mam Cerno ñu jaar ci mam Cerno mu jàngal leen sëñ Fàllu daana wax ni sunu baye Cerno mo nu jangal bañ ni har moo yar ñu bañ ñu nër am nañu koy dolli sax mu yeenu bañ ni jar waaye dégguma loolu ci mag ñi moo nu jàngal bañ ni xar mu yar ñu bañ ñu nër kon ki jàngal sëñ Tuubaa ko baa ba ni ko bàyyil borom Daaru Muxti ba mu fa jógeet mu dem ci Mamor Jaara borom saam magi mag te Mamor Jaara de ku nekk xam na xam-xamam ak welaayam ak nanga nangoog jaamu yàllaam ndax téeméeri rakka la daan naafila ba fajar te fii jamono toll yaram yi gën a mën a am condition gën a am li nga bëgg ci ay moyens jumtuwaay kenn mënu cee def cinquante rakka am na ñu dul egg sax ci deux moom cent rakka la daan naafila te su xëyee da koy yendoo kooram maam Mor Jaara borom saam sëñ Fallou wax ni ku dul ki ma joxe doo ki ma jox dégg naa ci alxuraan loo ci déggul xam maam Mor Jaara ko tafsiral alxuraanul karim bu ñu fàtte loolu magi sëñ Tuuba ji nga xam ni ku mës mokkal moo lay déglu sëñ Fallou ni ku dul ki ma joxe kana ko joxe sëñ Touba doo kim ma jox kum ma jox maam Mor Jaara dégg naa ci alxuraan loo ci déggul man sëñ Fallou te alxuraan nag mooy ndeyi xam-xam yépp moo tax kenn séenu ko woon ci xam-xam mu defal sëriñ Touba nag yoo xam ni daf caa donne sëriñ Touba te ku donn sëriñ Touba doon naale xam-xamam ay téyewaale xam-xamam ku donn sëriñ Touba doon naale ak wilaayaam lépp la lay jox ndax ku ko matul du la ko jox te sëriñ Fallou dafa donn sëñ Touba ci wàllu yëpp lii may bëgg a nettali bàyyi Cerno Jawa ma ko wax te tele laay waxe ndax xam-xam dañu wax ni soo indiwul aaya alxuraan indiwoo bëyitu xasida indiwoo xaddiis na mag mu maandu wax la te nga mën a joxoñ ñëpp fa nga ko jëlee bàyyi Cerno Jaw man moo ma nettali te mu ngi fii dund mooy xalifa sëñ mët jaw paxa te man na maa seetaan te sama rakki nday la yoroon am na ci njaboot goo xam ne samay rakk la ñu kon mu Baye Thierno moo ni ma 1945 Serigne Fallou ñëw na fii te Baye Thierno jaw ku ko xam xam ni sëñ Fallou fonkoon na ko doon na ko jàngaleel ci daaraam da ko woowaat jox ko ndigal ni ko nu ndongoy toll recensel ma ñëpp te jàngal leen bi sëñ Fallou ñibbee aljana 68 le 6 août 1968 Serigne Modou Moustapha Fallou sëñ Modou Boussa Dieng woowaat ko yeesal loola ni ko waaw jàngalal ñëpp yoral ma leen koo ci wàcce rek gërëm naa ko Baye Thierno moo ni ma 1945. sëñ Fallou ñëw na fii ci paxa fekk fi sama baay sëñ mët jaw paxa ba mu ñëwee nuyoog moom mu dalal ko mu def fa diir bi muy ñibbi bi mu jëmee ci oto bi sëñ mët jaw paxa génn dàqi sëñ Fallou ñëw ba ci moom ni ko Mbàkke Bàll kat yaa ngi dem waaye am naa sëb yóbbante sëñ Fallou ni ko bàyyi moo di yóbbante lal la mu ni ko yóbbante ku tedd ki sëñ toobaa keroog bi muy joxe ndigalu màggaluk Touba ci njaareem man mii lay yónni maa woowi Seex Balla Faali Jeng mu joxe ndigalu màggal gii tey waaye dafa am lu ma dee yoon yóbbante ko ci yow te looloo tax may dund ba tey ndax yóbbante sëñ Touba bi feeg waxuma ko dama fi génn àdduna waaye xam naa ne su ma la ko waxee ba noppi damay dem waaj mi ñëpp ndax mag laa ma waaj dem ci barzaq ni ko sëñ mu am sëñ Fàllu mu ni ko Mbàkke mu ni ko sëñ Touba noon na ma saa boo demee ba jot ci xilaafaam gi na ko wooteel bisam bi biir Touba am na lum ci tegoon nag muy buuñaa nee na soo ko wootee biir Touba dina summiku ci yow ngay moom muy yow sëñ Fallou di ko waaw kon ba may dem rek di ko woote ndax moom rek laa bëgg a doon damaa bëgg a doon moom muy man rek kon ma demee naa ko woote ca déwén sa di 1946 sëñ Mat Jaw Paxa woo mag ñi ko yaakaar sant leen toolub wëttéen ni leen na ngeen ko sellal ca déwén sëñ Fallou na ma ñëpp fekk fii waay ci Touba ndax damaa gis ni sëñ Touba ko santaane woon ku ne di ko defee fa nga nekk ma bëgg mu gën a duun gën a yaatu pay gi gën a gën a landi na ma ñëpp fekk Touba fii ki ko ki ko santaane woon tëdd di ko seereel boppam kon dafa àggale mébéti sëriñ Touba faawu sëñ Touba summi ko ci moom loolu benn la ci beneen bi ci topp dafa xettali ku bëgg sëñ Touba moom sëñ Fallu xam nga ci nan li mu bindal sëñ Touba ci kaamilu alxuraan ñaar fukk juróom-ñett la ci loxo boppam moom waxuma yi mu bokk nag am na yu mu bokk ak sëñ Masamba am yu mu bokk ak sëñ Modou Habibou Mam Thierno am na yu mu bokk ak sëñ Omar Mbacke Gelongal am na yu mu bokk ak sëñ Modou Moustapha waaye li mu bind ci loxo boppam laa wax 28 kaamil bindal na ko sëñ Touba ñaar fukk juróom-ñett li mu Touba. keroog bi mu koy jox ñaar fukkeel bi kaamil ak juróom-ñett da koo yót yaakaari jàmm ñi sëñ Tuubaa sëñ bi ni nikk kaamil bi kaamil rek la bëgg muuñ ko taf ci dënnam ne ko kaamil bi gën a rafet sëñ Fàllu ni ko lépp ci sa barke lañ ko defee mu ne ko waaye nag am nga ci yóbbante sëñ Tou sëñ Tuubaa wax ko sëñ Fàllu sëñ Fàllu ni ko yóbbante kan mu ne ko yàlla mi ma sàkk sàkk la moo ci yóbbante sëñ Fàllu ni ko lu sunu borom yóbbante mu ni dafa bëgg nga defal ko kaamil bu mel ni bii nga ma defaral sëñ Fallou ni ko nee ko bu ko bëggee na ma fay sëñ Touba ni ko sunu borom nee na lu mu ciy fay sëñ Fallou ni ko nee ko na bàyyi ba ma àggal su ko xoolee ba mu jaral ko mu door maa fay sëñ Touba ni ko sunu boroom nee na nga commencé kaamil bi sëñ Fallou tëju jël jumtuwaayam yëpp bind kaamil bu kenn mësta gis indil ko Cheikhul Khadim sunu yaakaar jox ko ni ko wanal yàlla sëriñ bi téye ko diir daal di muñ ni ko sunu borom nee na kaamil bi neex na ko lool lu muy fay. mu ne ko képp ku la bëgg ngay fanaan ci xolam bii te muy dëgg soo lëggee na mucc ci sawar loolu laa ciy fay sëriñ Touba ni ko li muy jafe-jafe yàlla may na la ko ci kaamil bii kon ku bëgg sëñ Touba foo ko bëggee ameel nga njukkal sëñ Fallou ak kër goo yaakaar ndax moom bi mu feeñee sëñ Hamidou njàccaaru yoon wi di maam Cheikh Ibra Fall moo wax ni tey kër gi am na gan gan goo xam ni jamono ngi ñëw ku ci sëyu jiwul di ci njaaloo ji nag ñi di teg seera faal ni ah doom ndax xam ngeen li ma wax ñu ne ko faal bëgg nañ koo xam mu ni sëyi ci moom mooy dem jébbalu ci moom def ko sëb sëriñ jamono ngi ñëw ku sëyiwul ci moom njaaloo ci moom sëyi ci moom mooy dem jébbalu ci sëñ fàllu def ko sëriñ njaaloo ci moom nag mooy sëriñ boo mën a am jamono ngi ñëw nga tiit fàtte ki nga yaakaar topp ci sëñ fàllu di ñaan ci turam kon njàccaaru yoon wi li mu waxoon ci moom moo ci nekk sëriñ Touba bëggoon dem màkkatal mukarrama ñun ñëpp gëm ni sëñ Tuubaa ko ñaanal boppam wax ni man ñàkk a taxaw Madinatul Munawwara bor laa ci ameel yenant bi alayhi salaatu salaam am na sax ci feneen ci xasida yi xasida yi fu mu wax ni maa ngi waat man sëñ Tuubaa tiim yenantu yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam moom a gënal fuuf ñu jël réew yi àdduna yëpp sol ko wurus ba mu fees may ma ko man sëñ Tuubaa dañuy yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil i bilaadi zahaba loolu sëñ Tuubaa bind kon yéene sëñ Touba jooju sëñ Falloo ko àggale le 7 mars 1928 le Champollion la ñu jël aj màkk googu mësut a am maanaam yor naa journal français bi ba tey archive waa France li ñu bindal seen bopp ci waaru ci sëñ Fallu mu ànd ak sëñ Mbàkke bu so nijaayam ànd ak baayam bu tedd ba maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam maam Cheikh Anta jënd billet yi ñu ànd ànd ak sëriñ Mawlaayu Buso mu sëñ Mbàkke Buso ànd ak sëñ Tàkko Mbàkke ànd ak sëñ Modou Ndiaye Diop ànd ak El Ibrahima Dia ànd ak sëñ ma Mayoro Fall le 7 mars 1928 ñu jaare ji marok dem Arabie Saoudite jaar Marseille ci France taxaw fu nekk keroog ba ñuy dem dañuy garanti naa te ku ne daa wax ci sëñ Touba. sëñ Mbàkke bu soni lu ñu fii laaj ci yoon wi nañu ma laaj dinaa ko tontu ndax xam-xam bi fi man sëñ Touba ko fi def sëñ Modou Ndiaye Diop ne sawar naa lu ñuy doxi mu yitte nañ ko bàyyi maa koy dox maa koy toppatoo. sëñ Mayoro Fall ni lu ñuy bind maay secrétaire Cheikh Anta dinaa ko bind maam Cheikh Anta ni man nag sëñ Touba ma defal dërëm ak ngërëm lu waay soxla jëlal maay fay sëñ Fall ni ñëpp noppi na ñu ne waaw mu ne garanti naa ruu yi dem dikk kenn du fi wopp kenn du faatu kooku dafa doon sëñ Touba mu àggale aj màkk ak sëriñ Touba 28 ñibbisi booba juróom benn weer jëm juróom-ñaar dañ ko def ci yoon wi mu àggaleel sëñ Touba mi wetam beneen bi ci topp. moom sëñ Fallou jumaa ji yéeneb sëriñ bi la woon sëñ bee ko ñaan ñun ñëpp jàng nañ ko ci mat bul Matlabul Fawzayni yàlla dina ma may jumaa joo xam ni day yëkkatiku du màbb du daan ba biir aljana nag sunu boroom a koy aar sëriñ bi ñu teg ko tumuranke ci bëgg a julli ci bant yu mu sampoon ci Mayomba ba ku ñuy wax yelli sëy ñëw di ko wax kaasal ci commandant bi sam sempi ay banti sëñ bi sànni ko sëñ bi ni ko muñal yelli jarul coow yàllaa ngi gis lépp gëmmul nelawul dina ma ko faye neneen bi mu ñibbisee le 11 mars 1918 ci la sëriñ bi teg jumaam ji mu njëkk a am ci njaareem jumaa jooju mu dénk ko maam Cheikh jenn Diène borom Diène nekk lagan mu liggéel ko ko jumaa ji àgg 24 sëñ Touba njëkk ciy jiitu korite daaw ci julli ci nag aljuma lu tax parce que sëñ Touba nekkul woon mu saafir la ndax daa nekkoon ci loxol noon bi ba yàlla dogal. jumaay njaar Touba war a taxaw crise bi metti sëñ Touba ba fi jàmbaar ji ko matt ci lépp di sëñ Modou Moustapha al Karim mu taxaw ci ginnaawam dara mànkiwul kenn jooyul kenn tiitul yëf yi metti lool mu boole ngorom boole xam-xamam wóolu sëñ Touba am fit bari xam-xam lool dëddu àdduna ngemb ñépp yenu leen ñépp jàppale ko mu taxawal liggéeyu sëñ Touba ba mu raser toll ci ay fenêtre sunu borom ñëw ndogalam mu génn àdduna 13 juillet 1945 ñibbi aljana le 14 juillet 1945 sëñ Fallou toog fekk fi crise des années 30 jàngkat yaa ngi may dégg ndax xam ngeen ni booba fekk na fi crise des années 39 45 laa bëgg a wax muy deuxième guerre mondiale am savant bu ñuy wax Albert Einstein ndayam di allemande baayam di américain mu defar formule bu ñuy wax E égal mc au carré ñu defar ci bombe atomique largué ko sur Hiroshima et Nagasaki Chine et Japon 45 Aduna bépp yi lek amatul Baba, rakal lañuy lek. lekk amatul dañuy ablanté yéré. di lek rakal bokk ak fas yi xaalis gis jàmm amatul fenn Seigne Fallou toog ci gi day yag day neex Rakal meng jibo muut dara dareet jàmm ñoy kollu dad Fallu guerre bi fay mu song jumaayu Serigne Touba ji ko sëñ Modou mustapha bayil àggale ko le 7 juin 1963 xam nga ñaata la ci def millions 448 335 francs loolu presque milliard 667 la ci def 677 millions la wax 448 335 francs la ci def inauguré ko le 7 juin 1963 jullit yépp génn mu sagal sëriñ bi ni ko maa ngi lay ndokkel sa yéene àggaleel naa la ko bàyyi xel Cheikh yëkk yëkkati sorol di gën a kawe ni sama bàyyi Cheikh Ibrahima Ngok kuy dugg mu seere la kuy génnati mu seere la du ko fàtte mukk kon faaw mu mel ni mu mel daa doonu sëñ Touba doonu yërmandey sëriñ Touba kon ma jox la ba ñu ñëwaat ci jikko yeeg yooyu. Eh, joxal ma Baye Omar kan eh, ñu ngi sant bu baax ndax fi sëñ gaana daaneele foofu nga sofee. léegi la ma sama nijaay euh, Ilimaan Gaye di yónnee xam naa sëñ daam dina ko affiché leetar bi nga xam ne nii moom la seex Cheikh Modou Fadal bindoon 28 bi muy dem Màkka yamalewu ko rek ci ab yaat yi mu ko tëggee wane ne sëñ Fallou ñu njëkk jàngal ne maa ngi dem Màkka waaye maa ngi demal sëñ Touba te ku ne xam ne ni yéen i Cheikhul Khadim moo demoon moo nekkoon siyaara ji rasulullahi sunu borom ñu xañ ko ko ci daayir xañ ko ko ci bàttin waaye laaxar woowu du mënontoon mëntoon a ñàkk Cheikh Mahamadal Fadal demal ko demal ko màkk ndax li waral mooy bis bi nga xam ne nii ci la alayhi salaatu wasalaam yéege ci la ko sun borom yéege moom ci la gën a àddina ndekete moom moo war a mottali loolu fa lépp bi borom di wax waxu lati anqa jismi an diyaratihi lakin li taani lahu kal xal bi sawaaru kon booba bëggoon naa dem donte musu caa jóg kii moom bi muy dem dafa ne xasattu diyaratan nadbil karim bila zadi an cheikh al xadim kon mënutoon a ñàkk it mu dem waaye ba muy dem it sëñ sëñ Touba rek la doon demal mag kon lettre baa ngi noonu gis nga ko noonu mu affiché waaye sëñ Fallou jàngalewaat leneen ci lettre bi mooy ku fi nekkoon te nekk fi njabootu Cheikhul Khadim sëñ Fallou bind na la lettre bu universelle boo xam ne pour tàggu la wana leen maa ngi demal sa waajur yu loolu tamit loolu tamit ci ak yaatalam la lettre baa ngi nii mboolem ñi nga xam ne jamonoonte woon nañoo moom ca jamono booba tey doomi sëñ Touba bind na leen ci tur ci lettre bi seenu tur ba ci sëriñ Ahmad Sakhir mbay ñu bëri bind na leen ci ngir wan leen ne maa ngi dem Màkka waaye maa ngi demal Sëñ Tuubaa loolu tak ci loolu tamit ci ak yaatoom la su ngeen gisee itam ñu orienté waxtaan wi dëgg dëgg dëgg dëgg ci xam-xam orienté ko itam ci écrivain ni mu doon bindee dafay mel ni am na benn côté buñ gën a mën a buñ mën a gën a yaatu li waral mooy li nga wax léegi sëñ Gana wax muy social bi mu doon sëñ Fallou mooy social maanaam bu ñuy wax bu ñuy wax ndimbalante ak yërmande eh, sëñ Fallou léegi laa koy wax sëñ Mame ak Pape ma ne leen loo ci mën a dégg sëñ Fallou daa jàppandi plateau bu mel ni mom c'est la première fois ci Touba TV mom fi bañu ba Touba TV taxawé 2012 ba légui léegi nak euh mom mi moo ni moo mel waaw Sëñ Fallu moni moni tollu euh toll te it nag li ko ko may lépp nag li nga wax légui rek bon bientôt bu nu watee bil irada lakum likay likay li koy euh, euh, ansa bi xarit aada min baax di mast kenn mësul gis lolou bama fayé sax defaat naa ko defaat naa ko addiya aadaytuha lakum bi xeyri man ni euh, tubaarkàlla kon noo ngi sant baax sëñ Abdoulaye Diop Bichri bala ñu ñew sëñ Omar kan balay sax Euh, bii bàyyi Cheikh baalam Balla am Cheikh di dugg si léegi euh, mi ngi ànd ak Serigne Seydina Bousso Sofor euh, feggoo ak Serigne Sam Mbacke ak Serigne Cheikh Fall Khady Gueye mi nga xam ne moom waxtu wu nekk rek danga koy fekk ci wetu Baye Cheikh barakallah ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal ñu ngi nuyu bu baax a baax itam délégation yi nga xam ne egsi nañu léegi ci biir jataay bi tàmbalee ko ci délégation sopp Serigne Fallou bi nekk ñaari tali ak benn tali Euh, soxna Sali Dieng jiite ko ñu bëgg sëñ Fallou lañ ndeysaan daayira bu am solo lañ def boo xam ne euh, li sëñ Abdoulaye Diop Bichri wax rek ñëpp a ngi ci biir barki dem bi ñu defal ala Cheikh Amadou Lamine Bara plateau sëñ Moustapha mii ak euh, sëñ Mamour doon ko def ci lañ ñëw taaral jataay bi ne ñoom it dañuy ñëwaat ci bu sëñ fàllu bi ndax ñoom sëñ Fallou rek la ñu am soxna Sali Dieng moo leen jiite ñu ngi nuyu sunu mag yi ñu àndal muy soxna Khady Seck ak délégation bi ñu àndal yépp ñu ngi leen di ziyaare waaye daayira bëgg Fallou yi nga xam ne ñoom ku ne na leen ci réew mi bitim réew ñoom moom Euh, li ñëpp doon xëccoo ndax li sëñ laay wax ku ne am nga sëriñ nag waaye sa xol moom am na place boo xam ne sëñ Fall rek nga ko bàyyil moom waa moom rek nga cay yëg moom nga cay dund euh, ñoom nag tubaarkàlla titre boobu moom fexe nañ ba njëkk ci ñëpp dem maanaam maanaam légaliser ko euh, moo tax tey ñu ne leen yéen yéene doon invité d'honneur yi Soxna Aram Thiam moo leen jiite di koo xam ne lépp lu xew ci télévision bii ñu koy defal sëñ Fallou kenn du leen ci jiitu kenn du leen ci man Euh, léegi rek la ma sama yaay soxna Ami Ndiaye euh, di message moom itamit indi na fi teraanga yaatu te bokk ci daayira bëgg fàllu yi li may xam naa sëñ Pape Maguette mi euh, danañ ko mën a seede ndax mooy seen lépp soxna Aram am kon ñoo ngi lay ziare bu baax a baax ci teew gi nga teew ci jataay bi ànd ak sunu yaay jëlee soxna Ndeye Khady Faye bokk ak alaaji yu fay lépp moom it bëgg lool Cheikh Mouhamadoul Fadal amu ci sago ñu ngi bëgg bu baax a baax ci sa teewaay ci jataay bi di ko ñaanal moom tamit yàlla defal ko wér moom it télévision bi amul lenn lu ko ci rëcci ndax bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa waaye nag euh, ku bokk ak alaaji Mbàkke yi moom loolu rek moom war a nekk sa kii euh, sunu yaay musli kend euh, taalibab Cheikh Ahmadou Bachir yabal na fi moom tamit délégation bu am solo soxna Adama Ndiaye nga ne ak soxna Ndey Birane ak soxna maam aw ñoom moom sëñ Fallu rek la ñuy la ñuy la ñuy la la ñuy mooy mooy seen robu ndëpp muy soxna maam aw tubaarkàlla soxna Adama Ndiaye boobu xaw ma waaye ñoom ñaar moom sëñ Fallooy seen seen ndëpp moom tubaarkàlla ñu ngi leen di ziyaare bu baax ak sunu yaay jooju musli ñoom kere nañ sax benn association boo xam ne nii mag ñi nga xam ne dañoo bëgg sëñ Fallou te seen yaram sax wala seen doole mateetul noonu at mun ne ci màggalu kas Rajab dañuy dajale ab lim ci àddiya di leen fekk Touba di leen ko dimbalee ñoom soxna Ndey Biraan muy liggéey bu am solo boo xam ne dafa bokk ci yaatalu euh, Cheikh Mouhamadoul Fadal kon sëñ Dame bala ñoo ñëw ci sëñ euh, Amar Kane Balay sax moom la ñuy jox kàddu gi dama bëgg ñu xool vidéo bii fii sëñ Ablaye daanelee ak sëñ euh, Gana Messere Maxtaar dana dëggal lii nuy waxtaane ñu doon a ñëw ci Baye Omar Kane Baye Omar Kane mii nag ñuy bëgg a jox kàddu gi borom xam-xam la ku am cër la way wii ngeen di dégg muy taalif bu am solo bi nga xam ni mooy eh, Omar wayal ma ki gën ci réew mi ah, waaw xasida googu eh, muy xasida gu neex la moom mii moo ko taalif waaye nag mu nekk koo xam ne ku am wàcc waaye lekk ci kër Cheikh Amadou Fadal ànd ak sunu waajur sunu sëriñ eh, sëriñ Cheikh Oumy mu Cheikh ngir ñëw bokk ak ñun li nga xam ne mooy jataay bi kon ñu topp élément bi nga xam ne danañu gën a dëgtal li naar ba waxoon rek ne ko dama lay woy xalila yaa inal busu bi yu fadilu wa ma anhumu say um minal fadli fadilu kon sëñ daam ñu dem del siwaat ci régie bi mu xëy di Нельзя nyar fukel tubab ci atum tubaab ci njeexitalu ñaareelu guerre mondiale 39 ginnaaw juróom benn atu xiif ak bekor xarnu bi jooy ba seer ngir tumuranke sàkku ndimbalu suñu boroom mu ci bëcc ngëneelam yu rëy baaxe ñu waaye yow mu rajo bi nag benn yoon la ko mas a waxe ci biir mafatixul bichru te tënk na ko ci noo xam ne sax ku séddu doo ko ci mën gis foofa daf ci wax ni ya fadilan faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraqani al imlaaqu waajahtuka al yawma wa lirrazaaqu kaana bima tanmu bihi al arzaaqu ci xel nag dafa nuru lool ak cheikh mohamadul fadal يا فاضلا فضله القلاق يا من بي فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق يو أجي جنجي جيغا خامne yalla mo la gënal yow mi nga xamne ci yow lañ takale ko ak ñak ku ne xam na ne na jamono jafé won bi Cheikh Mouhamadul Fadal dikkee ci la jamono soppi ko. nañu bàyyi puukare bi. nañu bàyyi puukare bi. ak ñeent yi ñuy def ak ñeent yi nañu ko bàyyi. nañu ko bàyyi. ñeent yi ñeent yi dara. ñeent yi dara. aw tur rek la. aw tur rek la aw tur jéem a rey nag ak def lu ne. aw tur jéem a rey nag ak def lu ne. farata sunna ji rek. sunna ji rek. ak farata ji képp. ak farata ji képp. rek rek. أبي الأرادي عليهم كالسماوات taxaw déglu lii may wax borom Touba. jërëjëf eh, sëñ daam kon élément boobu mën nañ ko enseigner ak eh, eh, discours bi nga xam ne ni Cheikh Mouhamadou faadal def na ko muy kàddu yu am solo yoo xam ne ne dana lu dëgmal ci lu ñuy bëgg a laaj Baye Omar Kane Balaye sa Euh, sëñ daam kon ñu xool deuxième élément boobu muy kàddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal yëkkati woon na ko muy benn discours boo xam ne nii lu bari ci ay jàngat mi ngi ci biir ñu teew teewlu ko dellusiwaat ci euh, plateau bi. li tax na mu woo leen. nee li tax mu woo leen. wooyee wu leen wut dara ci wut dara. wooyee wu leen di wut dara ci dara. kon naa ko sàkkal waxtu kon. ne bu fekkoonte ni da leen di wooyee di wut dara ci dara kon dina sàkkal waxtu barab bii ne kon du nekk ba nawet mu def ko. da leen di woo ngir topp ndigalu sëñ bi di woo ngir topp ndigalu sëñ di leen wan na mu toll woon fi moom ak di leen wan na mu toll na ndigal li toll woon fi moom ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi bég na ci maa ngi leen a di gërëmal sëñ bi bu baax a baax ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy lii ngeen def da ko santaane woon nag da ko santaane woon nag booba mi ngi fi di ko doxal booba mi ngi fi di ko doxal doxal na ko diir bu gàtt yàlla te mu dikk fii yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bi sëñ Modou Moussa mi nga xam ne gannaaw moo fi nekkoon itam sëñ Modou Moussa mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk notam doon na ko doxal doon na ko doxal waaye moom yàggul moom itam yàggul man mi nga xam ne maa fi nekk léegi nag man mi nga xam ne maa fi nekk léegi nag damaa damaa def koo xam ne ngottuma damaa def koo xam ne kii ngottuma bëgg naa rek bëgg naa rek mu yaatu yaatu goo xam ne mu yaatu yaatu goo xam ne lam ci lam ci bëggul la ci sëñ Touba bëggoon lépp mu am ko ci ah mu am ko ci la mu ci dële itam la mu ci dële itam ñëpp am ko. ñëpp am ko. ndax bu ma sañoon. ndax bu lu baax laay am. lu baax laay am. mag ñëpp te bokk ko ñëpp. te bokk ko ñëpp. moo tax bis bii nga xam ne. moo tax bis bii nga xam ne. sëñ bi da koo santaane. sëñ Tuubaa da koo santaane. muy sunu bis. muy sunu bis. dama ñëpp di ko fekk si. dama bëgg ñëpp di ko fekke si. bu ko defee. bu ko defee. lanu ci yaakaar ci moom. lanu ci yaakaar ci moom. moom itam mu bëggal nu ko. moom itam mu bëgg bëggal nu ko. daana ko am na mu ko bëggee ci noonu. dinañu ko am na mu ko bëggee ci noon dama bëgg daal. dama bëgg daal. nga xamee ne. bi nga xamee ne. waa penku gële. waa penku gële. 带你飞，大姐姐。 te lu tax ñu mën faa daje. ci kaw jàmm. ci kaw jàmm. dañoo am kiiraay. am kiiraay. ma bëgg sow bi itam. ma bëgg sow bi itam. mel ni penk boobale. mel ni penk boobale. ci kaw kiiraay li ñu am. ci kaw kiiraay li ñu am. nit ñi yàlla booleel. nit ñi ñu yàlla muy France bi le. muy nguuru France dara. yàqaluñ ñu dara. ci sunu topp yàlla. ci sunu topp yàlla. ak sunu bëgg-bëgg. ak sunu bëgg-bëgg. topp ndigal li sëñ bi digaloon. ak topp ndigal li sëñ bi digaloon. bu fekkoon dimbali wuñu woon. bu fekkoon dimbali wuñu woon. ji. dina am firnde jumaa ji nga xam ne mi ngi taxaw fi seen kanam. fii fii nu ko amee nag mooy a ndax seen dër mooy sunu gopp ndax seen nga xam ne lu mu am boole la ca ndax ka nga xam ne lu mu am boole la ca kooka a a baax yéen leen di di digal. mooy topp yàlla rek. mooy topp yàlla rek. topp yàlla nag. topp yàlla nag. boo ko déggee. boo ko déggee. dina dina rëy dina rëy lool. lool. waaye waaw yàlla ci boppam moo rëy waaye yàlla ci boppam moo rëy xam na ni nag mbindeef amul doole xam na ni nag mbindeef amul doole jaamu gëm santaane jaamu gëm santaane ku ne mën nga koo def ku ne mën nga koo def te du yàq ci ci say soxla dara te du yàq ci say soxla dara loolu nag loolu nag juróomi yëf rekk la juróomi yëf rekk la da ngay nangu ci sa xol ni yàlla yàlla kay bóor da ngay nangu ci sa xol ni yàlla rek kay bóor wax ko ci sa làmmiñ itam wax ko ci sa làmmiñ itam muy dëgg ci yow muy dëgg ci yow nga ne ashhadu an la ilaha illa allah nga nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وشهد أن محمد عبده ورسوله بوك وخي أمنا نيو لنغ وخ دغل سيو جفا سي توب نك جفا سي توب داف دنجكوي وخ دنجكوي دنجكوي ييني لاف دنجكوي ييني جفيكو جفيكو جف جيتام جف جيتام لم سي سانتان لو يومبلا لي مو سي سانتان لو يومبلا يين جيف رك لا يين جيف رك لا جولي جوروم جولي جوروم لا بيسي موم موم لا بيسي موم خم سوبا سوبا ا مبوك ا مانا مانا مانا توفيق جي ني ام صاح mooy dégg gi ñu dégg kàddoom gii rek ci weer wii waaw waaw kàddoom gi ñu dégg ci weer wii rek taw tawféexi Sëñ Tuubaa la waaw ndax nag ndax nag ndax nag gaa ñu bare bare bu génnee sol seen yére góor gi rek la ñuy wër yi nag eh, yal na ko yàlla yàlla na ko yàlla fayal eh, eh, ci biir lettre bii ñu wane léegi fi ngay xamee mbaaxu sëñ Fallou sëñ Ablaye mooy bi mu demee ba ba Màkka gis nga lettre bii bi mu demee ba Màkka am na ci beneen page boo xam benn gis nga mbind mu njëkk mi dafa wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko njabootug sëñ tubaa gama fa bàyyi ñu ngi lay siyaare waaye fa Fallu baax njabootug sëñ tubaa gama bàyyi ginnaaw ñu ngi lay siyaare rasulullaah waaw maanaam ñoom ñëpp lu yóbbaale seenug dem maanaam ba muy dem la mu wax ne maa ngi demal sëñ tubaa ba mu tawaafee ba noppi dafa wax bi mu dem Medine dafa wax yonent bi ne ko njabootug sëñ tubaa gi ma bàyyi ginnaaw ñu ngi lay siyaare ba pare ku ne mu situé turam ku ne mu tudd turam loolu mooy sëñ Fallou sakkan rek <laughs> euh, barakallah euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gërëm sunu yaay sunu sëriñ soxna maam Faati Mbacke Juma euh, indi na fi ay teraanga yu am solo dafa bëggoon a ñëwal boppam sax ci jataay bi ndax nee na ma at mu nekk maag Baye Cheikh Ummi noo koy ànd ba mu jeex ak soxna maam Faati Mbacke mii nga xam ne ni tey fu mu tooy rek mën ni teew naa fa ndax sunu jëmm yi benn la waaye teraanga yi am solo indina ko fi moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moom tamit sunu borom yeggale ab liggéeyam Euh, sëñ Omar damay ñëw ci yow euh, dafay mel ni bu ñu ñëwee sax ci euh, fii sëñ Ablaye daanele sëñ Gana daanele fii wax nañ ci xam-xam wax nañ ci ak ak ñëwam bariwaa na sax lu mu daan wax naan may Sénégal li tax may Sénégal mooy képp ku ñu fiy tàgg ngay nit ku ngay nit ku baax ku bokk foo xam ne nii sa silsila bu ñu ko toppee cëslaay li mooy mooy mooy mooy diine ak xam-xam ak lu baax suñ fa lu bokk na ak yow kon maay Sénégal googu muy wax daj na képp. rawatina nag muy mbokkum sëriñ bi ci wet gu ne nga sax fële woykat bi di wax ne wàll ndeyam di wàllu ñaari maamam ndeyam di baayam baayam ay nijaayam xalifa ndey ja day bawoo buso bi ngir ay shérif lañ faw xanañ doroobe loolu nag bu booñ ko booleeg li mu li mu li mu li mu bokk ak waa réew mi dana yaatu lool ci kenn wax boo ko waxtaanee waxtaan waxtaanee ñëpp ana ban tomb nga nuy indil ci wàllu googu indi naa fi juróomi point yoo xam benn bu ci nekk ma def na ko waxtaan sëñ Fallou ak bu ñu waxee réalisation yemul rek ci jumaa ji marché Ocass yaatal dëkk bi gotorong yi nga xam ne tey loolu mën nañ ñëw ba ci wàllu li ñu doon wax léegi muy bëgg gi mu bëggoon réew mi ba wax ne ku fi wut si réew mi rek soo mu tuddee borom baraag bii ma jox la réew bi nga xam ne kak ko njëkk tudd ku ne xam na nam jëflanteeg moom xoolul sax dina jëm bokk waaye li mu xool mooy li sëñ Touba bëgg moom xalaa kuli xaalin dana am la waraloon sëñ Touba nag jiital ko mu jiitu Touba installé fa dégg googu la am ba bi Cheikh Moustapha Karim jógee mu ne sama mag ju baax jee ko wotoon na damaa def ku yaa ñëpp jariñ ji mu woote waat ko Touba nga xam ne woote màggalug Touba ci Touba rek réalisation bu toll noonu ci àddina kenn mënu ko xam nu mu toll ci wàllu économie tey lu ñuy sante màggal Touba sëñ Fallou am na ci récompense bu ñu koy fay ak mu nekk Baye Omar Kane balay sa aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani lisaani habli fasaxatan wa nawirana xaqali wa bi mutaharil janaani lisraxi sadri wa ani kulla durrin saxsihi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokk yi fi daje noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen siyaara siyaara bu nu tibbee ci sunu xol te di leen ñaanal ñaan gu ànd ak yaakaar néyo bi ak siyaar bi ak ñaan gi nu di ci jiital kilifa yoon wi cheikh Mouhamadul Muntaxa mi tooge jataayu xaadimu rasul yàlla na sunu boroom tabaraka wa taala def mu yàgg koo toogee te mu defal ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër tëbb ko kàttan ba mu àggale yéeneem ci lislaam àggale yéeneem ci ñoñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom noo ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikh sëriñ Bachirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir mi yore kàddoom di ko ñaanal yaakaar yi mag ñi ak yéeneem yàlla dëppale ko di nuyu njabootug sëriñ tubaak gépp di yeesalaat sunu njébbal tey feddali sunu kóllëre di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole nu defal tawféex di beral am nuyo akub siar serigne Abou Baraka mbake mi toga a yu Cheikh Modou Fadal ak rakam yim ko bokal yëpp yi mu ko sekkal yeb tamale ko ci jawriñam Cheikh bashir ak yore kaddu keur gi serigne Abdou Fatah ak sen jawriñaat Cheikh Mouhamadul murtada nuyo bobu ak siar bi ma teg ko ci loxol sang bu tedd bi teew di serigne Cheikh ummi mbake Cheikh Fadal ak sëriñ bay Cheikh Awa Balla ak seen jigen bu baax bi tok soxna mam Fati di nuyu bokk yi fi yep, yëpp bàyyiwuma kenn di beral ab nuyo ak kaddu cant nuyo bu andak ak cant ak ngeureum jagleel ko Cheikh amadou Badawi mi nga xam mo moo organisation magal gi te ay magam wolu ko tek ko ci loxom te jekul tay kon buñ ko tolenté rek jëfuma noo koy ñaanal yalla dolli ko ci ndam ci barke Serigne Touba ndax jëf ju bax gor su ca wola da la bëggal ndariñ lu tol ni lu tol ni loola barki démb la ma woo ne ma Serigne Amidou Diop dafa am jotaay bu muy waaj te tudd na la ca ma bëgg nak nga waaj dem ca dana la ak serigne fallu mom serigne Abdou kharid mu nek ci keur serigne fallu mu waajal la nga dem lol motax ma tay ji la jóge Touba ñew ngir lolou maa ngi koy siyaare bu baax xam naa ne moom yaatal ak joxeb cër ak kenn ku ne mu fekk ci fekk la ci la nga yëngu sagal la ca loolu mooy li ma boole ci jataay bi waaye du xam-xam maa ngi ciy jégalu bu baax maa ngi nuyu nag bu baax ñi nga xam ne ñoom laa seqal jataay bi sëriñ Amidoune ma tàmbalee ko ci yow nuyu sëriñ Abdoulaye Diop Bichri nuyu sëriñ Gana Messere Mokhtar di am mbégte lool ci jataay bi ngeen baal ma nag bala may tugg ci waxtaan wi dafa am loo xam ne bor la ci man bu ma teewee ci ab studio walla ma téye micro day am lu ma fàttaliku su ma teewee ci studio damay feddali samay cant ci sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou ñaanal ko yàlla dolli leeram dolli ko mànde yàggal fi njabootam may na ma kër boole na maag directeur bëggan ma toog liggéey di touché par weer boole na maag doomam ju baax ji ax ma moo féete woo sagal ma ak bégal ma kooku maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm fu ma toogee ci studio sama xel dem ci moom bi péré enregistré di xew la ma dugal ci studio enregistré ma fukki band ak juróom benn mu doon benn album boo xam ne ci lañ génne woon téere Sëriñ Basiiru mu ne ñu baaxal xadim du ma ko fàtte benn yoon maa ngi koy sant di ko ñaanal te rakam jii nekk di Cheikh Mamadou Mountakha yi mu ñëwee dana ma lu si Moustapha defan dama koy yokk waaye du ma ko wàññi te noonu la ko defee yàlla na leen yàlla fay bu ma téye micro sama xel day dem ci soxna maam xari mbar bintu Cheikh Modou Fadal bi mu may jox micro ne ma jugal wax booba xawma lu may wax daanaka kon moom itam maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko lu ko wen jortam ci barke Serigne Fallou way juróom am naa mbégte lool ci jotaay bi nag euh, sëñ Amidoun bés bi lañ ko tànn jagleel ko ku ñu tànn mu yebal fi ñu mu tànn mu mel ni kon ay tànneef rek fi daje ma bëggoon nu xàmmee bu baax fii nu daje ak li nu fi dajale ak ki tax nu daje fi fii nu daje la li nu fi dajale mbir la ki tax nu daje fi di mbër yàlla mi nu sàkk tànnal nu bërëb bii danoo dénk mbir moo xam ne lanu ca war daje waxtaan ca la bokk muy lislaam wax naa ci benn téere ne loo gis mu lëj gaa yi ko séq wax ñu séq mbir waxtaan ca faw muy dox te jullit yi nag lislaam rek lañu séq boo ay jullit dajaloo di waxtaan seytaane dal ci seen ko ak ay caaxaan day dem fa kee wax fa lu wuté ak jëfëm dem fa ca des jëf fa lu wuté ak waxam lembaaje xel yi xol yépp féwo mu jël palaam yobbu ko tek fañ géwo kon war na noo bokki xalaat ak yéene ngëb li nu am musul mbirum seytaane ta ab jullit ko nawé ta du l'islam dess na ko ko loolu moy mbir mi mbir mi nu yalla nak ku yalla bolé ci langam waratulaa lëngoo waratulaa tala lëngoo ndax moom doxinam laajul lëngoo sëriñ Bay Jaxate nee na du sopp doxinam du sànni yoxoom kooku tal ta lëngoo te xam ngeen ne wolof jëmm ji muy xool ba tudde ko mbër foo ko fekk day doon kook la mu doon mbër def na ca lool ñamu ko seqal mënuñu ko ci loolu nag la ñuy xamee ne Cheikh Ahmadou Bamba mu Rasul mooy mbërum lislaam ji ndax li ko lislaam jaral ak li mu ci daj ak fi mu yóbbu lislaam doon na loo xam ne ñëpp lottu nañ ci te loolu feeñ na ci léppam feeñ na ci féppam feeñ na ci ñëppam lépp sëriñ Tuubaa nag neexut a waaye am na lennam lu mën a représenter léppam te moo di mbindam lu mu bind lislaam a tax ak ñooñ lislaam fennam maanaam féppam it neexut a waaye am na fennam fu mën a représenté féppam te moo di Touba ni mu def ba jot ci Touba tànn Touba Touba tànn ko yàlla boole leen loolu tax na ba fu ab murit nekkati bu dul yi di Touba foofa kon Touba mooy fi mën a représenté fépp Sëriñ Touba ñëppam neexut a peeg waaye am na kennam ku mën a représenté ñëppam te mooy ku mu noppi ci moom kii nu tax a daje tey nag mën nañu ne Sëriñ Touba noppi na ci moom. dama wax ne bu Cheikh Bamba doonoon guuy Serigne fallu mi di wuy te wuy rek fi jur guuy ku xam li du rerete bu Cheikh Bamba neke guuy Serigne fallu doon wuy wolof ne wuy bala am njariñ toj waxtaane Serigne fallu du meuna ñak day war ba melni farata ci nun alquran dafa wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis te Serigne fallu mom xewal la gu yalla baxé jaam ñi la bi mu wuuteeg bindee fi yàgg na wuute ak ñoom fu mu feeñ wuute ak ñoom fi mu wàcc wuute ak ñoom jamono ji ñëwee te am na loo xam ne moom rek la ko yàlla may keneen ku ci am moo la ca sédd moom rek moo ma sa taxaw ne mana ku dul moom rek dañ la ne yow waaye moom dafa wax ne mana te loolu dafa am fu mu ko wér waxewu ko bànneex waxu ko ci réer Sëriñ Moussa Ka nee na dama buuran di xeñ Cheikh Bamba ci raw ba may bëgg a xàmmi Bamba ne méngi réer ma ma jóg doon làmb njiit lu ma jox samay biir dajeeg yow gës la gis lu waral nga doy ma sëñ Moussa Ka ku yàgg ak sëriñ ba muy ba muy woy xasida gi dafa wax ne mooy gannaaw boo xamee ne sëriñ bi dem na mu nekk ndilli wax ne dootuma dem seeti kenn njëmbat laa loo xam ne sëriñ tubaa ma jëmbat ku ma sooxat ci ma xam ne mooy sëriñ tubaa bi muy war xas dëgg loolu la def xëy benn bés wax bëgg néegam ne ko feeg feeg feeg nodduñu bu bul ma fëgg sëñ Fallu ñu ne ne fa dara ci yoor yoor te daa xëyee këram ne ma ma ñëw seeti sama pël ba bi mu ñëwee gaare ci ëtt bi ndongal ne ko ah ne woon na kat bala maa bala bala ma ko fëgg nañ nodd sëñ Fallu ne ki ma àndal noddal mu nodd sëñ Moussa Ka génn ci biir néeg bi ne lu ñu ne ko sëñ Fallou fi ñëw néeg bi mu nekkoon néegub néegub ñaari néegub buntu sarale la dafa daal di wax ne nañ ko telal na nañ ko dalal daal di jaar ca benn buntu ba dem ca wanag ba fa la woy xasida gi waaw fa la woy xasida gi la mu wax ne loolu mu nekkoon dama sëñ Tuubaa laa doon gës yow laa gis loolu nga xam ne ñaari baat yi mu dajale bi may wër ku ma gindi dajeeg yow gës la gis lu waral nga doy ma moo tax ma ne Serigne Fallou li mu wax li mu wax ne man am na fu am na lu tax mu wax ko nan la doone Serigne Bamba nag mu jëkk seet fi mu feeñee mu di askan woo tekki démb tekki tey mosuñu am benn gàkk ci diine naka jëkk dañoo mos a sell ndey buso bàyyi mbàkke la réew mi taamu moo ne ci Serigne Fallou na ngeen ko raamu la ca ko moo di aw feeñinam mënee su koo ñàkk a waxtaanee am na lool bu naree am jamono da koy yëg gis nga bu naree taw waamee dana xiin dana yëngu dana dënnu feeñu sëriñ Fallou loolu lay misaal mi ngi tàmbalee ci maam Abdou Koumba Aan mi nga xam ne moo njëkk a nekk Soxna Awa Bousso gannaaw boo xamee ne sëriñ Afiye ñang magam feeñ na fii sax dafa am lu ma fiy dugal léegi ndax sëñ Abdoulaye Diop Bichri mii dafa am kàddu gu wax léegi gu am solo nee na loo jëlewul cib téere jëlewoo ko ci addis indil mag mu ñu xam moo xam ne moo ko wax loolu sant naa la ci bu baax ndax man li may waxtaan ci sëriñ Fallou diggante bàyyi sëriñ Jatara bàyyi sëriñ Ndiaye Guédé bàyyi sëriñ Bousso Yilimaan ak nag koo xam ne bàyyam daa fekke woon muy seriñ sëriñ Cerno Mbakke Golengol lu may wax ci ñooñu laa koy jëlee aw lii may wax nii ci ci sëñ Mbacke Gallo ci sëriñ Thierno Mbacke moom suñu Omar Mbacke Gallo Ngal ci laa koy jëlee te moom nag baayam daa fekke woon ba moom ñi sant Mbacke moo ci jëkk ñëw tubaa fekk ci sëñ tubaa ci juróomi atam lañ ko lañ ko jëlee Mbacke Kajoor indi ko ci sëriñ tubaa boole ko ku ñuy wax Gallo Ba ak takkaayal ndeyam teg ko ci fas indi jëbbal ko sëñ tubaa te delluwaatu Mbacke Kajoor kooku lu mu la ci li sëñ Touba mënees na ko gëm maam Abdou Koumba mii bi mu nekk soxna Awa Bousso Euh, sëñ Afee ña ngi magam di ku baax koo xam ne njabootam ñu ngi fii di di di sagal lislaam di sagub mu yoon wi sëñ Muudu Maamun ñang yàlla na fi gën a yàgg dafa nekk moom ba yàgg mu xëy ni ko soxna Awa man day foog naa ne damaa bëgg a faatu soxna si ne ko lu tax mu ne ko damaa am damaa gis nga am doom ju doom ju yilif jamono daj ko këpp te man duma ma bàyyam te it du la bàyyi kon amna luy xew soxna su ne ko loolu day ñang ëpp naa wax mu ne ko ah waaye moom bu amee itam rek nu xam ne loolu la yàlla dogal waaye kooku bu ñëwee lépp lu ngeen nekkoon dana yokk ñu teg ci ay fan mu dem ca xare ba yàlla dogal mu des fa ba soxna awa nekkee ci ab liggéeyam ba noppi te yàlla dogal sëriñ bi jóge Kajoor ñëw Mbàkke Bawal Buso bi daal di cay waxtaan ak moom waxtaan caag moom jox ko soxna awa mu fekkee dañuy tënk rek soxna wo busu nak bi yalla dogale mo and ak serigne bi dafa tek fele bokk gi ak cir bi la fas fasiyene sakku ngeureumal boromam nek daru salam di jeuwriñ juy taxawu dong yi ak njabot gi wax serigne bi nako man de bul ma jappé sax ab talibé na nek sab jam rek ndax man fi lu fi way def man la ko defal ku fi nek itam serigne touba rek la lay xolé nekk ca loola di nit ku woyof ku dëddu àdduna ku xam la muy wut ba ci at mi sëriñ Fallou waree feeñ sëriñ bi liggéeyloo na ko cere wax ko ne ko na nga ci fas loo bëgg digal sëriñ sàmba Diop Saam mu dem Kajoor toppatoo ji ab yóbbal ndax booba lii ngeen di junj léegi ci màkka ji boo moom mi ngi ci waajtaayu màkka wi yittem jëpp moo doon dem makka sëriñ ma Masamba Diop dem Kajoor sëriñ bi nekk ci waajtaayu dugg xalwa bi soxna aw bu sa defaree cere ji ba andi ko sëriñ bi ne ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko loo ci fas soxna awa ko damaa bëgg nekk ba xam mel na ni nga bëgg wala déet ma door ko ma door cee fas sëriñ bi seq xalima gi ndax dafa fekk muy bind ubbi bagaan gi raay ci loxoom ne ko hakasa tabarakallahu ana loo ci fas soxna awa ne ko fas naa ci lépp lu la yitteelati ba jaral lu jóg di ko wuti yàlla ñol di la ko mu fekk la fi nga toog dal di talal ay loxom serigne bi ñaanal ko dégg na ci serigne cerno mbacke gelongal mom serigne omar mbacke mu wax ne serigne touba bi mu waje ba bëgg dugg ci xalwa ji xalwa jojé gis naa ak yaari kilifa am yi nga xam ñom la nekkolon boba muy serigne mor soxna jaara magam ak serigne bu be mi bok ak ndeyam ndey ak bay ne len gan dana fi dik go xamne dama ci bëgg waxtaan ak yeen gan la gog ku ko gën musta tegub tànkam fi suuf bés bu dikkee it jarul di ma ko yégal si bés sàngam lay doon loola bésub alxemes lay dajeel it bu jant soo rek lay xew te damay fekk foo xam ne day sori sori goo xam ne du jar ngeen di ma ko yëgal si lépp teg naa ko ci seen loxo ma di leen ca xamalit ne bu bés ba dellusee sëriñ bu soobe mii na andak ak domam ji di serigne Mor Soxna Jaara taxawu ko tuddal mako ki nga xamne moma jox ndigalal ñu tuddu ko aku turit Muhammad rek lama jox waye lay top ci Muhammad ja jundullaahil Khalibin wa xisbuhul muflihiin muflihin yor bu boba ñoo indi bañu ñu ba sawal jot ñom ñaar ñooñu jog nañu taxaw gis Muhammadul Fadilu ci jaww ji mu ne ba yor-yorub góor raaf ba yor-yorub góor wees raaful ñi yàlla may basiire ñëpp gis nañu ko loolu moo jëkk a nekk kéemtaanam ci moom la ca la ko jiitu moo di bañ ca noppee ba yóbbu ko ci nekk bi tëral ko ci lal bi bi ñu dikkaatee dañoo fekk mu jóg toog mu toog ci ko lal bi ña ragal daw soxna awa moom da caa jàpp gémmiñam ndax xam na li xew xam na ne ki mu àndal du nit xam na ne li mu yor du nit ñu seetlu ne gan gi nanguwul a sex dara luñ ko jox rek mu ŋepp ñu wax ne nañ bàyyi ba ngoon ba xam ba jant soo bañ ko joxee mu door a nangu bi seen bi ñëwee bi ñu ko nettalee loola dana ah moom ñoom de dañoo desee xam rek waaye moom ko booba xam nañ nekk ko koor la indaale sëriñ Ceerno Galangal ba mu nettalee lii ba noppi da teg ne ñëpp baax waaye gën moom dajul moroom moom baax te dafa gën te yàgg gënit loolu la ci sëñ Cerno teg wax nañ ne keroog sëriñ Tuubaa nee na yàlla de wàccoon ak man sëriñ Masamba jóob Saam ne ko lu tax te gis nga fii itam sëriñ Masamba Diop Saam dem nga mu demoon Kajoor wutub yóbbal guddi gi so suñ fa lu feeñe ci la dellu si Daaru bi bët setee sëñ Mudu Lamin sëñ sëñ Mudu Lamin Njaay xewar moo jóg dugg àll bi sëñ Tubaa séen ko sëñ Tubaa séen ko ne ko kaayawaay mu ñëw mu ne ko gan ñëwu fa mu ne ko suñ Masamba Jóob falaan si na biig mu ne ko moom laa lay wax boo demee na fexeel ba wol ma ko bu mu ñëw te bu ko kenn xam melal ni koo soxlaa dara rek ba mu génn nga ne ko dama koo soxla bi sëñ mas bi sëñ Masamba Jóob ñëwee sëñ Tubaa da ko ne ñëw mu ne ko waaw mu ne ko suñu yoon wa dégg soppi ko du caa am ndax kanu bëgg na seeti yàlla indil lanu ko fii xoolal loolu nag ak pas-pas soxna aw bu ba lu xóot la waaw bi sëñ Tuubaa waxee ne yàlla da wàccoo naag man sëriñ Masamba Diop Sam ne ko lu tax mu ne ko la gënoon fa moom jox na ma ko la gënoon fa moom jox na ma ko ne ko koo kii feeñ ci sama kër gi sant sama sant wii feneen fu mu feeñan fu dul ci man danaa ci lëj li huit kenn rek la won ci nguurug sunu borom gi ak feñam bari na kilifa yu ci yu ci ndokkeel Serigne Touba di wax ne nit yalla yep doon ñaan mu feñ ci ñoom yàlla séddale ko Serigne Malick jeng neena Serigne bu mag bi moko tuddé Fadilu mu yor ngeenel ya doon faridun kamilu. Cheikh Bamba ab juñum du moy ne Fadilu ba nopi muy maf mba muy walu ndeyam bawo ci walu bawo ci wa mbusu bi te ay sërif lañu bila uyubi bi la haqqan ta fofu la feñ man dama wax ne ni mu tanno ci ab juddu ne la yemo ci ak deddu dafa soppan muhammadu bako ko mu soppi la mu des jamono jim ñewé jamono jim ñewé moy jamono ji nga xam ci la sunu borom tabaraka taala wo soppem ba wax ko lam koy wax jox ko lam koy jox yebal ko mu dellu si néew ma nag ka ka yéegoon moo door a wàcc waaye li ma mën a waat mooy gan kenn du ko am du soppiku turam ñu ne nag lan mooy jikkoom jëmmale woon joo xam ne dégg naa ci sëñ Thierno Mbacke Galongal loo xam ne da koo déggee ci waajuram sëriñ Fallou ku ragal yàlla la sëriñ Fallou ku nangoo liggéey la sëriñ Fallou ku bëgg sëriñ Touba la. nekkoon ku gore ku tabe ku xër ku yéwén ku teey ku woyof ku dëddu ku weg ña ko mag ku yërëm ñaw mag juboo ki bokkam ma nekk dëkkam di ko xam boppam ku yéene ñëpp jàmm di murit saadix musta xëccoo dara musta tontu ku ko xas musta faale ku ko tas du dégg lu mukk lu ñaaw te lu rafet lu mu dégg dana ca bég dana ca béglee saf xorom lool ba lu mu wax ñu ree te buñ ko seetee muy njariñ yemale bindee fii ku ne mu def la ku ne mu def ko na ko yàlla def moo tax sëriñ Malick Dieng ne ko say jikko neex na ma mënee fu laa foñ yaa sedd kër Mbàkke mënee su bañ bu jikko jagee lu jógeeti jag moom nag jikkoo ma jëkk a jag moo tax lu jógeeti ci moom jag ba waxee mu jig nu bu jëfee jagal no Serigne Fallou lu la joo xam ne aji ñàkk yàgg naa woomloo ci moom bekkoor yàgg naa naate ci moom aji raf la yàgg naa woddoo ci moom muy koo xam ne bu mosaa wax ñëpp gindiku bu mosaa jëf ñëpp jariñu te luñ ko tudd xel yëpp dal ca manees na ko limaale ci mag ñi toppan sëriñ bi mu tarbiya leen tarqiya leen tasfiya leen ba marale leen ak seen borom ndax moom dafa jaayeen léppam ak féppam ak ñëppam jënde ko ak taalibe ba noppi nag jël ak njëgam jox ko addiya waxoon naa sëñ Moustapha Fadilu radiallahu anhu ba mu waxee ci di juuf dama ko ne njëg bu jaree te jëndi wokkuy xàcc seet ka la neex may ko ca kay dug càcc loolu sañ na ko loo jar yaa ko moom mu jël ak njëgam joxewaat ko addiya musta xool lu dul sëriñ bi musta déglu ku dul sëriñ bi musta jàpp lu dul sëriñ bi jébbal ko jëmmam akum xelam akum xolam ne ko dann rek ba jaaxal ñëpp la wax ne serigne bi ak arab dakh la noko la la rek na ngay nii ne ne man nak neena ca menteñ lolou la waxoon moom ca menteñ waaw lolou moko ko waaw nit ñu naw ko na diwum diw le diw diw wala diw koko ñu na diw koko moy serigne fallu ñu ne lan moy jëfëm jëf ju rafet mba turu dom wu tedd manes na ca xame bi lit fam tedd xam ngeen ne jëf ba jëp yépp dajé ji yalla nangu mo ci gën te yalla mom am na nu muy nangoo jëf ndax ku am fulu la jëf day sel ba nopi jup mu dor ko nangu te likoy taxa sel modi di jëmmam rek tax ñu def ko lu koy tax a ñu ray ko ci soppeem ba alayhi salatu wassalam lolu fu deylu fu deylu ayat moko wax jëf day sel te lay tax mu sell mooy ñu roye ko ci sunu borom ñu jëf ko ngir sunu borom jëf day day day jub te lan mooy tax mu jub ñu roye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu bu amul ci jëf yàlla du ko nangu sëriñ Fallou lu mu doon jëf yàlla tax waaye yonent bi la tegan ci kanamam sëriñ Fallou nag ci gàttal bi mu jàngee alxuraan ni mu ko war a jànge ba noppi jànge ni xam-xam la mu jëkk a def moo di jaayante jaayante goo xam ne defewu ko bànneex làmbatuwu ko woyofalu ko da koo teg ci sunna teg gu wér yéene ko ci xolam tudd ko ci làmmiñam jëf ko ci cëram mas naa dikkal sëriñ bi ŋàbb aw lef way cay bayit te naa ko mbàkke jaajëf jaay ko njuréel ga tànn doon muriidu bu koy dawal ngir xam ne mooy waxiidu loolu di ak dëggal gu wér te da caa boole këram ak la mu am lépp ak donga yaag garab ya sax di leen caa boole sëriñ bi tontu ko aayaay falaa taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an maa kaanu ya'maluun loolu ñu jàng alxuraan xam nañ ko te mu jóge ci sëriñ Tuubaa jëm ci ku mu gërëm kenn du xam ne muy toll kon innamaa yuwaffaa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaabin xamal ko nag ne ko adduna day li ci des manees na koo dëkk ci mbaar yi tabax fi ne ko demal demal Tuubaa su ma ñëwee nga yor ma ngir yaa man te yow fa lu ñëw Touba ci ndigalam doonu murit bu jébbale boppam monsieur fu koo tere dara musta jàdd yi ndigalam benn yoon musta sàkk musta séddoog moom dara musta séddoog moom boppam dara musta fekke soxlaa sëriñ bi te defu ko ca loolu la sëriñ mu Ka di junju ba mu ko naan defan ngay ndam ci teewuk Bàmba ciy kër waroon ngaa xam ne tey dina ñëw taxaw ma ba ñuy wuti dër di sàkk tabax fa Jurbel dangaa jaayante jox say junni mbër ma wedem loo ndaw ña rusloo mag ña foofa waroog seytaane bégloo bàmba mbër ma loolu di jëf ju rëy di loo xam ne moo ko jëkk def ci lu ñu xam mu teg ca li yéene sëriñ Tuubaa ja jëm yéene woon ca màkkatal mukarama siyaare baytullaahil araam muy lu rëy ci lislaam te ba mu demee Mbàkke ba ñëw ko daa wax ne fasaale naa muslim mu ajaale naa murid yëpp ba mu ñëwee loolu la loolu la wax daal di taxoog magam ju baax ji nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ci fan yépp serigne cierno Gelongal nee na moog falu Fallou mosuñoo tàggoo ci dara serigne mudou Moustapha ak serigne fallu ñoo jàngandoo alquran ñom ñom lañ ñoom la ñu sampan ñoom la ñu kër ba ba leen sëñ bi sampal kër da wo ay ay booba ñu nga ca Jolof mu wo ay ay ay mag yu mu ci serigne dam abdourahman Lo ci soxna Aminata Mbàkke ne ko njabotam nga fa nek nañ ma nil ndax man bamay nek nekk daaru ma jindo na la gis way booba dañuy dañuy goné te booba mbooloo mi bari na nañ ma nañ ma nil fi ñu indi ñett bi ñëwé señ bi bañ timis bu nopi señ bi laaj yok ñom laaj leen ni la yéen de bama fi joggé da ngeen di goné ana ko mak ci yeen ñu né soxna mu né nañ ko takal amar fall mbakke moy magi señ omar mbakke galongal ana ko ci top ñu né aminata lo mu né nañ ko takal nañ ko nañ ko fasal mu mu amadul mustafa ana ko ci topp ñu ne soxna as soxna soxna soxna soxna astuloo mu ne nañ ko fasal sëñ Fallou loolu noonu lañu ñu ànd ci seen lépp sëñ Cerno ngi nettali benn jotaay boo xam ne gànnaar la xewee nee na da dégg moom loolu moom nee na ci sëñ Fallou la ko déggee sëñ Cerno Galu Ngal nee na ci sëñ Fallou la déggee loolu mu ne ci gànnaar mbaar lañ fay defar mbaar moo xam ne ab tubaab bu ko sàkk woon ci sëriñ bi mbar mo xamne ne na def fukki fos ak yar ba len serigne bilaje <coughs> ñu ne ko noko ko rek mu jox len digël ñu dal ci cay defar ko muy mbar mu mucc ayib ba ñu noppee bi bëgg ci lool serigne fallu ne ko man day serigne bi am na xamne ne bëgg na ko jotuli lu bàyyi ko ci sa bokki taalibe yi nga xamne ne la andalen liggey bi suma ci amé ndigal serigne bi ne ko am nga ci digël mu ne ko danoo sant yàlla ci andi gi mu indi daaru duniyaa tàbbal nu ci ngirum lislaam ba noppi nag boole noog yow ngay sunu womatukaay di sunu ndimmal di sunu yaakaar te loolee nu def ci yow di lu mat a def te loolee nag nu def ko te defuñu ko ci sunu ngóora ci sa ndimmal lekk lañ ko defee loolu nag nu sant ci yàlla ngir sa cër bu bii ba nga mën noo liggéeyloo nu liggéeyal la ba noppi liggéey bi sedd sa xol loolu day danaan ci sant yàlla cant goo xam ne genn cant gu ab jaam sa sant boroomam mosu naa toll loolu lañu am jaarale ko ci man bëgg ma jottali la ko bu loolu lépp wéyee nag man mii ma santaat yàlla cant gu cant goo xam ne bokkul ak seen cant gii ndax suñu dajee fii di ay taalibe bokk li nu bokk nga dinu liggéeyloo jox nu ndigal nu def ndigal li ba noppi ñu am ci man ak doylu ak yaakaar ba di ma yónni ci yow ma wax la ko nga nangul ma ko loolu yii dama cee sant cant gu benn jàmm musta sant loolu rek Mbàkke mooy li ma ci doon jot li sëriñ bi ne noppi ngeen ñu ne ko waawaw waaw mu ne leen topp si leen fii ma tontu leen lu seen seenu dégg ci lii ngeen wax ne leen man mii mu leen booleel day ñetti barab lépp ñetti barab laa boole ba àdduna sosoo ba àdduna sosoogul ba ci jantub tey bii li mu weesu ak ba mu sosoo ba fi mu ba fi mu ne tey ak ak ëllëg yi nu jëm di àllaaxira ñetti barab yii laa ne képp yemale aw fenn kumpa képp ku yàlla booleeg jaam bu mel noonu yi nag mu di la giidee nga nangoo nga nangu di jaar ci ngiidaay la ànd ak moom njeem xam nga lu la yàlla defal dey nga war koo sant Serigne Fallou nee na mbaar ma danoo ko defaran waaye lu bari yàqu na ci te noo ko yàq ndax kenn ku leen da nga da jóg fenn fu waaye xam ne doo fa sa bopp ndax kàddu yi bàyyi ko ci Serigne bi. bi loolu jàllee Serigne bi ne leen am beneen jotaay boo xam ne Serigne Omar Mbacke nee na Serigne bi da leen ne daa daa am ñu mu woon ne leen kaay leen ma yónni leen ci Serigne Fallou ne leen ndax xam ngeen ki ma leen di yónni mooy kan. ñu ne ko ah nun de xam na ne sëñ Fallu la tudd xam na ne it sa dooma ndax da leen jëkk wax ne dama leen a bëgg a yónni dama leen a bëgg xamal tuuti ci kooku yi ma leen ma leen bëgg a yónni kooku yi ma leen di yónni ndax xam ngeen ko bu baax a baax ñu ne ko am nanu lu nu xam ci moom de mu ne lu ngeen xam ci moom ñu ne ko xam nanu ne sëriñ falu la tudd xam na ne it sa dooma waaye foofu rek lañ ci yem de mu ne waaw waaye nag kaay leen ma yokkal leen ko jëmma ngoogu joo xam ne lépp lu ngeen gis ci man lu ca xaj ci moom danaa ko ca def lu te lu ca xajul danaa ko xaj-xajal ba mu xaj ca ma soog ko caa def kooku mooy Serigne Fallou. am na sax ñuy wax ci am na sax ñuy wax ci YouTube bi di wax ne moom di ko mat a jege la ndax li ngay wax ni mu wóore xam nga sëñ Fallou ma ne su ci waxtaanee te waxoo ne parce que dafa nekkoon dafa nekkoon docteuru docteuru jàngoro yi mooy ku ne ak jàngoro jooy am am jàngoro jo nu mën a mel rek su sa xel su sam xel demee ci sëñ fàllu soo ñëwee jàngoro jooju aajo jooju dana faju loolu moo waral nit ñi mën a taxaw ni diw mi kat lim am sëñ Fallou tax mu am ko te loolu itam seddu ci woon koo xam ne ni ci moom nga jokk ak déet seddu ci woon itam ko dëkk Tuubaa ko fa dëkkul xeweli sëñ Fallou moom yaatu na yaatu goo xam ne foo waay nekkit xaj nga ca ndax damay wax ne euh, fépp foo mën a dem ba pare li ngay wax lu ci gën a neex mooy dafa màggalu Kazu Rajab goo xam ne nii dañuy def cérémonie Serigne Ahmadou Rafa ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal mu yor ab kaye ne bi mu fi bàyyi ko lii la ak njabootam doon na ci moom bi mu limee li mu den bi mu koy lim bi mu egsee ba ci ab kopp ak ëppukaay baraada mbaxanam tengaade man fi mu toog damaa daanu jël parce que mu ne xool leen kii ni mu yaatoo ñii regg ci sëñ fàllu kenn xamu nu mu ñiy dund ci sëñ Fallou kenn xamu nu mu ak njabootam lii lañ am ci moom kooku wane na ne dundam gépp ci nit ñi loolu nit ñi ba tey jàngataguñ kaye boobu nga xam ne da koo wane di ko def te ki ko doon wax doomi Cheikh Amadou Fadal la beneen bi ci topp mooy mbooleem ku sëriñ fàllu meññ ñëpp borom xam-xam lañ fi ne danoo bàyyi nit ñi di wax rek parce que ñoom dem nañ ba mu mënuñoo téye sax nit ñi ci seen bëgg ci sëñ Fallou ndax da ci gis koo xam ne na muy doxee sax da lay leer leer yàlla ne boo tegee sëñ Fallou ci biir kaw gi nii di nga gis murit gu leer waaye soo duggee nga xam ne sariya ak lislaam ak xam-xam sëñ Fallou maslaawu cee kenn waaye bëgg gi moo moo waral nit ñi dem ba xamatuñ sax fu ñuy jaar ci xëlëf-xëlëf googu waaye ñi sëñ Fallou meññ ñi may wax mën naa ko seede muy muy bàyyi Cheikh mi mii toog muy Cheikh Mahamadul Mamoun muy bàyyi Cheikh Awa Balla mi maanaam su toogoon di la wax ay diplôme ak fi mu jaar da ngay xam ne njabootam gépp ci loolu mu nekkoon xaw kullun min al xawmi sayqun aalimun wariun minhum murabbin muraqin bil ishaaraati maanaam defar gi mu defar ak njabootam ci xam-xam moo waral tey ñu jël jataay bi sax jooyal ko ci loolu ndax tey xoolal xoolal xoolal effort yi ñu def tey barki dem ñu ngi waxtaanee Cheikh moom Cheikh moom Lamine Bara xool lim liggéey ci xam kon loolu lu am solo la bàyyi Omar fi nga bàyyi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi la ci sant bu baax a baax a baax euh, dañuy dellusiwaat rek ci deuxième partie bi xam naa bu ko defee ñu def ko ay dagat daggat mën a ñëw nag ci euh, kilifa yi ñuy wax ne ñu ngi def plateau bi di ko waajalee euh, bisub Cheikh Mahamadul Fadal mu dëgmal muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di altine ji ñu dëgmal incha allah fafee ca Touba. di ci ñaanal baax Cheikh Abdul Baraka mi nga xam ne tey moo fi toog toogaa yëpp Cheikh Mahamadul Fadal waaye Serigne mi nga xam ne. mooy jiite comité d'organisation màggal gi rawatina communication beeg liggéey bu am solo bi yabalal nu defal nu tawféex tawféex jëm nu defal mooy njabootu sëñ Fallou gii nu bokkal euh, jataay bi euh, at mu nekk mu yabal euh, sunu sëriñ sunu waajur sëriñ Cheikh mi Cheikh Amadou Fadal mu ñëw àndandoog njabootu sëñ Fallou tey nag ñu amaat geneen tawféex muy bàyyi Cheikh Oballa mi nga xam ne ni ñëw na ànd ak sëriñ bi itam jataay bi ngir fas yéene bokk ak noonu li nga xam ne ni mooy yiw yi nuy seddoo ñu ngi ziyaare bu baax a baax sëñ mot Thian wax naa ko léegi xam naa ne Eh, fi Baye Omar kan nekkoon sëñ Gànna bu ñu doon wax ba suba moom ba 5 heures du matin du doyal moog sëñ Bakary Mali ñoom nag na ñuy dégg ñu naan sëñ Fall nee na rek ñoom ba tey seen xol day daal di sedd ñu ngi ziar baax sëñ Sam Mbacké ak eh, Serigne Sidi Bousso mi nga xam ne ànd nañu Baye Cheikh ñëw ci jataay bi ñoom it sunu waajur alaaji Mbacké yu fay léegi lay yónnee ay bataaxal di wax ne jotaay bu ngeen ma saam bii moom mbégte mi ma ci am daa jéggi dayo mi naan sax est-ce que duñ ubbi téléphone waaye su boobaa day saturé te da nga ne ba ma feebaree bañ dara desul lu dul opéré sama waa ji laa woo juróom-ñaari yoon kii ne la bañ ma jàppee ba ma jaaxle war a dem ca baar ba nga xam ne dañ maa war a atte ji moom laa woo juróom-ñaari yoon loolu moom million yi kaa moom loolu moom du junniy kaa sëñ Fallou Mbaye ñëw na moom alaaji Mamor Mbaye waaye sëñ Fallum sëñ Jibril Ndaw it mi ngi seetaan ndax nee na sëñ sëñ Jibril Ndaw nee na Mamor amoo rek am sëñ Fall nee na moom it am na sëñ Fall ak sëñ Moustapha Kanit am nam sëñ Fall eh, tubaarkàlla sëñ Abdou Wade Baye Cheikh Balla ñu ngi lay ziare baax a baax sëñ Gana dañuy ñëwaat ci yow Euh, bala ñoo ñëw ci tudd délégation bëgg fàllu yi nga xam ne ñëw nañ ñoom tamit wéttaliñ ci jotaay bi door a jaar ci sëñ Abdoulaye Diop Bichri su ko defee sëñ Mor Talla Niang dana ñëwaat léegi ci ab yaat ci sëñ Fallou euh, sëñ Gana fii Baye Omar laay laay laay ñëwee rek ndax ñu ngi ci deuxième partie ngir mën a ngir mën a ngir mën a tënk jotaay bi euh, sëñ Atumaan amagul am sëñ Fallou sëñ sëñ Gana fii Baye Omar kan daanele rek fa laay ñëw nga xam ne wax naa ko barki démb rek ci ne sëñ fàllu solution la ndax amul jën yitte joo xam ne nii nit mën na koo wax tey xam-xam xam-xam bi nga xam ne nii sëñ Fallou installé na ko ndax bi mu bi ñu inauguré jumaay Touba la daal di taxawal nag daarul maarif nga xam ne kon la ñuy wax almadaris xablal masajid moom installé na ko jam-jam yooyu kenn mënuñu cee jam ndax ni mu yaatale mbirum sëriñ bi ci ci ci ci ci ci ci liggéeyam euh, léegi rek mi ngi koy wax léegi ci ci yoon woowu nga xam ne moo gën a rëy lan nga ciy jokk lan nga ci jokk ci kàddu yooyu nga xam ne jaar nañ ci sëñ Abdoulaye Diop Bichri bay si ci sëñ Omar Kane Balaye jërëjëf sëñ Amidou jërëjëf bokk yi man moom li ma la waxoon rek féete woo di indi ñi bind ci moom di ko waxtaane ndax ñi bind ci moom da ca bari ñoo xam ne dañ ko dund bari ci ñoo xam ne it euh, ci keppaaru sëñ Tuubaa lañ nekkoon waaye dañoo xàmmee naw sëriñ Fadilu moo tax waxtaan wi ñu di ci tànn loolu di ko jéem a waxtaane ngir sëñ Fallou dafay njariñ lu ñëpp mën a jariñoo xam nga sëñ Moussa Ka bu naan ballu bann nu juumun bi diw sëfut weer sëriñ Fadilu mooy weer wi leen di jox leer alil alil Fadilu mislun fala taxiisu jawaadan bi xamaaleen fa saara iisu kon ay naari góor kenn du ko jaawale ki baabi ngokk am ko ñuy wax sëñ daam Abdourahman Bousso kon imaam jaamia Jurbel am na num ñu jàngale kii nuy waxtaane di Sëriñ Fallu mu wax ne yaa saaxi in rumta salaamata min al ada fi hadihi dunya wa tilka al abaadi farhat ila cheikh shuyuuxi muhammadi al faadili qublat shafii al masaadi loolu moo jur yi ñëw fekk yow miy bëgg jàmm rek ak mucc ci lari tey ak ëllëg doxal laggal wutil fan sëriñub sëriñ si sëriñ lu Mbakke boo fa demee koo fay fekk xawsul wara bahrun nada laysul ida haza wa man haza wa man yastahdi minhu yahtadi danga ko fekk xeccalaa ko du bindee fi fekk fa géejug tab fekk fa gaynde noon yi wallaahi kii ku gindi ko ci moom bëgg a jub da ngay tege ca yoon wa يا أكرم الكرامة وغيرهم أبا يا من أبوه مثله لم يوجد يا كي جنا ترتشي غاي باخي يا لين جن باينك يا هو سبايكو من المهم كن دوكيس لقد ألا أبوك الدنيا أنا كما قد نور الأخرى بنور المحمدي صلى الله على النبي بآله وصحبه أهل المسايا المحمدي وإن دعاك مريد وهو في بعد أخذته مسرعا من شدة الوجل موي لي غادي nee na ko bu la ab fekk mu nek fu soree sori di sàkku ci yow ku ko xet leg dim axastahu musrihan min shiddatil wajali fam nek ci njàqare la ak la bu lay rek ngay wuy yow serigne fadlu sumu muy li fadlika fika la ahada yadnuhum mi madaw kala minhum miman sayati sumu yati su na la ngene li fadlika ngir ngëneel fika gi ne ci yow la ahada néewul ci kenen yadnuhum mi madaw kala miman sayati ñi fi ne ak ñëway ak ñiy ñëw kenn du ci mel ni yow Serigne Fallou kon ni mu def ci sëñ bi rek loolu ngay gis ci moom ak melokaanam wax nga léegi xam-xamam yaa sayyidan yaa man isaa nataqa afxama kulla aalimin taxaqaqa yow sëñ Fallou yaay sang bi nga xam ne saa yoo waxee boroom xam-xam bu nekk wedam lu waay bari xam-xam rek bu sëñ Fallou waxee rek nga wedam تفت بكعبة إله ذي البقاء وصرت خير الخلق معطي نقاء ورنجا كابغا سيارين رسول الله ثم ورث من قديم المنطقة ولاية أنوارها تعلقها يا دون ولاية سيرين توا شيخ عبد الفضل يا كو خامنا نيت كولا بغا خام بو فيكون باخ دي مبوب بوكو دون ميسار رك مي مبوب ني غرام مبوب غنا ياتو سي مبوب يي سي باخ با سمبرتلو نونو غا باخي سي تيد غا kan la sang bu tedd ba xam ne loolu sëñ Mouhamadul Mamoun Ñang moom xanaa sëñ Afiyaay way juróom sëñ Mouhamadul Mamoun Ñang xam-xamam ab delluwaay la ci képp kuy gëstu ci yoon wi rawatina bu dee sëñ Fallilu moo ne ilaa xarifin barrin manta sarbala libaasa izzatin fa siitu atala la daaka xaadimul xadimi man bila taxarurin umruhu taqabala فإن ترد كشف النقاب فرحلي لخلوة الأدام سيد الملأ أعني خليفة القديم من على عند الإله شأنه فبجل يوم خمنة آه، دا نغا بغ وني اي مايك خيوال دا مال تي رويتي في مبيندي في يوي كاغا بو بغي كيما لاي وخ نغا موي خليفة سيدنا توبا بوبو نغا خمنة كاوينا تيا يالا ميرم اي درجام يو كاوي كاوي ضياؤه حات السماوات العلى والارضين عند من جل على نوا سوف خمي سيني فلو اي ليرام باوان نون لاكو وا اسمان خاوي خامي غا خامني اسمان جوروم نيار نون لاني خامي سيني فلو نيكو وا سوف خامي اي ملوكانم ньоني واخ سي موميت غير ملوكان وي مل امنا كو نيكو يا فاضل الفضل كم ارضيت ذا وتر منك وكم قادكم انجح حاجته يا سيرين فضلو ياي بروم غنيلو تادي غا خامني ku bari woon yitte ñëw na fi yow ay yitteem faju waaye it yow sëriñ Fadilu bu fekkee ne danga ngaa kawe sëriñ si raw leen laa xaroo in fuxta ashiyaxel bi laa di faxat wala tamit daaka cheikh makanatu li tax nga kawe sa baay moo kawe te yaa ko wutu ku wutu ko ne ca kaw fa kaw ngay féete looloo tax nga raw kon nag amul ay discussion ci sa jiitu ndax yaa sa baay sëriñ Tuubaa loolu moo tax mag ñi xamoon ko sëñ jéeri waadan sugu borom cër bu reey la ku ku ku am cër la ci sëñ Tuubaa dafa am bis sëñ fallo ko fekk njaareem mo Cheikh Amadou Moustapha mo am lu wax sëñ Modou Moustapha wono am lu wax sëñ fallo waaye bokku na ci waxi sëñ fallo ji lam wax sëñ fallo danako li ma lay bëgg wax yow Mouhamadou Fadal sa bay sëñ Tuubaa sax gennu ci loolu ko sëñ Jéeri wax nako li ma lay bëgg wax sa bay sëñ Tuubaa sax gennu ci Mouhamadou Fadal ku ne war na la liggéeyal ku la mënta liggéeyal war na wut ponkal mu lay liggéeyal yow nak fallo dara waru la ci kenn loolu sëñ jëri ko wax Cheikh Amadou Fadal kon loolu lan moo tax loolu am ah ginnaaw li ci sëñ bi dana ko ca xaj-xajal lu ca xajul mu xaj-xajal ko ca loolu ko caa def ah bu fekkee ne loolu kay kon kay sëñ Tuubaa kay kon ku mu xaj-xajal ci yow wares laa liggéeyal ku la mënta liggéeyal it wut ku lay liggéeyal te bu dul loolu it xam nga dañuy wax léegi indi màggalu Tuubaa xam nga foofu sew sew bi fi nekk mooy sëñ bi bi muy woote wootewut màggalu Tuubaa tuddutit màggalu Tuubaa baatu màggal la wax tukki bi demoon loolu tax ñu naan màggalu Touba kon xam nga ne sëñ Fallu lim li ni sëñ Touba nangoo bi doon sëñ Fallu mën nga ko ci xam fi ne ku sëñ bi ba muy wootee ci njaareem njaareem la jëkk a màggale ci tel sasid la aggale fii la ñu Bamba jommale cay Bamba Ahmadou la gi tel si 1921 la woote màggal gi nañ ma sant la yàlla la wax tudd baatu màggal léegi ñu naan màggalu Touba léegi loolu nañ ko xalaat màggalu Touba kon sëñ Fallu moo woote nañ ko fekk Touba defee ko fa ñuy wax màggalu Touba kon yàlla fekk ci na sëñ Fallu ci loolu mu doon sàkku ak di ko bëgg beneen bi ci topp mooy rafetlu jikkoog sëñ Fallu muamala xasana bi mu doon def ci diggante ñi séqal jamono koy leeral sëriñ Fadilu mboolem ku mu bokkal sëriñ Touba la ko tàmm Cheikh Moussa Karim Cheikh ñuy wax ci ay ñett yi muy làmboo la sëñ Fallu boole mooy wormaal ko la mag yërëm koo mag commencer nga def ko ni sa bop seigne Fallou ku ko mag warmaal na la ne Cheikh Moustapha sama mag ju bax ji rek la wax seigne Fallou kum mag yeureum na la ndax sama doomi serigne rek lay wax kum bokal diine ngeen di nawlante fonk na la jox la la nga mom loolu seigne Fadlu meloon tax bo duggé ci bir kërëm fekk fa cër ci bir kërëm ngay fekk ñu ne seigne Modou mamou nga delu daru salam seigne Takko nga delu fa. wala nga dugg ci biir këram ñu ne la borom saam mi Mamor Jaar tabaxal ko jàkka ngir fay àllarbaam waaye na tudde ko doom Mamor Saam loolu misaal la du ca yem tey jii seex Cheikh Sidi El la a ngi nii di caatum Cheikh Mamadou Fadal mu tudde ko Yaxafaara Zunub Cheikh Awa Balla loolu doy na ci li muy symbolisé ci li muy misaal te ku nekk xam na la ma waxoon maam Thierno borom Daarul Muxti doyoon na ci buñ bëggoon a xam kuy borom daaru جرور ني گسو جيتير نان ديم سي فالو رك اتيتو الى المعطى في داره المعطي ليشكي الشك والخبد من يبسي حميل خسال ثابت جسهمت كوكو كوكو خولال يومي دون وخ خم خم نيم دگي لي مي وخ تا مان كو واي بيد يي مو تنك رك دوينا سي جانغلي بو بوغونو خم كوي مام شيرن ابرو فاتي بروم دار المعطي دوينا سي لي سي شيخ محمود الفاضل وخ با نوب سي بير نجابوتام مو جيل دوبيا سي شيخ عبد الله amna bis bo xamne mu ñëw ci Serigne Fadilou jamono mu sa neex serigne Fallou li nga wax legi rek mo ne ni mi faje yitte yi ak di dimbal nit ñi manon na dajale lu nekk ko xamne Touba ba Touba di Touba jamono jafe ñi yaakar serigne bi te ne fa te katan serigne sëñ da na xëy di génn ab lim diko joxe ñu di lañ ko joxe les dépenses ngir war loolu ne mo leen wara yor mon Cheikh abdou Fadal xajo ñep xoolal tolérance bi gën a rëy Cheikh Ibrahima Fall ku naqaree supporter ngi noonu Cheikh Ibrahima murit bi amul pas-pas bu dëgër sax attanu Cheikh Ibrahima Fall waxuma la keneen parce que mënoo loo ko tegal aw lay xamoo ko sax foo ciy jaar Cheikh Ibrahima Fall mais sëñ Fallou dafa régler situation yi jël sooroor bi tuddee ko lu muy jàngale ku bëgg a jëriñ ci mën a julli mii da ngay def ni ki dawul julli mii mooy jëfe ndigal bàyyi tere di tali bi moo tax am na bés bi fraude bi baree Touba ci jamonoom am ku ne ko Mbàkke da war a ci fraude bi sëñ Fallou na borom dëkk bee jëkk foroon jël ko du julli du woor na ko duut ci diine yi am na lu muy jàngale ci màndu loolu nit ñi ci lu seen yoon nekkul day bëgg nit ñi màndu rek bañ a jugé day bëgg nit bañ xuus ci lu mu warul xuus màndu ci ndax ndax mais mais kan moo kan moo kan moo inséré Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba sëñ Touba sëñ Touba am réew la doon xeexal mooy tubaab yi kum ragal amut sëñ Touba kum ragal amut. le seigne Moussa kanam fitam wa Jambar, reuy melni Abdou jambar xamewul capitaine wu réew soldaar kooku faalewul regalul mbindef bu ko Cheikh ibrahim Fall enracé wuton du ko insérer ci birim biram te kenn ku tax seigne bi seigne bi amut ku tax seigne bi seigne bi amut ku dul seigne Touba am nga bes bop da nga nan dogon ko nak diwa bam dess des barke khadim Rasuul kenn ngi mewu bu dul woon man wala sama kenn sama jenn maam bu du loon mooma bi sàngam làmbaay ñaaw ki sëñ ba amul moo tëgg xare bi moo ca tabbi moo geer moo daan ne yëkkati leen seeni loxo bakku mu bàyyi leen seen ndam moo tax lu waaye am ci yëfam mooma kon lu mu may nit mënees na ko mën a talooree moom lam ko may ndax Kiko koy def defewu ko ci bëgg ko ko top wala su arju sadixan walam akhaf udwa fa simaami bi yadillah yakaruma ab xarit ragaluma ab non sama nos mi ngi ci loxo yalla koko upp tawhid ñep koko gëna gëm yalla ñep koko gëna ragal yalla ñep koko gëna wulu yalla ñep koko gëna deggu ñep kenn seenuko gis naa benn waaye keroog mu ne bi ma nee murit këndëng xëndëng lu ma ci jublu mooy boo defee say waratiif ba noppi waroo di iñaane kenn ba di ko xalaat ba dootoo leen lalaw stress daa war a jeex ci yow ginnaaw liggéey nga wàcc jaamu nga yàlla boo tëddee nelawal sëñ bay sa kilifa mu ne sëñ Tuubaa daawut nelaw ma ne ko bu ko natt ci kenn koo doon boo làmbee jot poose doo sëñ bi wute ngeen bu yàgg saa yoo roofee pees na ci te fukki poos nga yem caay ñaari poos yi caaye ñaari poos yi forog ñaari poos yi xaftaan ak yooyu dënn bi ak forog ba muy xaftaan kon li mu wuteeg ñëpp kenn du melut ni moom la tax kenn du moom ca melokaan woowu ko yàlla jagleel nag bu sëñ Fallu jëlee sooroor bi tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall am na lu mu jàngale loolu mu tudde ci biir njabootu boppam ci biir këram kenn ku ne mu tudde Cheikh Ibrahima Fall boo demee sëñ Modou Xabbaan lu nekk sëñ Fallu dajale ko ci biir yoon wi def ko ba mat ba noppi nak xajo ba nga ba ngi ñëpp bari yermal la jo xamne hadith bi de xana yonente bi sallallahu alaihi wasallam ko wax bay cheikh alxalqu ayalullah ahabbuhum ilayya anfa'uhum njab mindee fi ñoo njabatu yalla ki ci gënal yalla moy ki leen gëna jariñ señ fallu jariñ na nit ñi ci xam-xamam jariñ leen ci alalam jariñ leen ci batinam ak lepp motax la si Abdou Samad mu sëriñ ku bax ma ne ko sëñ bi ñaanal ma mune ma téma la ñaanal baña xewi ma ne ko ah, mu ne Fallu dong ko am te bobu wallahi bimu koy wax ñi ngi tourné ba di tolok barab señ soyibu mune ma señ tuba ko defal señ Fallu xew do xewi ku dul señ Fallu mune ma ci wër nga am nga wëru promotion way xew toujours señ Fallu xol gogu ñak ki ñaan lolu Cheikh Abdou Samad mako xol gogu ñak ki ñaan nonu mu nonu mu yaro nonu mu yare defar ñepp ñim bokkal yoon yëpp war mal sëñ Cheikh Awa Balla mi ma doon wax rek radiyallahu taala anhu mas naa bokk ak moom ndab loo xam ne sëñ Cheikh Awa Balla Cheikh Abdoul Fadal laax boo xam ne maanaam mën naa am dara lu cay tege ci dara lu ca nekk sëñ Cheikh bal Balla na sëñ Fallu yor watt ma yor watt sëñ Fallu yor watt ma yor watt ba yàgg mu ne ma Cheikh lu jëkk lii tus lu sëñ Cheikh Awa Balla nee na sëñ Fallu Cheikh ma ne ko Mbakke mu ne lu jëkk lii tus lu mujj lii tus jumaay Touba ji bi mu ko liggéeyalee Serigne Touba ba mu noppi waaye xanaa bokk yi bu bindutoon it la ma waxoon ca ndindi ci wolof doy na kamaa xat kunta ta amul yaaxat yi maa koy kon wane na ne sëñ bee ko doon xemeem di ko bëgg amee na ko ni waaye daa julli timis ca ndindi ba noppi lamp fal tàkk muy joxar bi baaraamam sooroor bi ci boppam toog fi mu toog ci jullikaay bi wëlbati ko jàkkaar ak jumaa ji naan ko la de rusloowun la de rusloowun la te ji noppee bokk na ci lu mu wax sëriñ bi Mbàkke fii lañ toll tollal la fi buñ ko weesoo weesale la ko loo jërut amut fii lañ toll tollal la fi jaayante it di bay ay daaraam mu fas ci ne bépp doomu gerte bu ci naram ñor mooy jumaa ji na mel xorom nga xam ne lu juddoo ci lim am da koy def ci jumaa ji Sëriñ Tuubaa ji ba noppi nekk citoyen modèle moom Cheikh Amadou Fall yi modèle nitug diine yëbut sëñ Fallu nitug àdduna yëbut sëñ Fallu ñett yii jëmu ko diine jëmul sëñ Fallu bokk gi jëmu ko yoon wi jëmu ko lu ko war ci diine Cheikh Amadou Fall def na ko lu ko war ci bokk def na ko ba bokk yi ëmbal ko cofeel ak ku bëgg waaye jëmmi yoon wi lu ko ci war def na ko kenn mës sa dégg benn doléance bu sëñ Fallu coow wala mu bëgg ko baa mu wax ko mu doon njariñul boppam wala lu jëm ci njabootam lépp lu mas a wax luy jariñ ñëpp lay doon bëgg ñëpp jariñu moo tax xameewu ca buur ba xameewu ca baadoolo ba waaye it xam nga Baye Omar Kane wax na ko léegi bari na ñu naan ñun naan yawa waaye duñ na jamono bibar bari nañu Tadun nyom. ta dun ñom mo andi war yi ngay gis bët bu sen nga gisuna dana taw du taw di way gañe du gañe lay lañ ko yobbe dañ ne ñom ñoma ta du ñom señ fallu kep jël loxam te ci dana na mana te kenn téggul maanaam joojee te ko fek njabatu señ tuba gi gis na dama Cheikh mohammed Lamine Bara khadim rasul xoola baxu señ fallu man na ma wax tuti ci bayit yi wax Cheikh Lamine waye dama li señ Mouhamadou Lamine Baara wax waaye mën na ko wax ci wolof sëñ Fallou day tagg sëñ Baara ba yàgg mu ne ko laa laa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil ilmi wal juudi aw fi diini wa nasabi sëñ bi xoola tagg wii nga tagg ko sa doom yi baay xoola tagg wii nga tagg ko sa rakk loolu la sëñ Fallou wax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara déedéet yow lef wii kenn dawandoo wu ci ak yow du ci xam-xam du ci juddu du ci lewet du ci tab waaye gis naa sëñ baara ba mu koy tontu moom it na ko sa baay moo nekkoon kaashiful kurab maanaam ki daan wuññi njaqare yi mooy sa baay yaa doon sa baay yow sëñ Fallu ci wuññi wuññi ay njaqare yaa doon sa baay ci wuññi ay loolu mela woon woo xam ne yàlla jagleen ko woon sëriñ Fadilu sëñ Fallu nag bu doomi sëñ Tuubaa jàllee sëñ Fallu bu magu murit jàllee sëñ Fallu bu lépp jàllee njëriñul adduna la sëriñ Fallu doon di roytoo fi képp kuy jiite mën ngaa jàng ci moom bari na ko kat boo doon def microcentral dem cay rakkam boo ko joxañee na ko waxal la ñuy wax doo ko dégg baa mag ñan nekkaloon waaye sëñ Fallu seetal ku la neex kook sëñ Tuubaa koo ko a moo la koy gën a bëgg gën la koo mën a wax dàq caa sotti rongoñ kum jamonoon tel ku mën a doon njabootuk boppam gii lam lebale woon ci sëñ Tuubaa looloo ko dal mooy kenn ku ci nekk nam defoon ci sëñ Tuubaa lañ loolu la ñu war a jàng ndax ba mu la bëgg sëriñ Tuubaa it daal liggéeyal yi yàq doomi soxna lu ci nekk ci sëñ Mouhamadou Lamine Gaye ko waxoon wax ne doomi soxna bu sëñcu taq bu jàngut bu sëñcu réer bu jàngut taq bu liggéeyut loof bu jox soog buur yàqu sëñ Fallou jàng na baraw ñu fi raw te feeñee ci mbiram liggéey na lim sañc ciy dëkk du jeex ba léegi ci adduna bi foo làmb ci biir réew mi fekk fa dëkkub sëriñ Fallou kon jàng na liggéey na liggéey na it sanc na liggéey na ab liggéeyam feeñ ci lépp lu mën a doon gañaa yu takk la xasaayam fexe ba defal bu fekkoon ne lim prouvé lépp dafa defal Serigne Touba ju ji rek doy na sëkk ndax bu doon ci naal yu Serigne Touba di bëgg ko na ko ko yeggaleel mën naa am loola lañ ko koy yeggaleel sëñ falu Fallou eggale na ko waaye yim defalaat Serigne Touba ci dëkkam bii ni mu defal Serigne Touba ci njabootam gii ni mu defal Serigne Touba ci taalibeem yii gis nga nit ñi ci Serigne yërmande jim leen woon ci booy xëcc dara di ko naxtaan da leen a xemmeem loo sëñ Tuubaa ci yërmande jag lef goo lef wooye fa ak ñoddi loo leen sëñ Tuubaa ci ak baax ci wan leen ni muy dimbalee nit ñi ak ni mu leen jariñoo wóolu ko nag waaye la bëgg ko di yaatu yaatu wóolu ko di yaatu yaatu da caa boole di ko liggéey liggéey bu wóor la cay wuute kay ak sama classe gi mooy bëgg gi man naa mat waaye jëf ji mooy mooy mooy des kon Serigne Amidou jataay bii noonu di tey waxtaane Serigne kenn ku ne wax te yàlla fay na ko ci lu ne Cheikh Sidil Muxtaar mii di am caatam barki démb li nga wax daje nañ ci benn conférence jataay boo xam ne maag sëñ Mamour xam sa diine moo toog di ci jataay bi waxtaan ba noppi moo lay moo koy commentaire sant la soññ la yóbbante woon na ma yóbbante nag keroog boo xam danaa ko wax dafa maa waxoon na ma la ma ca sant yàlla nag mooy nee na ma yow dégg gu ma ko ci yow kon nag ma ci ñaanal ci barkeb sëñ Fall doo ko dégg ci man mu ne sëñ bi ñu am nuñ koy waxale te xam niñ koy waxee maa ngi la koy dénk di ko dénk mboolem ñi ngay waxatandoo kon nag nañ defar aw toogin leen nit mat naa bàyyi xel léegi la nga dikk ko wax defe ne lu dëgër la mooy sëñ Tuubaa lu mu bëgg da koo bind wala lu wax déedéet bari na lu mu bind ba noppi def ko nii mu def sëñ Fallu bind ko fen ndax bu ko bindoon gaa yi mokkal ko ko def seen waa kër amna yoy dañuy xamne ne sëñ bi yoon yu way di jaar yoon yu mi tege ni ci terbiiko tarqiyako tarqiye lu diine di laaj sëñ touba bind lu sharia jàngale sëñ touba bind fiq tasawuf amul buntu bu ni jame sëñ touba waye ka jëf nak ba am may yalla bopam lami may wayam digganteem ak boromo buñ jaawale nak lolé mu may diw ak lam wax fenen ndax xolal tay Cheikh Mahamadou Lamine Bara khadim rasoul ba yi waxtu woné daf may titlo لان سنتوبا في الله ذو شدة قاس الفؤاد على من لم يكن من جميع الخلق ممتسلا نانا لمي لوات لوات لمي باخ باخ قلب دغر لا امون وو كون سي كو نغوتا جيفال يالله ديغلي في الله ذو شدة قاس الفؤاد على من لم يكن من جميع الخلق ممتسلا يحب اهل التقى اهل العلوم معا فلا يجال الشيخ فلا يجال شيء الا سادة الفضلاء واي خام خام يلا بغون واي رغال رغال يالله يلا بغون كون دو بغوتون اي اي بوكريو كاي ak nekk ca la la neex ak nekk ca bakkan nañ bañ a am complexe ci wax ñin am waaye nañ xool lañu leen war a waxal nu wax ko ci àdduna man caa roy ndax ku la dàq jotul lu mu far sànni la ñiy wax ñëpp naan sunna sunna diine diine wallahi alazim sañ fa lu réalisé ëpp na Cheikh Modou Boussa Dieng ma doon taam jëkk ko wuutu la mu réalisé ëpp na ci biir njabootam da nga fay fekk ñoo xam ne sanc nañuy dëkk defari jàngu defi fajukaay di yari teeli bi di leen defar te bari na koo dégg muy wax defarul kenn ci ginnaaw écran lay làqatu yori financement ngir ku ko dundal waaye kum defar amut dëkk boo ko ñi mu wut a fanaan fa amuti làmp ndax amu ko kon nañ delloo si ñin am te bañ a complexe ci wax leen mais di ko roy di leen ca roy la suñu yoon nekkul ñu màndu ca mais ñu bañ a complexé waa kër sañ Tuubaa ñii lu sëñ Tuubaa bëggoon waa kër sañ Tuubaa ñee ko li kenn mënul leen ak gek ci naan sëñ Tuubaa ci lii la nekkoon en 1927 jenn jumaa fi sëñ Tuubaa bàyyi ca njaareem cent quarante et un am na Touba yu julli ajjuma bu taalibe mi dëkk kum gërëm ku ne sab sooroo la ngi jolli 1895 ba muy fanaan fii fi ndakaaru ci xotti bi dale ki ràbb lay taxaw ay tànkam di riixe mu naan tanzilu man min ni lahul askaaru mahallasi waqaxa fi ndakaaru nu dagg réew mi séddale ko amu ci sax ab roq lu mooy fi muy taxaw mënta sugg mënta sujjoot yàlla fayee ko jumaa jule séng ni sëñ bi li mu bëggoon yàlla fayee na ko ko ci ñoñam nekkuñu ci leneen ci lii lañ ne kon barakatul islami nahwi aqbalat wa man qalawni fil baraya qajilan la topit Siara gini siara sen barab yek diko defar kuy dundu ñu dara rang ak dila siara kenn ku wacc ñu joxagun la lu toll ni lañ la doon jox buñ fi nek amut te doom jum fi bayyi liñ koy joxe ëpp lolé barab nak bu dé buñ dencé borom dañ koy tapat lal fa mbajj di fa sotti ko lañ bukk te ko xana buñ dencé ka nga am ay jaara fay jëk ak kaña ak diko gas gas danañ siara ji barab yi dafa joxe sun addiye addiye ji ñu joxet waji kula defal lo munut nga wara gore dama ne bokk yi sëñ Fallu bi mi am juróom-ñeenti at wala juróom-ñaar juroom ñet Cheikh Moustapha am ko le seigne touba génn dëkkam na qusuri qallat wal ahlu anni tafaaraxat sama kër yëpp gent 1895 la laa joxe ordre bu kenn dëkk Touba ben dëkk la ma sa am maye ko muy daru salam Touba ci seigne ko ko génne zalamani man axrajuni min dur bi xayri xaqin ruddani ma al xuyur laxasaa yu awni juróom-ñaari at sama neexi jëñ ila kalila. ay godd di ko jam ay ay godd di ko sam ay bant di ko jam muy wéet du am Kudu koy dimbale ku dul yàlla boromam rajawtu annaka taxmini wa tansuruni nasran xasisan bi naylin minka ridwana dayxi asil aajilan bil bishri wa madadi ata uqima li diini lahi arkana ba yàlla jox ko ndam mu dili si waat tey maam yi ñi fi nekkoon ñëpp ngi fi sëñ Tuubaa mi fi nekk ñii fi ne fi kenn ku fi judd fi seen maam yaa ngi fi woon sëñ tubaab dong yàlla sëkk woon ci jamono mu may indépendance l'islam xat an xasahu suuda min jahli min kasal may leen indépendance may leen jàmm bokk fu ne waaye ma sañ faa logga-loggal sa diine wala nga fay ñoddi ngor may waru laa a may ak mandu ba nga mandu ci sëñ beeg waa këram te xam ne duñ sa moroom ñoo la man juróom-ñaar téeméeri dëkk ak nangam murid yi gor nañ ko ci réew mii murid yi lu ñu investir ci yàlla la kenn ma sa dégg immeuble bu taxawal ngir commerce kenn ma sa dégg saa yoo ña ngay tegu xeer la baa jàkka baa daaray alxuraan def nañ ko ci yoonu yàlla université baa ngi nii te mosunoo inauguré lenn benn aide extérieure ñëw ñu naan gërëm nan xatar ak réew sàngam ngir moo nu may nangam ñaq week juróomee ñaar dërëm yéen ko defal ku ko mënta am da ngay muñ nag te génn ci njabootu Serigne Touba gi te génn ci njabootu sëriñ Touba gi loolu réew mi war nañ cee dellu siwaat seenum xel te bàyyi ci seen xel bàyyi fii nu bëgg a làqatu rek di jam waa kër sëriñ Touba yi wallahi gën a néew ay at ci kër sëriñ Touba du moroomam koo jàpp ne leneen la ca ñoom ñi taxaw ci ci ci écran yi di sànne waye buñu ci décourager ku ñuy décourager lo ku ne nañu encourager duñ leen faale kat da nañ joxe addiye da na rang barabu Cheikh Mouhamadou Fadal ba nga ne ñu defar bam ne boy day gën na boy keneen na ngay defar keneen na ngay defar waye waa man yu xasim xoromatillah yàlla simulo bi yonante ay dal ngeen nako ko fi wadin muqaddasi ha kon wala xad karam na baa dem fu muy fété ñi di sànni xeer seigne Amidou nun ñi yàlla fété wo nak ñuy wax ku wax ne sëñ Tuubaa teral na ma doo lekk teraanga yi sëñ Tuubaa di ko bàyyeeki noonam ku ne ko xaraas nañ la la xaraas xaraas ñii ëpp nañ leen ñii ëpp nañ leen duñ seen i nawle doo leen seen i nawle doo leen seeni i moroom bañ toogee fi ba léegi seen baay la ñuy waxtaane de bari na kook de wallaahi asim buñ toogoon di wax maamam buñ nettalee juróomi xis a gaññaam defuñu fi tus buñ leen tegoon ci balaas teg Cheikh Mamadou Fadou bu ne leen ngor rek a fi nekk ak yabaataay sëñ Tuubaa seen moroom jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Gana euh, Messere ñu ñu ñu gërëm ko bu baax ñoo ngi jéggulu bu baax mbokk yi teew ci jataay bi su ngeen gisee sànq ba léegi sax ñuy wax ne nañ moytu coow li jataay bi suñuy nawle dañ fay nekkul daa am ñu fi nekk ñoo xam ne duñ suñuy nawle bokk ñoo ñoom ci dara noonu gën lépp bañ toogee ba léegi ñu ngi ne dégg kenn waxul ñun nag noo ngi wax rek nan moytu lool bu baax nun noo war a wane cërub sëriñ bi ñoom sëñ Fallou leen meññi sëñ Tuubaa ko meññi soriwul nan gën a dolli yar bi ak dal gi wàññi wax ji ndax bañ toogee ba léegi déggoogoo leen ñu wax ñoom ñoom ñi ngi mel ni soow mu way rek na dégg nañ delluwaat xel yi bu baax te góorgóorlu ci wax ñi tey day génn ci son bi ci biti moo tax wax ji neex na lool waaye mën nañ ko dund dund woo xam fi ne suñ xol yëpp a ngi sedd ndax waxtaan yi niveau bi mu nu yóbbu Euh, ñu ngi e, sant baax sëñ na fi nga daaneele ndax e, wax ji li ci ëpp solo rek mooy li nga wax dafa ërki dem rek am na ko ma ko wax ne ma e, gaañu daa am ñoo xam dañuy dunde sëñ bi ma ne ko réew mii maa ngi lay laaj ku fi yeewu te dundewoo sëñ bi question boobu moom lettre booy sànni la ku fi yeewu te dundewu ci bàkk sëñ bi amu fi ku ne ci li sëñ bi liggéey ci nga ne problème bi kay ñun ñooy góorgóorlu di nab na bi sëñ bi nag li sëñ Gana wax boo ne boo ne teral na ma defal na ma nangam sëñ Moustapha Kane war na laa jaralit sabakan nga tay la ko waaw li amul solo rek mooy wax ji moom moom mooy mooy mooy di def ay vidéo ak di def yooyu solo koo ci gis dajeeg moom mu wax dara sëñ bi rek jëfandikool moom la ngay jëfandikoo moom coow la jeex mu yem fa jaar na yoo xam jërut sax jërut yaatal ndax ñii damaa jëleli fa Fallou mi nuy waxtaane tey buñ jëloon sëñ Cheikh mi mii di ko waxtaane barke Cheikh Amadou Bamba di nga ci gis jikko yoo xam ne ni bari na ñoo xam ne nawlawuñ ceeg moom sëñ Baye Cheikh mi noonu kon Euh, nañu nañu nañu bàyyi xel bu baax a baax yii ñuy waxtaanee waxtaanee woon sëñ Fallou ngir propagande màggal gi suñ deful benn déclaration màgg li suñ deful benn plateau màgg màggali waaye dafa am ay jikko yu rafet yu sëñ lu amoon yoo xam ne suñ ko fàttali nit ñi dañuy dellu ca la alxuraan waxoon ci fàttali nit lim koy jariñ loolu moo waral ñuy indi sëñ Fallou di def ay thèmes di ko waxtaanee ay thèmes yu wuute ngir nit ñi mën cee jariñu jërëjëf sëñ Gànna bég nañ lool fi nga daaneele waxtaan wi am na solo lool gis naa léegi soxna Ndeye Fatou Mbengue Euh, monsieur Amadou Fadal xam naa gulet ma gis ko ci télé bi heure bii moom euh, waaye moom daa bëgg sëñ Fallou lool ba amu ci amu ci sago yàlla na ko yàlla gën a dolli teraanga ak i xéewal euh, Baye Talla Jaxate waajuru soxna Bintu Jaxate mii mi ngi topp jataay bi ñu ngi koy nuyu bu baax muy sunu waajur waaye may sàkku ñuy seetaan ñëpp ñu ñaanal sëriñ Mamor say Jaxate yàlla dolli ay leeram dolli ko yërmande ndax ku ne xam ne itam exemple la woon ci njabootu Cheikh Amadou Fadal woon muy alquran ci li mu féete woon sëñ Touba muy li sëñ Fallou féete woon muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yooyu kéemtaan la de waaye dafa wax ne lam ca daj moom lam ca daj moom Cheikh Amadou Fadal laata ma koy defal sëñ Touba loolu nag njabootu sëñ Fallou gi mate nañ ko kon maa ngi sàkku ñu ñaanal ko bu baax a baax euh, ñi ngi nuyu baax sëñ Moustapha ñi ngi xasida léegi lay topp jataay bi ànd ak Serigne Cheikh Ngounda Gueye mii nga xam ne def na ay ab yu neex ci sëñ Fallou euh, ñëw euh, ngir fekke sa ñun ci jataay bi du ñàkk bala ñoo kii rek ñoom ñu yëkkatil ay ab yaat sëñ Moustapha ñi ngi ak sëñ Cheikh Ngounda Gueye Eh, kon seigne mortal, ñu wax la ñu bayyi la nga wax ay beuyet ci seigne fallu rek suko defé seigne sëñ Ablaye mën ñëw ñu def ben tour rek mën a li nga xamné moy jotaay bi euh suko defé nga ñëwal ñu ci olofalu sëñ Fallou lu mu gatt gatt rek ñu mën ko barké waat wat a wéy bismillahi ya sayyidan fil maali xalas wa ويا مهم فؤادي در مسواه يا سيدا في المعالي خل سرواه ويا ميبا فؤادي در مسواه إني أتيت لوجه الله سائركم أبخي بينا إلى ما أرجو أهواه سنفال مبكي أم إمام أولياء الله am nga maqaamaatu rijaalullaay ummu imaamu awliyaaillaay am nga maqaamaatu rijaalullaay wàllu ndeemay wàllu yaari maamam sëñ fallu ndeemay baayam baayamay ndijaayam xalifa ndey ja day soobe ngir sëriif lanu faw xanan daroobe xalifa nday jaa day boomu soobe ngir ay sëriif lanu faw xanan daroobe wàllu ndeeme wàllu yaari maamam sëriñ Fallu ndeemay baayam baayam ay ndijaayam xalifa day jubóog boroomi doole aqiqa toog sariatu lay boole xalifa day jubóog boroomi doole aqiqa toog sariatu lay boole xalifa day jubóog boroomi doole aqiqa toog sariatu lay boole sëriñ Fallu feeñ Daaru Salaam guddig Rajab ba siiw na moom mooy bis bi ci moom ñun Ahmadul Xadim ku lay di nga dalaa xamul sëñ Fallou bu la xamoon da lay jëfal sëriñ Fallou yàgg nga bégal muridi Ahmadul Xadim sëriñ Fallou feeñ Daaru Salaam guddi rajab ga siw na moom mooy bis bu nuy màggal ci moom ñun gaay Ahmadul Xadim sëñ Fallou yaa di mbër mu rëy yaaw bi lambi diine tey yaa tax ñu am noof laay bu rëy ci Seexu Ahmadul Xadiim di ko sant baax di ko gërëm sëñ Saliou Seck yee gis naa ko sëñ Mor Gueye xasaay tey moom ñëpp a ñëw eh, sëñ Abdou Wade ñu ngi lay gërëm di la yóbbanteeg cant ci soxna Mati Diouf mi fi indi teraanga léegi moom it eh, di ko bëgg sëñ Fallou ñu ngi lay yóbbanteek cant ci moom sëñ Ablaye ñu ñëw ci yow rek ngir njëkkanteek waxtu wi Eh, soxna maam jaara seen eh, bëgg fallu nee na ma eh, ziyaaral ma ndax tey sama sëriñ fa nekk muy sëñ Cheikh Ummi mu Cheikh Mamadou Fadal soxna maam jaara seen bëgg fallu maa ngi koy nuyu délégation bi nga xam ne ñoo ànd ak soxna Aram Thiam di bëgg fallu yi soxna Aram Thiam jiitu ko ak soxna Kumba Fall soxna Ndey Xadi Fay soxna Xadi Seen soxna Ndey Njaay Jaw ak soxna Faatu Mbuub soxna Abi Thiam soxna Liika Mbay sunu yaay Eh, ak soxna Ayda Dem soxna Daka Ñang ak soxna Ami Guèye ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare sëñ Ablaye eh, ngir njëkkanteeg waxtu wi eh, balaa sëñ Omar Kane di ñëwaat ci tëj waxtaan wi lan nga ñuy indi rek fii sëñ Gànna daaneelee ci Cheikh Mouhamadul Fadal. waaw kay jërëjëf sëñ Xaamidu ñu ngi santaat sëñ Gànna ci waxtaan wu am solo wi ak wax yu dëgg yi mu tëje yàlla yàlla fay ko yiw sëñ Fàllu wax nañu ay wax nañu njàngam ak xam-xamam bu yaatu wax nañu nasabam muy judd bu rëy bi ko yàlla defal wax nañu tuuti ci ay injazaatam muy ay réalisation dañuy ñëw tuuti ci ay jikkoom ndax jikko yu rafet ci la yàlla tagg yanant bi alayhi salaatu wasalaam moom it li mu waxal boppam moom yanant bi ngeen gi mbindéef dafa wax ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daf maa yebal si ngir ma mottali jikko yu rafet sëñ Fallou dafa bari woon jikko yu rafet lool la ko yàlla sédde mu am lante kook adduna bi yëpp yéemul sax ci bokkam kese waaye àdduna bi yëpp euh, mbindeefum yàlla mu ne rek yàlla lay xool ci yow daana wax ni jaamu yàlla ci jaam ñi jaamu yàlla ci jaam ñi loolu sëñ Fallou di koo dund nga xam ni ñaata la dimbali ci mbindeef te xoolul fi nga jóge ak fi nga bàyyi ko waaye mbindeefum yàlla mi rek lay xool ne yàllaa ko sàkk bo xolé serigne abdullah Jaxate radiyallahu taala anhu dafa woy serigne Fàllu wayu rafet waye dafa am beuyit buma neex ci lam ko woy dane ko ma anta illa ni'matullah lil wara wa dawhatu fadlin maahiyan dama man baka wa ma anta yow dal neko ludul buma la don résumé yow serigne Fàllu wa ma anta illa ni'matullah lil wara nekkoo lu dul xéewal yàlla wàcce wàccel le mindeef yépp pour ñu jariñ ci yow sëñ Fall waaye war daw xatu fadlin nekkoo woon lu dul ndànjaa maw ngëneel joo xam ni maaxi yan aji far ngay doon dama am man baka rongoñu képp ko doon jooy sëñ Fallu yàllaa ko wàcce muy xéewal mu jagleel ko mbindeef yépp ku nar a jooy mu far mu far farloo say rang dégg ngeen xissa bu siiw te wér ku ñëw ba ci moom jooy jooy yu mitti ne ko mbàkke damaa dugg ci tooxi doona bu rëy sëñ Fallou ne ko luy tooxi doona ki mu ne ko damaa rey tubaab te doon soxla ndimbal pour luñ ma jox ma mën koo dimbali ko sëñ Fallou jël lim bu bari ci xaalis jox ba mu génnee ba dem am ku ne ko moo kii day wax rek sëñ Fallou ne ko wàccal jàmbur xam naa ko ni nga ko xamee waaye damay nanguy nax ndax ko rayoon tubaab du ñëw fii di ko laaxan kon loolu lu mu lay jàngal mooy jikko ju rafet noo mën a dikke rek mu fer say rongoñ ba mu dimbali la te yàlla tax mbindeefum yàlla mu mës a ñëw gis ngeen ku ñëw ci moom ni ko sama soxna dafa tollub diggante te yàlla dogal doom jooju damaa yéene tudde la ko mbàkke sëñ fàllu ni tubarkal la mu ne ko nag kër ga xaw a doy war lool sëñ fàllu jëlub lim may ko mu mujj def ko yoonu tool guddi àjjuma ko jot mu ñëw saa bu ñëwee rek ni ko soxna sa de mu ngi lay nuyu bu baax mu ngi cib diggante sëñ fàllu ni waaw yàlla ko yàlla yeeweeg jàmm daal koy joxaat lim ba mu koy def ba soxna si yeewee ku am doom mu ñëwaat ci sëñ fàllu ni dañ koy tudd sëñ Fallou joxaat ko xéewal ko bari mu dem waaye dem na ba deux ans xale bi am ko te ñëwul indi xale bi te saa su ñëwee sëñ Fallou di ko jox teraanga ci mu dem ba jëmmi jamono nag mu jàpp ne xale bi war naa toll ci dal mu ne nag war naa rus nag taxaw ndax lu dem ba ci juróom-ñaari at te waxuma ak moom wan ko ni ko kii mooy xale bi kon naa wut pexe fekk li muy def dara du ci dëgg waaye mu wuti ci benn xale ni ko bu ñu demee rek ba ci sëñ Fallou su nee la Fallou rek neel Mbàkke wuyul loolu nga may dimbalee mu ne ko waaw ñu ànd dikk ba mu ñëwee ci sëñ fàllu waaw mu toog ci saal bi ni ko fàllu xale bi ni pat tontu ko ndax tuddul fàllu mu ni ko fàllu mu ni pat sëñ fàllu ni ko waaye fas yéene la tudd fàllu ba génn rek waaw kon loolu mooy jikko ju rafet joo xam ni ku ma sa ñëw jëflante naa ak noonu mu waxoon ni man maay senegal man sëñ fàllu daal ni man maay ceeb ñépp ma bëgg su mi di jotee ñëpp xaar ma daal di wax ne yanantu bey sama maam sëñ Tuubaa di sama baay alaaji Malick di sama nijaay Sénégal jeex na maay Sénégal daal di wax ni drapeau bi vert zone rouge man mii daal di verte bi mooy man fàll du ma weer kenn nga xam ni jikko ji mu amoon mësta weer doomu aadama zone bi mu ni du ma sonnal kenn mësta sonnal kenn moom sëñ fàll rouge bi mu ni du ma rusloo kenn ku ñëw aajo ba nga indi fajal na la sa aajo nga dem ñi mu séqal sëriñ Tuubaa ku ne mu defoon la am sëriñ Tuubaa diggam ak magam sëñ Modou Moustapha Karim muy ànd bu rafet bu mat di fàttali xam ngeen ni dëkkam bee di taayif moom sëñ Modou Moustapha sëñ Falloo ko tuddal dëkk bi turu dëkk bi sëñ Falloo ko joxe sëñ Modou Moustapha ñaan ko mu joxe tur mu joxe tur wi def ci ay bay teg lan la wax dafa wax ne yaa taifan yaqsha nawaiba dëhrihi luz bil xalifati Moustapha bi taayifi nee na yow miy ragal soppiteg aduna ak nattu yi wàcc aduna jaaxal la ba nga tiit di ragal kaay ma wax la nooy def demal ci dëkk bu tedd ba di taayif nga takkoo xalifa bu tedd ba fa nekk di sëñ Modou mustapha soo ko defee sa dund de dina la dimbali ba dootoo am benn jafe-jafe ndax bërëb boobee di taayif day day fat ay jirim di fat ñuy baayoo di fat ñu ñàkk ak képp koo xam daa nekk tumuranke ak foo mën a jóge mu fat la ku ragaloon dara mu daal lay aar la nga ragaloon mu dàqal la kon loolu day mel ni relation bu rafet a ngoog mësta tudd sëñ Modou Moustapha lu dul day wax ni sama mag ju gore ja sama mag ju baax ja sëriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma mii taawu sëñ Modou Moustapha bi mu feeñee te sëñ Modou Moustapha ko tur wi la ñu bëgg nga joxal na ko dani ko nan tànn ji nañ dem ci ki dàqa tànn mu tàllalu tur nga xam ni loolu cër bu rafet la boo xam ne sëñ Modou Moustapha koo cëral loolu mun nañ ko joxaat sëñ Touba mu tànnal nu tur wi sëñ Touba tudde sëñ Cheikh boppam muy sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke seen diggante li ñuy wax sëñ Fallou ni mu juboo woon ak boroomam ci lu mu ñaan ci taw bi mu am xam ngéen ni looloo ngi sababoo ci dem gu mu demal sëñ Modou Moustapha ci sëñ Touba booba sëriñ bi dafa nekk njaarim nanu toog Touba nekk ci bërëb yi mu leen tànnal di fa liggéey ñu ne fa nag mënatunoo dem sëriñ bi ndax sëñ leen ñu fay toog ba jëmmi jamono mbokk yi ñëw ci sëñ Modou Moustapha bëggoon ci ay ñaan sëñ Modou ni leen ah, man de sëñ daa waxoon nan toog fii xaar ko te joxaatuñu ndigalu fekki ko njaareem damaa xamul ban pexe lañ ngir fekki sëñ Touba njaareem daal di woolu sëñ Fàllu mu ñëw mu waxtaan ceeg moom ni ko sëriñ bi daa bu nu jugati fekk lu wooluñu te tool yi manqué na ndox ba taalibe yi di ko fi jàmbat te xaw ma nu ñuy def nag mënuñoo dem fekk sëñ Touba te woowuñu sëñ Fàllu ni ko ankay ah, ni ñuy def mooy da may yónni man soo ma yónnee man ma demal la yow nga toog su ma demee su laajee lu tax ngeen ñëw ma ne ko ah sa taalibi bi nga digaloon mu toog mu nga toog di xaar sa ndigal waaye sa taalibi daa yónni taalibi sëñ Modou Sa ni ko noonu rafet na jugal dem sëñ Fallou ñëw ba ñëwee sëñ Touba ko damaa waxoon ngeen toog ba ma wóor leen mu ni waa ankay waaye nag sa sa taalibi bi nga joxoon ndigal mu toog mu nga toog di la xaar waaye daa yónni taalibi sëñ Touba ni kuy taalib mu ni ko man mooy sama kilifa moo ma yebal ma ñëw ci yow sëñ bi bég ci lool ni ko lu mu waxoon mu ne ko daa wax ni tool yaa yitte woon ndox ba taalibe yi fi ñuy fàggoo addiya ñu ñëw di ko fa jàmbat sëñ Tuubaa ni ko da ngay dugg fee ki sunu boroom jox mbir moomu ci wàllu taw boo duggee fee dinaa la booleeg moom ngeen fasante rek su ko soxlaatee rek na la ko wax yow mi nga def ko te loolu defe naa Sénégal gépp dem nañ ba maase ci ni sëñ Tuubaa sëñ Fàllu juboo ak jum juboo woon ak boroomam ci taw àgg na ba ci Léopold Sédar Senghor mi jiite woon Sénégal am na fi at moo xam ni taw bi cate na ba mu jaaxle wax ko sëñ Fàllu sëñ Fall dani ko incha allah bu ëllëgee rek sunu borom defal la ko ni nga ko bëggee ci ëllëg sa moom sëñ Fallu moo wax nañ jël téléphone bi wool ma Léopold biñ ko woowee mu ne ko nu mu demee Léopold Senghor ni ko Sénégal gépp tooy na mu ne ko alhamdulilah jikko ju rafet tax bi muy fal Senghor Senghor du jullit ñëpp mën nañu maase xam ni du jullit catholique la moo njëkk a agrégé ci grammaire française ci 1935 jóge France Senghor mooy seul sénégalais bu ñu accepté woon ci académie française ñuy génne ay wat ci làmmeñu français mom ak ñom Marguerite Yourcenar ak ñom Simone de Beauvoir ak ñom Jean-Paul Sartre bi mu ñibbisee top maître Lamine Gueye def ko leader politique am ànd ak mom quelque temps taxawal yëfi bopam soxla ci réew mi diko xëccok ño xamni ay julit lañu fekk na sëñ fallu di kuma ma fekk Touba gi wax ma lenn ci looy liggéeyale borom barak bi ma jox la Sénégal kuma fi njëkk fekk wax tuduma dara ci sëñ Touba rek yow lay àndal yàlla dogal bi Lamine Gueye ñëwee waxtaan ci ak sëñ Fallou sëñ Fallou daal di jël enveloppe def ci fukki junni ci boobu jamono jox ko mu daal di jël fukki junni bi def ci poosam ni ko maa ngi ànd ak Youssoufa Mbergane Diop moom amagul te Youssoufa Mbergane Diop lañ tuddee hôpital bale ci Tëngéej sëñ Fallou daal leen di jox ba ñu demee Senghor ñëw sëñ Fallou joxaat ko même enveloppe def ci cinquante mille Senghor ni ko am ah, Mbàkke maa ngi jéggalu vraiment li nga def lu rëy la teraanga la fonk na ko lol waye ñëw mu fi pour khalis man dama fi ñew pour am intention liggéey senegal da soma ma ñaanal ma ba ma falu dina la jappalé ci liggéeyal Serigne Touba serigne fallu ni jeexna na li ma a dégg momako wax fal niko, Léopold ba ko seng ci kaw dañ ko wax ni ko ñiko wan ginnaw bari na serigne fallu ni aduna bëpp su wanon ginnaw Léopold ta man ma farlé ko su àdduna bépp daanu fo tolu dégg seen dang ci ndax yalla far man ta farle na Léopold ndax moma tuddu serigne Touba kon ki mu faloon catholique la fal loolu day wane jikko ju rafet ak am leen teeg ñëpp mu nekkoon jàngalekat boo xam ne hakim la woon sëñ Moussa Ka dañu ko yaa doon géeji xam-xamam moom sëñ Touba nga xam ni ku ne ni nga ñëwee ci la lay yare xam-xam bi ñuy tudd léegi dafa am ku ñëw ci sëñ Fallou ni ko man daal damay def lu ñuy wax tadxiin wàllu tux te dem naa ci boroom xam-xam yépp gisuma kenn ku ko layal ci téere te yow xam naa ne yaa raw ñëpp loo ma ci wax rek ma jàpp ko sëñ Fallou ni ko luy tux mu ne ko mooy loolu ñuy jëfandikoo rek muy génne saxaar ñu koy dugal ci suñu gémmiñ sëñ Fall ñu ko defal ma xool booba camélia la ñuy tux mu jël camélia taal ko sëñ Fall di ko xool xam ngeen camélia nag amul fu mu yem day lakk ba jeex waa jii di tux di xëcc rek sëñ Fall ni waa bisimilah aywa maa ngi lay maa ngi lay seetaan mu koy def ba mu yàgg mu ne ah Mbàkke téema arrêté mu ne ko lu tax su ma ko bàyyiwul damay lakk kat daal di koy sànni mu ne ko yaa ko waxal sa bopp mag loo xam ne ngi koy def te soo ko bàyyiwul lakk la lay jural kon xaraam na ci yow nga xam loolu xak xakiim moo ko mën a atte am na ñaar ñu ñëw ni ko dañ doon laaj tiim ak jàpp lu ci gën mënoon leen ko misaal mu gàtt waaye deen ko wan ci ma dafa génne junni ci jamono bi junniy jafe teg ko ni kana wax jàpp gën kenn ka ni ko man mu ni ko jàppal te jël yaay yaay boroom ana kana wax tiim a gën mu ni waaw mu teg junni ni ko tiimal ta dem ki tiim junni bi moomu ko da koo tiim dem ki jàpp junni bi mu ni ko jëlal yaa moom att leen ci lu gaaw yarekat la woon amna xalé bu tok di ko rek baña xef fekk daayira ñew di nuyu xalé bi diko ko rek baña xef te dañ koy téré ci kilifa mu koy xol ba mu yag señ fallu ni wa ki ki fu mu bàyyi ñu ne ko ki mo mo ki gëna fu mu ñu ne ko mu ngi bayiko ñaakul rap mu ne kon moy rap wa nga xamni kon léppam daana and ak xorom su saf nga xam bu la ko waxe day saf xorom man la jangal ndax dafa nekkon hakim muy jëm jo xamni ni ci gattal señ Hamidou ngir bañ a toogloo kilifa yi lu yàgg waaw ah, sëñ fallu dafa defal sëñ Touba li mu bëggoon lépp sëriñ bi def ko ci xolu nit ñëpp amul kuy dox ci kaw suuf ku dul ëmbal nga ko aw yiw te sopp sëñ Fallou kër goo dem am na fa ay soppe dafa am lu daw yaram bis may waxtaan defe naa ci TFM ci sëñ Fallou Kazu Rajab benn taalibe seex soxna la woo ma ni ma wallaahi azim damay seere ci sëñ Fallou man mii di la woo taalibe seex la mais damaa ëmbal sëñ Fallou cofeel goo xam ni sëy naa ci sama borom kër fukki at ak juróom amuñu doom fone dem nan fa bi ma ko ñaanee sëñ fàllu jàpp ñaan ko ko yàlla bi muy nangu sama ñaan ci bisu kasu rajab laa amee doom ci góor sama jëkkër may ma ko tudde ko ci TFM la ma woowe mën dañ ko vérifier loolu lépp di wax ne ñépp ko ëmbaloon cofeel ba ci njaago yi bu ñu wootalee sëñ fàllu fële ca liggéeyu xel koom wala dara njaago yi di ñëwu di waate aw turam léeg-léeg ab njaago rom ma ni ma Abdoulaye Koroom ma ni ko koroot mu ni ma um leef ma ne um yées mu ni ma sëñ fàllu acce na loole damay nuyu ma fay ko mu ma sëñ fàllu amul moroom kenn rek la nga xam ni kon amul benn tarixa ci réew mi lu dul ëmmeel nga ko cofeel amul ku nekk ci réew mi ak bitim réew tey bu ñu ubbi woon ligne bi sëñ xaamidun da nga dégg ñu lay wax man ca France moo lijjanti sama kayit man ca Autriche man ca almaañ man ca Arabie Saoudite ku ne ak fi mu jaar ak yow relation bi mu am ak fii la am ak bitim réew ba ci Houphouët-Boigny muy lu wér Félix Houphouët-Boigny moo njëkk nekk président bu Côte d'Ivoire ku nekk xam na ni tawat dal na ko ba jaaxal ko bañ ne ko da ngay dee ci Senghor la jaar ñu yónni benn kilifa gu tudd sëñ Mouhamed Gueye mu demal sëñ Fallou ni ko awma jot a dem fenn waaye dinañ ko dimbali danga naan jàkk xool ma soo demee nii jàkk xool ko sunu borom may ko mu àggale liggéeyam bi mu demee ba gis bu Houphouët Boigny 65 la feebar 65 1965 dundaat na ba 1993 28 ans après te kooku du jullit ku ne gis na digganteem ak Mouhamadul Bakhir ci Arabie Saoudite dem na ba tuddee sëñ Fallou doom ku ne gis na digganteem ak Chérif Fanta Madi ci kankan mu ngi ci Guinée wàllu bu mag la dafa barkeelu ci liggéeyal sëñ Touba sëñ Fallou tuddee ko doom muy sëñ Chérif Mbacké kon alaaxa bi mu amoon këru diine yëpp ak réew yëpp la ko sëñ Fallou amal ëmbal ñëpp bëgganteeg doomu sëñ Touba ku ci nekk mu mel ak yow noonu digganteem ak sëñ Modou Moustapha wax naa ko digganteem ak sëñ Bassirou ay bayit la ñu weccoo mu fekk ko tiib ñu woyante ay bayit bëggante lool ku ne woy sa moroom digganteem ak sëñ Abdul Ahad gane ji ne ko fu nekk moo njëkk a wax ni bu ma fi jógee dina ma wutu digganteem ak sëñ Abdul Xaadir noonu la demee dañoo bokk bi digganteem ak sëriñ Saalihu dégge naa ci sëñ mustafaa Alaaji Baara moo ma ko nettali te mooy xalifam Alaaji Baara nga xam ne nee na oto sëriñ Saalihu boobee nga xam ni Alaaji Baara la ni ko jox ko oto bi bi mu ko yóbboo ci oto ba nopp la ni ko jëlaaleen oto bi jox ko ko addiya mu daal koy jox addiya oto bi ne ko bu ko yob ba nopi di jelat sa auto del jox ko señ saliw muy sa addi sa ak mom nga xamni ala khabar rafet fala mana yem non la mel ak señ murtada na wax ni ku mujjé ci kër gi gëna xam li ne ci kër gi ñepp mu bëgg leen ñi mu bokkal sëñ Touba ku ne mu def la ngay señ Touba bopam kon yalla nako yalla fayal nu ngi santat mbokk yépp di tëje lii sëñ Gana wax dañ ko bayyi xel li nuy liggéel señ bi dañ ci wéet di ci wax guddi ak beccëk lu nekk dinu ci dal nit ta wax fanwéri at te ciy waxam du am njuumte xaaw mu am ci ndax ñoo fare wax soo waxee fanweeri at nit li mu waxoon démb sax tey jii lay gën a am maturité gën a miir wax ko waxoon waxi njuumte nanu taalibe yi sunu mbokk taalibe yi di dimbali ci sunu déggatee benn njuumte ci sunu wax ñu xam ni ki doon wax bëgg lay demee ak waaye njuumte mënta ñàkk mu xool yu rafet yi fi jaaroon yépp mu muñe ko benn njuumte boobu ñu ñuy jàppale ci lii ñu séq muy liggéey sëñ Touba ndax ñun kat suñu yitte mooy sëriñ bi bëgg ko ak di ci wax rek ñu ngi sant njabootu sëñ Touba gii nga xam ni saa suñu xëyee dinu encouragé ak dinu ñaanal di siyaare sëñ Murtada Fàllilu ku baax a ngoog nu koy siyaar di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak njabootu sëñ Fàllu gépp di santaat suñu kilifa yi di tuub ci toog giiru toog ci seen wet dañ cee am ndigal ñoom ñu toog loonu ngir waxtaan week télé bi moo waral pour wane lu rafet ci image bi waaye nun ci taalibe la ñuy dox duñu du ñu feeñ sax ci seen wet kon ñu ngi tuub bu baax di leen jéggalu di ñaan suñu borom yàggal leen fi dool leen wér sëñ lay daaneele kàddoom euh, ndax jàpp naa ne jataay bi mu ngi bëgg tënku euh, bala ñu dem ci kilifa yi doole sant suñu boroom di leen jaajëfal bu baax a baax maa ngi woon ci diggante sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha diggante boo xam ne diggante bu rafet la sëñ lu def ko ab sëriñ def boppam ab taalibe ànd ak moom lu bari jaar seen diggante def naa ne sëñ Mbour Moustapha Fallou lu doy na ci doy na firnde tuddi ko ko jox ko ko sëñ Mudu nekk ak moom muy lu yaatu ma waxoon ne def sa mag ji ab seex bay sasam bi ba mu jeex bay sa sas ba mu jeex gor nga doo xawaare nii nga fonke rabba nii nga def yonen ba nii nga soppe bamba tax na nuy siyaare nekk ak sëriñ ci loolu ba yàlla def ko muy borom Touba mu jóg nag sasoo réew mi ne maay Sénégal di bàyyub jirim yi di ndeyi miskin yi di sàqum woy ñàkk yi di docteur bu woy wopp yi di avocat jullit yi di musuwaarab rangooñ yi di jëw jëwriñu murit yi moo taxoon ma ne woon banque la woon dim sànq ab docteur la gaaraas la woon te gaar la woon ab poor la nijaay la woon di ndey di bàyyi te maam la askor la woon sëriñ la woon imaam la fépp foo xam ne daanañ fa féete nit moo mu jën féete fa ñëpp ñëpp da wut si ko ngir yërmandeem ju yaatu ak na mu ëmbale woon ñëpp aw yiw te gis nga sëñ Ablaay yërmande ku bëgg a liggéeyal Serigne wala nga bëgg a liggéeyal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faaw nga làmboo yërmande am na ku ñu wax Cheikh Kaala Mbakke doomi sëñ Mudu May moo di xalifaam yàlla na fi yàgg mos na maa nettali ci kër sëñ Cheikh Oumy Mbakke mii ci pikin ne ma sëñ am sëtu sëñ am sëtu jaxate moo ko ko nettali ne ko sëriñ bee ko wax sëñ am sëtu yaa maalikal mulki jii ñuy wax bi ko sëñ bi waxee ne yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xaw a din sunu borom dakone loo ci teg ma defal la ko nee na sëñ Tuubaa da ko ne bi sama borom waxee loolu sama xel ni dana yar ci wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina te man sama pas-pas bépp mooy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko irham jamihal wara yaa haadiyan radaa moo tax yërmande ku bëgg a liggéeyal sëñ tubaa ci bindeef yi faw nga am yërmande waxoon naa sëñ Moustapha Falilou ne ko ba yàlla ne adduna seydi saab tool la def bindee fi xam gu muy xool ku yëg bindee fi yàlla buur bi yëg la ku yàlla yëg yéega la nit ñi weg la mu ne ma doy na sëkk ak xasida loolu moo nekkoon ci Serigne Fallilou mu daldi di dëkk bi xotti mbedd yi ñot di waar raay bi ba mu ëgg ci sës ci jumaa ji daal di song nag jumaa ji am na kenn ci njabootam xam naa bu ma tuddee turam it koy leb ndax tàggu ko bi may ñëw mas na maa jox ay bayit di ma soññ ci tagg gi ma koy tagg mu di mu Mouhamadou Xabaan moom sëñ Fallou yàlla na fi yàgg te wér daf maa wax ne ma yow Balla Aysa Omar fas ndax bi mat hikka hoo taxus jawaa isa yàlla lay defal nga sigi faalam bi mat hikka haasal faxra foofu jóge ngir jëm ci Cheikh Fallou mii naataange soo ko bëggee woyal ma Cheikh Fallou yéene Bamba ak ma la hoo banaal masaajida làmpak ndox la leen di sangee moo taxoon loolu loo ngeen lu xasida gi nga juñu léegi te maanaam moom dey kamal la faaxar rijaa la ndendam lu néew la amul ci réew mi moo man ci góor ñi moo jiite gaa ñi liggéey jumaa ji jibbal ko réew mi manaa ko waaw góor sa jëf ji daa foor juróomi sooroor yombul ci réew mi jumaa ji mat na courant bi ñëw na te ndox mi wal na Tuubaa di réew mi bu nu seetloo li mu daj ci jumaa ji ak lim ci def dana nu xam ne la ko sëriñ bi waxal ñor na ko allahu akbar yal nañ ko yàlla fayal ba noppi nag mu jël mu jël daraja jumaa ji jébbal ko seex Ibra loolu fàttali ñu bari diggam ak Cheikh Ibra mu nekk koo xam ne lim nañu fii lu bari ci ay réalisation waaye muy mu yóbbu ci ci màkk ci aw nit li mu maye ci oto sëñ mu du doq ya nee naa ko sëñ sëñ Fallou dañ ma ne maye na oto yu bari mu ne ma lu ñu la wax ma ne ko 413 mu ne ma ñi doon bind am maye na oto yu ñu yëgut li mu maye ëpp na loolu ak li mu faj ci ràgg ak li mu doxloo ci lafañ ak li mu waxloo ci luu ak li mu xolloo ciy silmaxa ak li mu dencal nit soxna ak li mu sanc ci dëkk ak li mu tabax ci jàkka ak li mu bind ci kaamil ak li mu ramm ciy néew ak li mu gas ci teen ak li mu bënn ci forage lépp loo xam ne xam na ne njariñul doomu aadama la rek def na ci lu doy sëkk ñëpp ko war a sant ñëpp ko war a ñaanal ñëpp ko war a jéem a roy jikko yu rafet yi yi mu làmboo woon ñëpp dañ ko war a roy melooy bàmbaa ngi waa ju xamul ni dégloo te roy luy jikkoom la sëñ Musaa waxoon roy roy lu ay jikkoom ku roy sëñ falu roy sëñ Tuubaa ku roy sëñ Tuubaa bi te moom yàlla joxoñ nag nu war koo roy li may daaneele euh, sëñ Abdou sëñ Abdou Samad mu moom sëñ Fallu mi sëñ Gana tudd léegi day ko baax ko yoon wi ñor rawatina nag sëñ Fallu démb dafa doomam ji ñu doon tudd domam da manam tudd mu tudde dom ji Cheikh Ibra mom seigne Abdou Samad ñaan ñepp ñaanal ko no fekk ndariñam da wax dem da wax ne fa sëñ waxan fa la seigne Fallu ne fa la ñepp wara ne neena seigne Fallu da wax ne sa waji ji da da daa sopp ba ba du jaar ci tur wi nee na bu mako seen ci jawu ji muy dox bo ëllëgé ma seen ko muy ma seen ko muy sàmmi xar du wañi dara ci sama pas-pas ci mom nee na foofu la ñëpp war a ne moom nag daa wax ne sant naa yàlla lool ndax rafet naa njort lool it maa ngi ko dégg sëñ Omar sëñ sëñ Cerno Mbàkke moom sëñ Omar Omar Mbàkke gelu ngal yàlla na fi gën a yàgg moom itam te gën a wér ku jar di fekk la ku ku laa biir ci xam-xamam la te sëñ bi ñor ko nee na sëñ Fallu dina sant naa sama njort rafet na samam xel dal na li rafetal njortam dana tool sëñ Tuubaa bi teel naa cee dal lool te yaa fusuma teel naa cee dal lool te yaa fusuma looloo rafetal sama njort li dalal sama xel nag mooy sama yéene ci jaam ñi xatul ñaawut xatul ñaawut mais looloo tax ma rafet njort am na naar bu ko xool ba yàgg mu ne ko ibnul wali yi ka huwa sëñ fal ne ko laaka huwa yi ka huwa mu ne ko laaka huwa foofu la sëñ falu nekkoon maa ngi delluwaat di santaat bu baax di sant nag bàyyi fallu sëñ Moustapha Falilu soxna Awa Gajaga bi may mujj fii plateau sëñ Mudu Maamun soxna Awa Gaam soxna Awa Gajaga moo ma solal bi may ñëw fii tey doomam soxna Muslim Mbàkke ma solal moom sëñ Mustafa Falilu te moom day jigéen ju am jom ju xam boppam moom soxna Muslim daaray alxuraan la yor te daaray poroxaan ji kenn mënu ko ca Baay Faalu soxna jaara la noo koy sant di ko gërëm soxna Awa nag nee na nañ ko nuyul ay ay wëllëreem te yëgal leen ne dana woote màggal gi foofee ca ca ca ca tuubaa nee na nañ ko nuyul aji Ndéla Wade nañ ko nuyul Aminata Mbengue Ndiaye nañ ko nuyul soxna Sophie moom sëñ Abdou Aziz si wala rem la ak ak bokki taalibe yëpp maa ngi sant itam sama waa kër sama waa kër moom maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp di gën a santaat nag ci jotaay bi. dëgg la kilifa yi. tubaarkàlla Ablaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. dëgg la dëgg la dëgg la tubaarkàlla jërëjëf Baye Omar ñu gërëm ko waxtu weenu xoj waaye maa ngi ñaan ñi seetaan sax ak ñi baa ko dégg maa ngi sant ñaari jigéen rek ñu bëgg sëñ Fallou dañuy seetaan émission bi mm.

ñëpp bëgguma ñu tudd kenn li tax mooy euh, jataay bi comme ñii dañ leen a am ñu ñëw di ay boromi xam-xam faw nu wane euh, maa ngi siyaar ak maa ngi teewlu yooyu yëpp nu solo mais nan teewlu rek tubaarkàlla euh, bu ma sañoon nag jaar ci turu ñëpp maanaam defe na ci message ëpp na ëpp na 200 waaye tey moom na ma ñëpp jéggal rek dinaa may émission boo xam ne damay toog maa ngi siyaar diw doon na seetaan <laughs> plateau bi tey dalul ay teggin nag ndax nag dan noo tey ñii fi ñëw Euh, li ma wax léegi dëndul suñuy naawle moo waral am na yooyu duñ ko sañ waaw am na yooyu duñ ko sañ ndax nag wax dëgg yàlla euh, bu dee sëñ Tuubaa danoo moom biir ak biti ku amel nit bor boo gisee ndonoom da koy fay bor ba kon nag Mbàkke noo ngi tuub bu baax a baax a noo ngi tuub bu baax kon tudd seen kanam sax ñu ngi leen koy tuubal ndax yéen bu ngeen teewee buñ nee bàyyi Seexu mee ngi nii sëñ Seexu Balla ngi nii keneen kuñ tuddaat rek daanaka euh, bidaa lay nekk kon nag Mbàkke noo ngi leen koy tuubal bu ngi ziyaare ñëpp nag buñ sañoon ku ne ñu jaar ndax sëñ Fallu moom te ma gisut ku ko bëggul moom moom amul moom moom moom amut noonu waaw ci suba rek laay laay gis waaju xorom joo xam ne nii bokkul ci diina ji am ku ko saaga mu di ko tontu ne ko tontu ko tontu bu yar ko lii ma la tontu nag ci sëñ Fall laa ko jànge te moom tudd duggagul ci diine lislaam maam ci sëñ Fall la jànge teggin neen ak war maag baax maa waral mu tontu ko loolu daf maa yóbbu ci niveau boo xam kéemaan la loolu mooy wone rek ne li sëñ Ablaye wax léegi ne maanaam tey ñu bokkul ci diina ji sax da ngay dégg ko naan la njaagob sëñ Fall kataligub sëñ Fall loolu nag du du caagee nit bu am na ñoo xam mën nañu jàpp ne na xoolal ki bokk ci diine ji naan sëñ fekk sëñ Fallou moo mel noonu rek waaw mel noonu rek moo universel sëñ mu ngi da nga may waxal ñaari bayit sëñ Cheikh Ngunda wax ñaari bayit ñu jox kàddu gi bàyyi Cheikh Awa Balla euh, euh, ndax euh, jataay bi li ci ëppoon solo rek mooy li ñu war a waxtaane ngir waajale ko bis bu mag bii nu dëgmal di ñaan njàngum alxuraan mi nga xam ne danañ ko defal Cheikh Amadou Fadal ci daara yëpp ñu wéyeele ko li ci des mooy li tax ma ñaan sëñ Cheikh um bi ndax dana ma su ma gisee bàyyi Cheikh du ma yëkkati samay kàddu day wax ma ñaan ñoom ñaar ñii damaa fàttaliku oh, fàttaliku ma menn at moo xam ne Kazu Rajab dana ñëw te du jël micro Touba TV bi wax ci message boo xam ne nii àddina sépp mën nañ cee jariñu te it seen wax dafa am njariñ lii sëñ Gànna wax ci Baye Cheikh noonu la mel damay wax sëñ jili nag ne ko jotaayu Baye Cheikh jar na fay million fekke ko ndax da da ngay wax muy wax beneen bi ci topp mooy maanaam bala nga faa jógee di nga jël bindu bu bees ci xam ci yar ci teggin kon nag ñu mel noonu bu leen amee kàddu gi leen di dégg ci télé kàddu sëñ Fallou gii dégg ka tey ci rajo bii faj na aajo ñu baree bari maa ngi wàcc yàlla am na koo xam ne feebaroon na bi mu déggee kàddu sëñ Fallou gi la jóg na koo xam ne mi ngi doon jàkkaaroo télé bi yëg yaramam métti bi mu gisee ñu waxtaani sëñ Fallou la tàggoog loolu kon nag Mbàkke noo ngi leen di sàkku kàddu yooyu bu sëñ bu sëñ bu Baye Cheikh daanee leen rek su ko defee Baye seex Balla fu ñu nekk rek jëwriñ ne fa moom moo fay teewal alaaji Mbàkke yu te it mu mate ko sëkk mu bëgg ngeen ñaanal ko baax Mbàkke ndax ku jàppandal télévision bi la ci liggéey yëpp te it nit la koo xam ne lee may wax leer na sëñ Moustapha Kane mais leer sëñ Mamor Mbaye mi nun noo koy jox ordre ne ko lii leen bëgg a def nii lañ koy defee mun a def leen ko ku mën a waxtaane itam ci sëñ ci ci njaboot sëñ Touba moom moo ñu jox directive yi ne def leen ko nii plateau bii dafa wax ne bu ngeen ko mënta defee fii sax mën ngeen dem ba Touba ñu defee ko foofa waaye ni jamono ji deme moo waral mu ne nañ ko nañ ko nañ ko fii kon nag euh, Samb noo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la bàyyeeg sëñ tubaa bi nga xam ne moom ngay liggéeyal kon sëñ si Moustapha wax ak ñaari béy rek sëñ Cheikh Ngonda dugg si ñu jox ñu jox ñu yaa faadilan fadala wal xalaaxu yaa man bi faara xaniim laaxu yaa faadilan fadala wal xalaaxu yaa man bi faara xaniim وجاتك اليوم ولي رزاه كان بما تنمو بي لرزاه ما تهني ما بي نفاه هني ما وجاني نفاه رددت لي شفاه جاء رداء والفوز والاختاح بك كما بك تلريتاه بك دوينا ما لو نستاق صلى عليك الأكرم الخلاق الله جفل الله من ليس بلوه man njàmme sab jaam léegi dooni jombalu xam nga may complu yow tibbal ma te bul nu soppal jeexaloo ñoddil nu yokkal nu fan wi mu wey jéggal nu bunti ya seeni doom wubbil nu wallaahi man doliku naagoo Aku refen njortu tuba far kilu walu di walu yari mamam ndayam di bayam bayam ini jayam dellu wax len mbir yu tax ngeen wuyji alaji farla falu laay jar am juma am jaka amna marché ay jindi commerce borom Cheikh Ngounda ayca bismillah merci sëñ Moustapha ayca Deglu len tey ma baakati mbaroo yàlla mi falefal na ko buura déglu leen tey ma baakati mbaroo yàlla mi falefal na Cheikh Fadilu moo aata yàlla may na ko laa sindanoora sama ndaama la moo bari ndamo ndaama dambe bawal ak jooro bàyyi sëñ Cheikh Oumy mbër ma dem makka dem tay ba demoo marwata ki safaaya ki buuroob seexi faadilu moo aaya tay ji yàlla may na ko laa sindanaarab baayu seex murtada laa gërëmoo baayu may muna deefu ko jooroob marhaban marhaban jël nga ndamoo masrixan maxriban yaa di buuroob sëñ Fallu marhaban marhaban jël nga ndamoo masrixan maxriban yaa di buuroob waaju wayte wayoo ki ma wayoo ab dërëm ngay wayal mbaati buuroob lii kat lii kat na ñàkk Eh, seigne mamour Mbaye yoonu géej gi ci waxal ñaari bat suko defé ñu ñu ñu jox Baye Cheikh kon Baye Cheikh nee nga waxal ko ci kàddoom kon yaay wax ci turu Baye Cheikh suko defé ñu jox kàddu gi Baye Cheikh Awa Balla ayca bisimilah. Eh, jërëjëf. moom murid la. no ngi ziar plateau bi bépp. di ziar jëm yi nga xamni ño fi serigne muntaka waye tam ño fi serigne abou ñoo fi njabootu serigne touba gi. muy alaaji seexu mi mbakke ak alaaji seexaw Balla di siyaar aji maam Fatim fi léegi di siyaar sëñ Cheikh Balla Samb ci turu personnel Touba TV sañu am di bég lool eh, suñ fàllu moom ñi dul murit sax mën nañ ci waxtaan ndax fajkatu aajo la alaaj Cheikh mi mii moonu yar

booba sax xëy na yënguwuma ci lii waaye sëñ Fall laa mos bëgg moom at moomu sëñ asfaale Mbàkke laa tudde bis bi Ibrahima Faye mi moo ci teew waaye dama dañoo ba dem bay defar xéewal yi rek xiin wi sàq yi sëñ Abdou sama tam sëñ Muudu Faati xar yi moo ñëw ne ma taw bi mu taw ci yoon wi agsi wu fi ma ne ko déedéet xiin wi jóg sama ñoom yaay ñëpp jaaxle nag ma daal ñëw rek ne sëñ Fallou photo bi rek laa jàkkaarloo ne ko maa ngi lay sant am nañu dàqoor am na ñu d'accord waaye benn pepp ndox bu laalee suuf moom dootuma dootuma la sant ma génn rek mel ni xiin dañ ko dañ dañ ko weññi loolu benn bi la benn bi ci télé bii laa toog màggalu kasu rajab mat na ñetti at may waxtaane sëñ Fallou ci plateau Café Touba bi ma génnee ba war a taal oto bi benn waay riire na le mais mi ngi jooy di ñëw ci man man sax damaa foogoon damaa wax dara lu garaaw mais parce que man yow ñoom laa yii ñuy daw man daw ma man moom li ma sentir laay wax ni ko nit ki gëmee moo ko noonu noonu la ko gëmee mais man li ma yëg ci sëriñ bi rek laay wax bi ma génnee sëñ am fee la waa ji jóge di riir ut si ma mais li tax ma xam ne bu dee xeex la tamit du garaaw gis naa catu dix mille francs yi di feeñ waa ji ñëw naan ma yaa tudd sama yàlla xam nga nit ñi dimension ma naan ko yow looy wax nii kii de problème la na a indil murid yi murid yi <laughs> sëñ Tuubaa sax buñ ko nee nangam am ñuy kaas kii nag moom suñ Fàllu la naan mooy ma ne ko lu tax nga wax loo mun a ma man li may wax caaxaanu ma de

ñii tudd sëñ Touba ñii tudd sëñ Madiba Sylla kenn ku ne tudd ki la neex ñi ne ci ñeneen yeneen yoon yi tudd ka neex nee na ñoom ñi nga xam ne sax du ñuy jullit def nañ seen i yëf doog yëg ma ko ah mu ne waaye bi gaal gi dawee lu mat ñetti fan ci ndox mi ñu dajeeg gaal yi xar ci biir dégg géej gi dem ba ci fi vague yi gën a bare maanaam ah, mu mujj na benn sëriñaam ci gaal gi. ma ne ko ah mu ne ma gaal gi vague yi bi di koy tël mu jug ci kaw ñëppay na alaaji Fàllu mbakki gaal gi dellu si nee na ma ne leen kan la ñuy tudd kan mooy sëñ Fàllu am ku takk njëllam daal di ne bu dee da ngeen a bëgg ñu mucc nan leen koy tudd rek nee na biñ teeree île kanaar yi am benn bato bu leen for biñ ko wanee njëllu sëñ Fàllu nee na ci guddi gi nelawul ci géej gi la toom yaa gis ku ne géej ko ku génn jëxërën muy foto bi daldi di duggaat gisaatu ko kooku nag moor ñëwal sëriñ Fallou jox ko micro boobu bay walaaji baara alaaji Fallu Mbakke sunu waaji yow ku la yaakaar doo ko benn du fay yaa gënu tur yaakaar jàng alaaji Fallu laay man dama tëdd guddi nelaw yentu ñu yeema ci nelaw ne ma moor waratoo nelaw waaye jugal te way bàyyi moodu bu soo ci laa jël sama xalima jeem alaaji Fallu Mbàkke jàppale ma ndeem mooy dimbali képp kuy jeem yaakaar jàng ci alaaji Fallu laay sëriñ Seexu mi Mbàkke Falil fa bàyyi tool bu maral moo taw moo bu wow buñ ko tuddee moo tooy yow ku la lee moo rabbi du sooy yaa am xorom alaaji Fallu laay biir bàmmeel solo ñu fay wàllu biir bàmmeel rekk moo mata malu ku sax ci lii mu lay wàllu yaa am xorom alaaju fallu laay ay sëriñ seexu mi mbàkke falilu yaa baax baay waaye nag balay sa sa baax baay <laughs> yow de nii ngay mel ndeysaan ngir gay ne doom jadu xar bay suri Seex Balla Mbàkke nii ngay mën a mel ngir ngay da doom ja du xar baayu mbeen ngeen jëf maa ngi jégalu maa ngi jégalu sëñ Mor danaa wax man awma lu dul sëñ Fallu dëgg la dëgg la amuñu lu dul sëñ Fallu Mor Gueye laa tudd sëriñ Murtalaam sëñ Fallu sama sëriñ sama sëriñ bi nag moom na ma ñëwal dem Dakar doo sonn barki El Hadj Fallou Mbacke. jërëjëf maa ngi jégalu baax Serigne Cheikh. ñu ngi tuub tey jégalu baal leen naq. waaw xam naa man sax euh, man sëñ am dama ne la woon sëñ man dama ne la woon naa ñëw sëñ man dama ne la woon naa ñëw su ma ñëwee di joxe xéewal yi te loolu sëñ falu jaral na ma ko. kon noo ngi siyaar plateau bi di am mbégte di wàcc foofu sunu kàddu wasalaam. yow yow boo waxul eh, li nga def rek doy na sëkk wax ndax biñ jàppee palaato bi man ak moom ak sëñ Moustapha Kane mi moom mii wallaahi moom ma doon soññ sax di woo ay nit di leen invité ngir ñu ñëw ci palaato bi ne bu ma ñëwee maag sëñ Moustapha ñooy séddale kafe gi kon nag mbaay jërëjëf yàlla yàlla taxaw yaa sëñ Moustapha Kane ci liggéey bi ngay liggéeyal sa doom jii doy na sëkk rek mandarga mooy li nga tudde sëñ Fallou xam nga wax moom jëfu da koo tungoom jël sa doom tuddee sëñ Fallou rek doy na sëkk Cheikh Ibrahima wax ne wax moom loo mën a waxit du fees mbuus jëf moom mën naa fees saako waaye sëñ Fallou laa tuddee sama doom mi ngi nii ñëw na te li garaaw mooy bi mu ne doom ji sa am sa baay am dalaa invité ci plateau bi da ko ne damay jàngi suba waaye dinaa ñëw sëñ Fallou jaral na ma ko doom ji moo ñëwoon léegi di seddale café gi eh, sëñ Moutiane ñu ngi koy gërëmaat bu baax gis naa léegi bi bi bi ñuy bi ñuy présenté sëñ Cheikh Oumy insisté ci ñu sant la ndax sa taxawaay ci sëñ Fallou yaag sama baay jële baay Moustapha Diagne nga xam ne ñoom ak sëñ Modou mbay waaw ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax sëñ Saliou Seck Raia euh, bàyyi Mouride mbay mii nga xam ne bàyyi Mouride mii nga xam ne euh, Mouride la moom Mouride day na sa kon nag sëñ Modou ñu ngi lay gërëm Cheikh Bakary ndax wax dëgg yàlla sa taxawaay rafet na. Cheikh Mbacke di jërëjëf gis nañ ñi nga taxawé ci wétu sëñ Cheikh Oumy ak yitté ji ko jox soxna Aram ñi ngi lay gëreum ak bëgg fallu yépp soxna hadi sek ñom soxna Sali ñi ngi leen di gëreum ndax yeen ñu am sak ngeen tay dafa am ño xamné ñi ngi am ku ñuy tuddo bay Cheikh seen mouvement yi fam yi ñu yor ci yenen ci walu zahir la yëmu waye ñom bëgg fallu lañ tuddu di dajé daayira ku tuddu sëñ fallu pour ñom ñoo la wara fay ñom ñi ku tuddu fallu rek da ngay nyom né ñom ñoo la wara fay kon nag jërëjëf ñi ngi leen di sant soxna Khady Seck sunu mag gi ñi ngi lay ñaanal bax yalla defal la tawfiq di gërëm bax soxna Ndeye Fatou Mbeng teewaayam ci plateau bi sunu xol sedd na ci seigne salou sek raaya ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa teewaay Abdou Wade jërëjëf kon euh, Baye Cheikh dafa wax ne dafa am ñaari kaddu yu ko ñu yonne ci euh, seigne Cheikh ummi ak Baye Cheikh oballa ndax bi nga xamee ne jàpp nañ plateau bi ko seigne Axma waxee daf ko wax ne ko télévision baangi non lepp lu fi seigne fallu bëgg rek télévision bi ndax moom mii di alaaji Mbàkke yu day wax na ma ni ma sama waajur waajuram woy na sëñ Fallou woy woo xam sëñ Moustapha Kane mii mës na koo jàng kaara bii xalifa la ko tudde woon sëñ Fallou ko ne woon ŋaal mu ŋaa mu ñaanal ko ni mel ci sëñ Fallou kéemtaanuk yàlla la moo tax daf may wax saa su nekk ne ma eh, yàlla dogal na njaboot gépp rakkam a ngi nii soxna Ndey Xadi Fay mi ngi ni toog ci daayira bëgg Fallou yi la bokk eh, ñi ngi leen di sant baax di leen gërëm sëñ Ibrahima Fay sëñ Mamadou Thioune kenn du sëñ bi ñëw nañ ñoom it indi teraanga soxna Bintu Jaxate mi sëñ Fall rek la bëgg bi mu déggee la ne ma café gi maa koy defar andi eh, soxna Nogay ñan ñëw na teewal fi soxna sukkay na dimme sëñ Cheikh Massalik Male nga xam ne mu organisation la bokk ñoo taxaw liggéey bi sëñ Mortale mi ñoo ko invité woon tey ne ko ñëwal bokk ak ñun jataay bi ci xaside yi wettalinu mu ñëw muy ku baax sëñ Moustapha Ñing ak sëñ Cheikh Ngunda di topp jataay bi gis ne jataay bi ñoom jataayu murit la ñuy daal di ñëw toog ñu ngi leen sant gërëm sëñ Mor mi doon jàng léegi ni ma ko waxee léegi ab sëriñam musu def plateau ba mu jeex maag sëñ bisiri mi te jëlu téléphone am woote ci biir muy sëñ Mourtala am Cheikh Amadou Fadal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ak njabootu sëñ Fallou gi ñuy topp yépp da dul ay teggin nag nga naan diw doomi sëñ Fallou mi ngi topp jataay bi wala diw ci njabootu sëñ la bokk mi ngi waajal màggal gi yépp ñi ngi gis ay affiches yu ñu yónnee waaye buñ ne njabootu sañ Fallou ne sëñ Abul Baraka rek bàyyi Cheikh mi toog sëñ Cheikh Balla toog soxna maam Faati Mbàkke teew mel ni teewal nañ leen fi ñoom ñëpp kon noo ngi leen di gërëm turandoo itam noo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne itam sëñ fallu danoo bokk ci comité d'organisation màggal gi ak fu ñu ci mën a féete ndax tey jii ña ngay jëm Daaru Salaam ndax dañuy def ay plateau yoo xam dañ koy waajale màggal gi barab bii nu wane léegi muy barab bu Cheikh Amadou Fadal du kéemtaan sëñ Fallou yooyu nu lëpp loolu ndax koo xam ne nii aajo june lay dégg barab bu sëñ fallu ku fa taxawoon gaa yi wax ci kaw ngay dégg di nga dégg aajo june na koo xam day làkk ba wax loo xam da nga naan lii moom lu tax waa ji fi yàlla di ko ñaan sëñ Fallou euh, waaye nag mi ngi nii yaayoon na lu ko lu taaru rek la moo ko moom ko borom Tuubaa ndax fi mu féete jaami yàlla yi yàlla nu ko yàlla fayal Cheikh Modou Fadal sëñ Sidi Bousso ñu ngi lay gërëm ak sëñ Sam Mbacke Baye Cheikh soo tënkee ba noppi rek dañuy jox Baye Cheikh Oballa euh, mu mu mu sànni ay kàddu ndax moom ñoom seen waxtaan kenn ci doyal su ñoom bu kàddu yi xasee dem fee ñun amatuñ ci dogal ñoom léegi nu nu kii rek su ko defee sëñ Cheikh mi dana yëkkati kàddu ñaanal nu tëj li nga xam ne mooy jataay bi euh, jox ñu itam euh, déwén waaye nag jox itam dig daje ci bis bu màgg boobu ñuy defal Cheikh Mamadou Fadal soxna Adama jërëjëf soxna maam Awa Mbuub soxna Ndey Bira ñoom sëñ fal rek tubaarkàlla bàyyi Cheikh kon bisimilah. jërëjëf sëriñ am salaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam suñu gan ñu tedd ñi ak suñu mbokki taalibe yi ñu leen di ziar. bu baax a baax. xam naa jël parole dafa mënta ñàkk ndax ñu sant ma ko waaye fi wax lépp. mënee su la waxati lu ko raw mbàkki yu suñu jëwriñ di suñu kilifa ci télévision bi nga xam ni moo ko jox àddi Sëriñ Tuuba dafa insister ni nag naa jël parole woote woon na sax ba ma jox ko sëñ Mamor Mbaay mii moo taxoon ma ni Mamor na jot li ndax moo ma gën a jotle wax waaye it kilifa bu buggee li muy wax ñépp déggu ko xam ni lu sincère la faw ma barkeelu ci loolu rek pour jottali ay waxam nee na bu ginnaaw bu mu siyaaree sëriñ Muntaxa ba noppi sëriñ Tubaa gi yépp mu ngi siyaare bu wér sëriñ Abo ak njabootam neena yéen nag moom muy Serigne Cheikh Oumy ak sëriñ Baye Cheikh Awa Balla ne na di ngeen a yi fii ci Cap Vert ndax ñëpp Sëñ Fallu waaye ñëpp yéen i sëñ yéen Sëriñ Fàllilu ndaxte lu xew xel yëpp ak xalaat yépp ci yéen lay jëm ngeen di leen wéttali di leen defut di leen won sëriñ bi di leen sagal itam fu ngeen dem ku dina xam ni ci sëriñ fàllilu ngeen jóge ndax sëriñ fàllilu àddina bépp ko bëggandoo léegi rek dafa insister ni moom day xamul ci àddina bi ba ba ba suñu boroom tabaxee ba léegi ku ko ëpp aw turandoo nee na li tudde sëriñ fàllu ca xamuñu ko ndax dégg ko wala seen étoile yàlla boole ko moom ba ñu ba ñu ba ñu dàkk ko bu tudd doom bugg cee barkeelu nee na loolu kenn mënu koo xam ci àddina nee na loolu moo tax mu di leen siyaare di leen gërëm di leen gën wax ni nag télévision bi yéen ko moom lépp ñu bugg bu leen xalaat bu leen def dara bu leen limité itam temps def na ma ah waaye yéen seen plateau bi gën a gaaw a jeex ma ko ah fan yi yëpp dañoo def ay plateau ci it ñoo ngi yéene dem Touba jottali lañ fa def lépp ci bu yàlla direct lañ ko def ci lépp moo koy fay ci xaalisam moo tax baree bari di yéemu ci jumaa ji jumaa ji dafay dafa mujj ñëw waaye moom fu mu dugal loxoom ngir Serigne Touba. ak jëf ji ful Sëriñ Tuubaa taalibe yépp di ci jëriño ak doomu adama yi kenn mënu ko xam ci adina lolu ku xëñtu adinaam gis bu mu joggé ba léegi di nga xamni mom leppam léppam touba Tuubaa la ko jox mu ne ma nag ma li tam Sëriñ mu tiam ndax Sëriñ mu Caam amul lenn lu ñuy woote ci ñu sagal bis bi taxawul fi waa kër wàllu kóllëre gi nga xamni mom la amante won sëñ baat ak waa sëñ Fallilou ba mu ngi koy continuer nee na naa ko nee na naa ko ko gërëmul ak waa kër sëñ Fallilou yëpp nee na soxna yi nga xam ne nii itam yàlla dafa dogal ñuy ak njabootam nga xam ni ñu ngi ñoo tudd seen bot bëgg fàllu soxna aram caam ak njaboot gi mu àndal soxna ndey xadi rakkam bokkal ndey ak baay soxna maami mi nga xam ne ni soxnaam la nga xam ni xéewal yi yépp bu ñu tënkee bés bi nga xam ne nii dele bu tuuti lañ ko jox daf maa téléphoné ni ma maa ngi indi ay xéewal avant huit heures lépp lu loo ngeen fi gis muy xéewal rek indi na ko fi loolu nañ góor baax na jigéen baax na yéen jigéen ñi kenn gën leen a bëgg Sëñ Tuubaa nee na mi ngi leen di gërëm di leen ndokkale di leen ziar ci di leen xam ne mi ngi ànd ak yéen zaahiran wa baatinan sëñ Gana yow it sëñ Mbàkke yoo a ngi lay gërëm bu baax a baax sëñ Ablaay moom fii ci télévision bi la nekk xam-xamam bi def ci laabir donc nee na ma gërëmal ma sëriñ Gana ak sëriñ Omar Kane ndax sëriñ Omar Kane liggéey bi nga xam ne nii bu ko gën a am ci yoonu murit bariwul muy baax Baaxil bi sëriñ Basiiru taalif sëñ xaa ci boppam moo ñu sant moom mu du ko fi jàllale sëñ Muntaxaa ci boppam moo sàkku moom muy taxaw dina ko dina ko defal émission bi temps yi per télévision bi dafa amoon perturbation ba émission yi interrompre mu ci bari waaye ñëpp ngi koy rafetlu nee na mu ngi lay gërëm di la sant di feddali kóllëreem ak yow sëñ Gana nee na yow soldaarub Serigne Touba nga nee na soldaarub Serigne Touba nga boo xam ne fépp foo taxaw ñëpp dina xam ni kuy defendre yoon wi nga ci danga ci am courage kon nag man ak ñi nga xam ne ñoom laa jiite ak sëñ laay mii nga xam ne ci ñun la bokk. nga xam ni moom li muy def du du du phénomène parce que ci ñun la bokk ku seetaan télévision bi bis bu yàlla sàkk di nga gis ni mu généreux ci xam-xamam ak ni mu koy joxee ak arñi bi mu koy joxe yéen nag sëñ am sëñ Mamor sëñ Moustapha Kane sëñ Cheikh Anta yéen ñi ñëpp Mbàkke Mbooj mi nga xam ni moo yore technique bi production bi ak Jibril Ndaw mi yore programme bi ak seen techniciens yi ak seen kilifa yi caméraman yi di Pape Cheikh sëñ Daam sëñ Atumaan mi ñi fi liggéey yëpp Ndeye Fatou Mbengue ak jigéen ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant ndaxte ñun amuñu lu dul sëriñ Touba. ci bisu sëñ Touba yi ni ci télévision bi taxawee loolu amul fenn ci àddina trois heures de de de de. diffusion ininterrompue en direct nga diko def presque tous les soirs loolu liggéeyul Serigne Touba biñ ñu fi dàkk yàlla na leen ci fay barke Serigne Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. gërëm nañ ko bu baax a baax kon mooy euh, bu gu mujj gi nga xam ne moom la ñuy jeexalee émission bi sant ñu ñu doon topp ñëpp te di leen tuubal itam ci kàddu yi lu ñu fi dégg rek euh, Baye Djibi bi jóob male damaa amoon yéene loolu mu yëkkati xasaayit xat-xatu émission bi rek koo waral waaye eh, mi nga xarnu boo xam ne doy na keemaan maa ngi sant bu baax te di la ko jéggulu nag bàyyi ji bi di la wax ne jataay yemul ci benn waaye dinaa la invité sama invitation personnelle boo xam ne bu soobee Sëñ Tuubaa dinaa ko def incha allah mu yaatu lool. Eh, kon nu daal di bàyyi kilifa gi bàyyi Cheikh Awa Baalam Cheikh Amadou Fadal ginnaaw bu nu santee borom xam-xam yi fi teewoon nag muy sëñ Abdoulaye Diop Bichri di sëriñ Gana Messere di sëriñ Omar Kane Balay sax ndax ñoom la sëñ bi yabaloon ñu ñëw ngir fas yéene bokk ak ñun jataay bi. waroon na fee teew imaam Cheikh Awa Balla gi ngànta tax ñëwul ñu ngi koy dogal ngantam waroon na fee teew sëriñ bu sa imaam ngànta tax ñëwul waroon na fee teew sëriñ Fallou Bousso moom it ngànta tax ñëwul waaye ñoom ñi remplacé nañ ko mate nañ ko sëkk noo ngi sant baax sunu techniciens yi doon jàppale ci émission bi tàmbale ko ci sëñ Dame yor réalisation bi di ko gërëm jàmbaar la lool di gërëm sëñ Pape Cheikh Bey mi jiite caméraman yi nga xam ne ni euh, euh, ku dul sonn ci liggéey bi la euh, sëñ Atoumane sama lakkal wi maa ngi koy gërëm bu baax Eh, sëñ Mansour Gueye jekk laat ñu ngi koy gërëm eh, di leen ñaanal yàlla taxawu leen sàmm leen may leen ngeen yeggale ndax bu ñu jógee fii ñu ngi rangé matériel bi ngir dëgmal Touba ci bisub Cheikh Ahmadou Lamine Baara bi toog fa fekke waale bisub eh, Cheikh Ahmadou Fadal kon nag noo ngi leen di bu baax di leen gërëm ñu ngi nuyu sëñ Assane Mboup yegg si léegi ci jotaay bi moom it kon nu bàyyi kàddu gi bàyyi Cheikh Awa bu noppee ñu jox sëriñ bi kàddu gi gërëm ñëpp sant leen di leen ñaanal guddi jàmm alaaji fallu laay du xotti saatir balay sa du tas du daw aji laaj ku laaj mu may la nga gii jël sëriñ fallu mbakke xanni yu la ana muhammadan al man maa la ko way yow seexunal fadilu yow seexunal fadilu yaa moom ya fii may ma laa lawlaaka ku sopp bàyyi sëriñ Seexu mi mbay lawlaaka sëriñ Fallu bu xéewali wala tee na ngeen way seexun al fadilu fadilu nasimun sharifun farisul fatinun mbakke bu soobe mooy njiit mooy wasila lor dem na xéewali baawaan te dootul jeex abadan ku sopp sëriñ Fallu xéewal war la lor te du la man ada fallu fi abadin ah, bi bi bi may bi may ñëw sëñ am maak sëñ moor mii dañoo sumeeku bay tëdd waaye maa ngi wat sëñ Mbàkke Madina mi ma yaakaar dama ne ko rafetul ñun ñuy tëdd ci lal te duñ dem ci palaatu sëñ Fallu bi looloo tax ñu ñëw te nag bu ñu waxul dara ba dem bu ñu eggee yaakaar ne fii ba Kazu Rajab lu ñu waxaat du safe kon Mbàkke ñoo ngi jégalu. ña ngi Cincinnati neen dañoo jënd gàtt toog di topp li nga xam ne mooy jataay bi eh, moom sëñ Fallou sëriñam moo tax ca Amérique foo dem soxna Soda Jaw ak may message léegi ndeysaan yóbbante na addiyee sax eh, kon ña nga toog ca Cincinnati ñoom it defar seeni eh, teraanga toog jàkkaarloo ak ak ak ak ak télévision bi Baye Cheikh maa ngi jégalu soxna maam Ami Ndiaye ak soxna Fatou dañ fi indi ay xewal ñoom tamit di soxna Alaaji Mbàkki yu ak soxna faatu nekk fële ca Genève moom it teraanga yu bari la fi livré yàlla xam dañoo ñëw rek fekk lépp tege li ma naan jàppandik sëñ Fallou rek kon nag noo ngi jéglu baax a baax bismillah bismillahi min rajim alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala abdil kafa wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa wala bokk ñu leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh ummi mi ngi nuyoo di sant bu baax a baax a baax di jël ab nuyoo bu màgg bu rëy teg ko ci si loxo sëriñ Cheikh Balla mi mu joxal ko boroom kër gi sëriñ Makiyu jëwri ni sëriñ Touba ci Ndakaaru nee mook mbooleem ñu àndal ñëpp ñi ngi wane mbégte lool loo xam ne mënuñu ko wax ci làmmiñ waaye di ñaan rekk sans borom yàlla yombalal ko lépp loo xam ne ma nga ciy dugg ba di ko kenn ci waxtaankat yaakaar naa ne sëñ Abdoulaye waxoon na ko ca soxna bu sa ñaanoon sëñ Touba ñu tànq ñaan googu rek yàlla defal ko la mu lépp ndax li sëñ Balla wax léegi ne dañuy tegale ay def ay plateau yu mel nii te mbirum rajo euh, ni mu chéré nga tege ay fan di def ay deux heures temps di ko jox Serigne Touba am na fay yàlla ko fay Serigne Cheikh nee na mi ngi sant mbooleem bëgg fàlliyu ak bëgg fàlliyu web fàllu mooy fàllu yu góor yi ak jigéen yi yaakaar naa ne euh, xàmmee nañ leen ndax bari na màggal koo xam ne ñi ñuy wax bëgg fàllu te soxnaaram jiitu ko ak ñeneen ñun ñëpp la ñëw ci kër yi nemmeekoo ak ñun ba xamee nañu ñun ñëpp. Euh, kon yal na yàlla taxawu ca bool ci li sallallahu alayhi sim tan daan wax naan ak nit ak kam bëgg ba aljana kon sering bi waxoon ñu sant loolu muy sant tamit bokk yi nga xam ne ñoo fi teewoon yoroon waxtaan wi muy sëriñ na Mesra di xarit di wëlëre bu baax lool sëriñ Abdullahi sering Omar Kane ñu suñuy xarit di suñuy bokk di ay wëlëri sëñ bi wax na ne waxtaan wi neex na lool dënn yi jóg nañ loolu suñu amit waaye damay jàpp ne rek na kon bu ñu tënkee waxtaan bépp ci benn wala bokk ci ci dara ndax yàllakat yàlla bi mu doonee yàlla ba noppi dafa taxaw ak ñam yilif di wax ak ñoom na leen man de dafa am loo bëgg a def xam naa ñooñu ne ko loolu mooy lan mu damaa bëgg a lu ñuy wax àdduna su ma sàkkee ba noppi nag danaa fa yóbbu lenn mu nekk fa nekk sama wuutaay ba mu ko waxee ñam doon waxal di malayka ya xam na ko ne kat bëgg joom xemeem lool loolu ndax yàlla ko koy wutu daa am nay mel ñu bëgg ko lool ne ko ñun kat ñoo lay fii di la waxal lu ne te ñooy boobu noonu de li ma xam yéen xamu leen ko kon bàyyi leen ma may def ci dogal yàlla mu jaar ak fa mu na ba def àdduna may wax rek nekkoon kon waxtaan wi yaat na lool bari na waaye Serigne Fallou daa xamoon ne xalifatullah fil ard ku ko doon war ngaa nuru ka nga xalifa ba te gëm naa ni ab xalifa bu ne kam wut nuru liñ fi wax lépp jikkoy san la kon moo wóotu yàlla ci suuf nag kon war naa jikko yooyu yaakaar naa lu ma tënk waxtaan wi ku yàlla wuutal la woon boppam mu nekk fi def jëf yàlla loolu nag du bokkaale ndax yàlla wax ne maa leen di wuutal maa mooy indi fii pour ñu wuutu ko fi bu ñu fóotal nag dinañ fi jox luñ fi nekkee lañ fi nekkee nag mooy li suñu wàll ko li ngeen wax lépp ci ñoom ñett ñi kon sëñ bi mi ngi sant ci euh, xam-xam bu rafet bi ak yëg gi ak toog gi yëg ne yaa ngi ci la war euh, dafa am loo wax léegi nag euh, sëñ Gana nga xam ne euh, feeñ na ci jamono ci feeñ na ci barab bi te waxoo ko woon ndax bi ngay bëgg a nga ko wax te fekk na booba ñëpp jëfe nañ ko mooy waxtaan woo xam ne day am sanat wéeruwaay woo xam ne ku ko dégg da nga xam ne lii kat lu mu ñàng-ñàng wala luñ ko wax mu dëgër dëgër am na lu ko gënoon dëgër am na jëmm ju xëy ni kat yéeg naa ca kaw romb naa diw romb naa diw romb naa diw wax ba ne ag naa ci yàlla te jëmm dong la ilaa basarun mislukum la waxoon waaye nag ba mu wuteeg ñun mooy yuuxa illa yàlla wuteeg ñun basar boobee nag mooy nit ko nga xam ne basar rek la woon ba mu wex naan euh, dem naa fu ngeen àggut jóge naa fii dem baytul maqdis te giréeb daan daw ci at yu bëree bëri yu bëree bëree bëri mu ne dina xëy naa def naa ko jàll naa sax bàgg ci yàlla looloo gën a rëy li ngeen fi wax lépp ci lu baax am na jëmm ju waxaatoon ne te basol rek la woon man day euh, wàcc nañ ci moom ab alxuraan joo xam ne fa mu jóge ci ab malaaka jaar ñëw ci man ni dong la woon loolu moo gën a xar baaxee ci li ngeen waxtaan lépp kon yàlla moo wutaloo woon am fam ci àdduna jox koy jikkoom muy ma di ko doxe loolu rek mooy waxtaan wi waxtaan bu ñu waxee ba noppi nag nañ xam ne yàlla bu wóotalee kenn nit jox ko jikkoom jikko yooyu bëggul ñu dëkku ne cell wala kum fii rasulillahi uswatun hasana la waxoon na ngeen fexe ba lu yonent bi jëfe ngeen jëfe lu ni mel ngeen roy ko ngir mel ni moom dara jombut de day waxtu su ne Sëriñ Tuubaa baax na lool mabat ñëpp njabootam ngi day baax nañ waaye suñu gënee miil ñoom njaboot gi suñu gënee miil sëñ tubaa gën leen milliard te fu ñu tudd sëñ tubaa tudd leen kon bu ñu yaafusee rek la ñu toog ñoom ñoom nañ fexe ba ne ñun ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, xanaa sëriñ bi di ci dolli rek di la sant bu baax a baax rek tey ñaan sa li fi wax dégg nañ ko te danañ ko jëfe noonu nag boo gisee nu di ko def mooy donc ñoo mujj ci néeg bi te ku la mujj ci néeg bi dana xam loo fa xamul kon nag yàlla na nu sa bu soobee yàlla kon nag su ko defee nag ñu ngi lay jox dañ leen di jox nuyoo sëriñ Mountakha mi nga xam ne mooy moom jataay bii ak mbooleem jabaru sëriñ Touba rek rawatina sëriñ Abo mi nga xam ne moo moom jataay bi moom it ñu teg ko ci loxob sëriñ Bassirou mi nga xam ne mooy jawrinti kër gi teg ko ci loxob sëriñ Abdoul Fattah mi nga xam ne moo yor kaddu äh, ko nag ci sëriñ Ahmadou Badiou moom lañ fi toogal sunu doomi sëriñ la nu féete ko ci wàllu mag waaye nag jikkoom tax na lum nuy def loo danañ ko def kon nag ñu ngi leen di jox nuyoo Sëriñ Ahmadou Badiou di leen xamal ne mboolem njaboot gi jaareel nañ ko ci Sëriñ Abdou Fatah mu jël ko teg ci loxoom bañ dajee ba teg ko ci loxoom boobaag léegi gisuñu ci lu ñu naqari boobaag léegi mi ngi ko yor ni ko yor war yore boole ci ku ci war a boole kon nag ñu koy sant di leen jox am nuyoom te di leen xamal ne neen xolam sedd na xelam tam dal na lool ngeen xam ne daal bis bii ki ko moom kenn kee bëriwul bëggul suñu fi bopp nag danoo bëgg xam ne lu xam lu yàlla bind te yonent bi moo ci gën sëñ sëñ fallu bëriwul bëggul suñu bopp moom dafa xam ne lu yàlla bind rek la ci topp mooy sëñ Tuubaa la yaakaar ñu jël bis bépp teg ko ci loxo moom rek luñ fi jëf ak kenn ko ko jëf rek yàlla na yàlla yàlla ko yàlla nangu di leen sant nag ndax moo ma xamal ma yéen ñi war a ñëw xamal ma tamit nag lim ci bëgg bi ma dikkee wax naa ko ko sëñ sëñ Amidou defe ngeen ko noonu kon nag yàlla na leen yàlla fay jataay bii nag jataay bi sëriñ bee rek sëñ sëriñ Muntaxa moom jataay bi sëriñ Abo mooy kilifa gi Ahmadou Badiou mooy njiit li sëriñ Cheikh bale nag mooy sunu sëriñ kon nag sëñ bi dañ ñu euh, ñoo ñoo ñoo yàgg koo def sa bàyyi nag la kenn mënut a ndax lim nu defal ba tax nu am li nu am moom mun nu koo fay nun nag liñ ci liñ ciy ñaan rek mooy nga ñaanal nu nun dong yii fi ne nu teewee ko nag ni déwén te liñ kon na ma defal tam nag moo egg nag ku lim da ngay juum waaye li fi ne kenn ko moom mu yàllaa ko bind waaye bi mu koy bind nag ñu war ko jariñoo nit tax mu bind ko dara waru koo jariñoo lu du nit ginnaaw nit ko war a jariñoo nañ bokk ci ñi jariñoo yëf kon nag da ñaan rek si barke Baye. Euh, sëriñ am sëriñ maa ngi jégalu euh, am lu ma waroon yokk ci may wax. mooy sëriñ Abdou Samad moom ngeen tudd léegi sëñ Gana wax na ko sax dafa maa woo bëgg démb nee ma dafa bëgg li ñuy dox ci yoon wi ci sëriñ Fallou mu ngi kasu rajab gi li ñuy tuddee rajab yaat ñu di ko yaatal di ko boole ci turandoo sëriñ Fallou yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi sëriñ Touba mu ne lu rafet lool ma ne ko waaw comme sëriñ Ahmad jiite ñu waxtaan ci maag moom dem bo wat ma ma sax dama bëgg sama bisu bop man sëñ Abdou Samad ba ñi ngi wo bokk yëpp nak aljuma gannaaw ge dañu bëgg ñu dem fa ndax li wax dafa reuy dama bëgg plateau bo xamné ay borom xam-xam fay nek di waxtaane serigne Fallu waxna mako ma serigne waxtaane depp nañ ci ni aljuma kon buñu jullee gee ba noppi danañ ci def lolu mel nonu kon ñu ci wo xamna bu ma nee rek bu ko mu bu yaato ci Am mi ngi non kon sëñ sama dal wax nako te bëgg na lu baax wa salaam. Euh, sëñ Cheikh bo demé nga né sëriñ bakki yu sant nañ ko dem na ñett ke kërëm ñett yoon mag alaji Baara ànd moom noonu ba goni gone sampagun kër lan ko xam ci hôtel ba moy bureau bi ñëk ya du tay lañ ko xam waaye ku bëgg sëñ touba la alaji nak daf dañ ko wax ne ko noy def mu ne mbakki lay jox lay jox limay jox ñu tuddu ko ay kilifa mbokam tuddu ko Ndiaga gay mu ne man naruma ko wax naa ba noppi de bu suba na fi ñëw indil ma télé bi fii fekk nga ko ma yow bokk toog mu ne ko dama bëgg nga ñëw ma lii ndax man nga ko te yor nga loo ci def bu baag léegi nag dara lépp a dox keroog bi muy indi téeméeri million yi te maag mooma ànd ak Cheikh Balla ma yor saak bi fii ñu te jox ko ko ñu mu yëkkati këyitu këyitu kër kër gi lii tam nag jumaa ji teg ci loxoom jox ko ko ma fekkee nit ku baax la nit ku bëgg lu baax la yéen nag yàqu leen ci dara hmm. waaw kon nag ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëme rek yëf yi daal ku wax da nga juum am na ci loo xam ne nag kenn du ko leble waaye ku ko leble bëgg nga ku la fay kon nag nun lebal ngeen loo xam ne ñu leen koo fay nun nun fi mu ne danoo tiit fi mu li tax nu tiit mooy ni ngeen def sëñ Fallu te xam ne ñu leen di def eh, nañu tàllal loxo yi sëñ bi ñaan kon Eh, sëñ Assane jeex na temps bi temps bi jeex na sëñ Assane ñoo ngi jéglu bu baax waaw waaw wallaay wallaay wallaay wallaay dëgg la dëgg la waaw loolu après la incha allah jërëjëf kon sëñ bi ñu tàllal sëñ bi ñaan bisimilah bisimilah bisimilah nañ ñaan ba noppi direct la moo tax nañ ñaan nañ ñaan ba noppi nañ ñaan ba noppi jërëjëf jërëjëf daam. di taxaw déglu lii may wax borom Touba. ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba.